nekk ci Sénégal ak fépp fu ñu mënti nekk ci àdduna bi di ko jéema faram-fàccee ci kàllaamay Kocc Barma ba fu suñu mbokk nekk nga mën a xam euh, te it yëg li nga xam ne moom mooy euh, jafe yi nga xam ne moom la euh, jàngoro ji di coronavirus di lëmbe àdduna bi jur ci suñum réew waaye ci bitim réew waaye it fexe naal suñuy pexe ba képp koo xam ne doomu Sénégal nga tey góorgóorlu ci yeete bi ak liggéey ci ngir mën na daan coronavirus boobu ñu xool naka lañ lay mën a joxe kàddu nga mën a wane li ngay def ndax lu baax sababul ñi koy def wala ñu wane leen mën naa naax saay kon ñiy def lu bon rek la ñuy xëy di dégg ci média bi ñu naan diw def na nangam diw sàcc na diw nangam nangam te pourtant dans ce pays il y a des gens qui font des choses extrêmement bien Bonjour et bienvenue. Je suis aujourd'hui euh, honoré de recevoir Moussa Ba aka Général. mussa moom doomu pikin ci de ji de Thiaroye kaw la moom euh, mu ngi teew ci plateau bi ngir waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moom mooy activité yooyu ju def balaa ñu naan dara ma nuyu ko Moussa maa ngi lay nuyu di la ziyaar. asalaamaaleykum Pape Sidi. maaleykum salaam maa ngi lay bu baax. Euh, di nuyu kilifa kër gi muy élage Hadj mm. di saluer aussi euh, l'ensemble des personnels techniques et service de votre télévision. Mm. di nuyu waa Sénégal di def mention spéciale waa Thiaroye. Mm-hmm. di ziar waa mouvement citoyen waa gox bi ñi nga xam ne ñoom ñoo yëkkati seen baat jox ma ko neme naa ñëw fii tey te Karim Xurum Xaq xam naa yaa koy présenter sa bopp. bien entendu ci kanam tuuti dan ci dellus si defee Grand Dakar comme ni ñu ko defee euh, SICAP comme ni ñu ko defee jëkk jëppal Derklé comme ni ñu ko defee pour euh, ndaw HLM yi noonu la amee ñeneen ñu nekk ci biir réew mi ñoom it bu ngeen ko foto mbaa ngeen yónnee ñu ay vidéo dinañ ko rappeur déjà membre du mouvement Nitu Dëgg si ce n'est pas l'initiateur en tant que tel virulent de temps à autre dans ses propos mais faut pas oublier les trois V véridique versatile et vicieux de temps à Karim Xurum Xaq ginnaaw bi ñu ko nammee il est de retour parmi nous mais li ko yëkkati moom leneen la Karim maa ngi lay nuyu te di la ziar. Pape Sidi maa ngi lay fay maa ngi lay ziar bu baax a baax euh, di la fay di fay sama waa ji. Moussa maa ngi koy ziar bu baax a baax. di suñu mbokku techniciens yi di nuyu Sénégalais yëpp ah. mm-hmm. euh, di ñaan yàlla rek bañ fox li ñuy xebe. jërëjëf Karim euh, ñu bëri gëj nañ la gis mm, boo la nit ñi gisee rek dañ naan ah moom da bañ koy mujjee dégg dañu déggoon ne dafa tawatoon. Mm-hmm. mbaa yaa ngi am féex. maa ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. Mhm. Euh, di remercier aussi surtout sénégalais yi quoi ay profité occasion bi xam nga si taxaw bi ñu ma taxaw et tout. Mhm. Euh, di wax ni maa ngi sant yàlla dellu si naa depuis trois mois. Mhm. maa ngi maa ngi Sénégal. alhamdulilah. depuis trois mois. dégg nañ la fi benn yoon mais après euh, dinañ ci dellu siwaat ci li waraloon dégg-dégg boobu. ñi ñuy seetaan ci 2STV officiel ci Facebook maa ngi jébbal nuyoo El Hadji Abdou Fall. TFB El Hadji Abdou TFB again moom moom mooy borom slogan yi masque takkal loxo téel sa loxo raxasal dox wàññil am daje moytul Covid 19 ànd jële fi coronavirus. Dia Souleymane big up merci beaucoup d'être avec nous euh, Dabo Wright merci beaucoup Serigne Diop JC bismillah. bonjour et bienvenue ñu tàmbali waxtaan bi ak yéen tamit ñii seetaan ah su ngeen ñu yónnee message on partagera avec les gens qui sont sur le plateau Moussa ñu tàmbale ci yow général mhm. seen kuréel gii di waa gox bi lan mooy origine bi lan mooy genèse bi ah, xam naa corona taxu koo jug su ma juumul mën nga ñu wax nañu yàgg na am avant corona. Euh, Pape je voudrais euh, ma commencer ci fii d'abord mhm. muy mmh. montrer l'exemple à tous les Sénégalais. Mhm. Euh, takkuma suma masque mais mu ngi nii suma wet. Mm-hmm. Euh, masque bi nag moom mooy li nga xam ne moom moo sax euh, gën a waral suñu ñëw fii tey. Mm-hmm. waaye sax donc l'exemple est là na ñëpp takk seen masque avant ñoo def quoi que soit. Mm-hmm. surtout yéen ñu nekk ci bus yi yéen ñu nekk ci taxi yi. yéen ñu nekk ci transport en commun yi yéen ñu nekk ci marché yi. wala boog yéen jigéen ñi nga xam ne yéen a ngi seen kër. di waajal jël seen panier dem marché bu leen fàtte waa ji c'est très important. maintenant pour répondre à ta question. Mhm. concernant le mouvement waa gox bi de Thiaroye bi nga xam ni man maay la coordonnateur national. nous l'avons créé le 26 mai 2013. il n'y a pas un paradoxe national waa Thiaroye. waaw euh, mun naa ñëw toute explication. voilà allez-y. Euh, mun naa ni buñ ñu nee le côté national ce sont des sympathisants mais originaire mouvement bi Thiaroye. <coughs> Mhm. nous l'avons créé à Thiaroye. mais dañu dem ba ñu am tey jii ba am ce qu'on appelle gox bi international des gens yoo xam ni ñi ngi Argentine mhm. ñi ngi Brésil ñi ngi France ñi ngi Canada ñi ngi un peu partout dans le monde ñi ngi en Afrique. ay doomu caaro yu nekk un peu partout ay doomu caaro yu nekk un ñu ngi leen di nuyu. loolu moo tax ñu ngi leen nuyu man tamit maa ngi leen nuyu de passage loolu moo tax bu ñuy wax dañ naan gox bi caaro parce que mooy originaire bi. Mhm. xam nga tey jii Pape Sidi Fall Pape Sidi Fallu mhm. mais bu ñu fàtte ni Pape Sidi Kaolack la. vous voyez ça Pape Sidi a fait un chemin ba John Lenane tey mu nekk tey par exemple un animateur boo xam ne sur l'étendue du territoire ku ci nekk tey jàpp nga ni sax Pape Sidi la mais terewul dañuy fàttali ko origine bi. Mhm. loolu c'est juste rek pour connotation. Euh, comment dirais-je caare bi bañ a denc ci li nga xam mooy origine mouvement bi. ci diggante yax ak yokk ak loolu moo tax ñu naan waa gox bi caare. dëgg la yaa waa gox bi Thiaroye ça date de combien de temps. Euh, ngi ko créé le 26 mai 2013. 2013 ba léegi a ngi 2013 ba léegi ñu ngi ci kon ce qui veut dire que bu ñu ñëwee ba mai bi euh, on doit avoir 7 ans d' existence si je me trompe pas. Mmh. voyez ça alors depuis qu'on l'a créé euh, ñu nekkoon ci ay liggéeyu solidarité. Hmm. loolu moo nekkoon wundu bi. c'est-à-dire nous avons beaucoup investi sur ce plan la au niveau de la banlieue. Hmm. muy ay consultation gratuite muy ay euh, comment dirais ay médicaments yu ñuy maye gratuitement muy euh, comment dirais-je des actions de sensibilisation ñu dem ba yàgg le euh, Amine comment dirais-je en mai 2014 mu tombé ak élection municipale ñu ne ñun est-ce que on doit continuer à dire le pouvoir ce sont les autres mhm. est-ce que dañu war a rester fii naan le maire n'a rien fait n'a rien fait Mm-hmm. est ce que dañu war a taxaw naan gars yi nu ñuy def du nii du nii du nii. Mm-hmm. ñu ne pourquoi pas on se propose nous-mêmes raison pour laquelle bi ñu ñëwee le 29 juin 2014 nous avions constitué une liste liste boobu moom moo ñu permettre woon ñu dem ci élection locale. Mm-hmm. le 22 juin 2014 au niveau de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. gagné wuñ élection yi yàlla suñu borom moo ko def mais alhamdulilah nous avons eu un score honorable boo xam ne les gens ont compris que nous sommes là. même si nous n'avons pas pouvoir mais nous allons jouer le rôle de veille et d'alerte hmm. d'encadrement et de sensibilisation vous investissez vous vous investissez dans la politique excusez-moi merci beaucoup problème merci beaucoup Pape di faral di yëngu ci wàllu politique dañuy faral di yëngu ci wàllu politique mhm. euh, li ko wundu mhm. mooy dañ ne gars yi duñu leen bàyyee game bi mhm. parce que euh, wax nga ko sànq à l'entame de tes propos mm -hmm. le seul moyen pour le mal de vaincre est l'inaction du bien bu fekkante ni yow mën nga. Mhm. am nga xam-xam nga bàyyi benn médiocre benn tokaar taxaw ci bopp benn commune yor ay millions de budget di ko wasaare di ko politiquer man su ma waaye tu es responsable de tout ce qui arrivera ah. ah oui tu parce que au lieu d'agir tu as croisé les bras. Mhm. ñun loolu moo tax ñu am connotation politique en face. de nos activités de solidarité. Mmh. en face de nos activités de sensibilisation ak li ñuy def biir Thiaroye. maintenant nag am na ñoo xam ne c'est des de métier. c'est-à-dire 365 jours sur 365 jours dañuy politique. Mhm. ñun nekkuñ ci loolu. ñun nous nous investition pour euh, encadrer la population pour les accompagner avec nos propres moyens. Mhm. ànduñu ak président de la république ñu ak benn ministre ànduñu ak député ànduñu ak maire ànduñu ak doomu aadama. on est là à voguer on est là à travailler avec nos moyens de bord pour rendre service à la population de jël Thiaroye Kaw pour rendre service à nos voisins. donc loolu moo tax ñuy investir ci politique maintenant nag élection ba élection bu ñu fekkee bu fekkante ni gis nañ ñun instant bi nii pare nañ pour briguer encore le mandat pour prendre la commune de Djeddah Thiaroye Kao pour diriger la mairie de Djeddah Thiaroye Kao dañ ciy saf sap ah. recentrons le débat dans le cadre de la sensibilisation du Covid 19. ci kanam tuuti loolu moom mooy pour ñu xamoon origine bi li tax ma laajte woon laajte boobu mooy dama seetlu ne association yu bëri yi nga xam ne xamee nañ leen woon ci quartier yi. ñoom it ñu ngi bay seen waar bu baax ci wàllu sensibilisation bi ñu yégee ne coronavirus yegg si na ba léegi mhm. Moussa dana ci dellu si waat maa ngi lay nuyu euh, Pape Djibril Fall man tamit maa ngi lay nuyu mon ami mon cher frère Pape Djibril merci beaucoup d'être avec nous il nous écrit nuyu naa la nuyul ma Karim Pape Djibril euh, j'imagine la pression pour les prochains jours à venir parce que bu ñu la yow rek yow la rek nga affaire bi day gën a day gën a naqari ñu ngi dellu si ah, je pense que Moussa wala général du euh, soldat la woon parce que dama xaw a gis nga xaw a bëgg ay affaire militaire ak ay termes yooyu ay tokaar affaire yooyu c'est les c'est les termes qu'utilisent euh, nos vaillants je sais pas si c'est le cas mais danañ ci dellu si Karim euh, jumaa yi ak jàkka yi dañu ko tëj momentanément ci benn diggante mais yow da nga gis ne loolu sax ne devrait pas avoir lieu Karim pourquoi waaw Pape Sidi d'abord damay damay dama remercier quoi encore. Mhm. di nuyu sama gars yi ma yebal fii waa nit dëgg valeur mhm. yi. pour wax ni parce que <clears throat> bi bi bi ko indee di ko waxtaanee. Mhm. ci toile bi indi na coow quoi. cest à am na ñu bëri ñoo xam ni ay nit lañ yoo xam ne dañu àndoon ñun ci combat yëpp. parce ñoom ay nitu dëgg lañ cest à ay nit lañ yoo xam ni. diine moo leen ñor euh, lu laal diine laal na leen te bis bu ne dañuy xeexal diine ñoom après comprendre ñu woon

sama problème après bi ñu toogee réfléchir ñu ne ñu gis exemple par exemple mhm. balaa maa génn sax di dem ay Indonésie ak yooyu ma ñëw rek juste Mauritanie suñu dëkkandoo mhm. ñoom cinq cas lañu amoon cinq neuf cas lañ amoon ak deux mhm. décès muy tëj ñu jàkka tëj ñu juma cas yëpp jeex na amatuñ cas Mauritanie dégg nga Mauritanie yaa ngi fay dégg cas ba jeex na ñoom seeni cas jeex na Touba gii rek tubaa ñoom dañ doon julli dégg dégg nga Touba cas mais amaat na ay quelques cas communautaires yu bees. waaw mais ça li ma bëgg expliquer mooy ça li ma bëgg expliquer mooy comme gars yi ni ñuy xalaatee ni feebar noonu lay propagé woo ci julli bi dafa am ay normes yoo xam ni ak ay chartes yoo xam na ko pour ñu julli mais ñu gëstoo ci mhm. nga. gis naa jàkk bu bu ñuy julli balaa ñuy julli préfet ñëw police gendarmerie garé oto ne ana imam bi arrêté kaay dañ la soxla non fi préfet nee na bu kenn julli fi gis nañu fi jimaam bu ñu waaj a julli ñu jàpp imam bi am na léegi nag dañ leen ragal loo au mais ñun message bi ñuy lancé waxuñu ni feebar bi am na lu am la comme mon frère li muy wax nañ jël suñu précaution yu war. Hmm. laal ay gel antiseptique takk ay masque def su lépp lu ñu mën. Hmm. pour musu ci feebar bi parce que nattu la bu yàlla teg ci àdduna. Hmm. pandémie bi tas na ñi ñu bari ñu ngi ciy dee kenn bëggul te ñu sañoon feebar bi tel fi jóge ñuy def su lu ñu mën ci sensibilisation pour nit yi moytu feebar bi. mais dama ni man li ma jaaxal mooy 4 avril fii la fekk pandémie bi. Mhm. Macky Sall dafa dafa dafa organiser benn défilé bu ndaw biir biir kii biir palais présidentiel. quelque chose nee na de symbolique en fait. ok symbolique te loolu mbiri àdduna kese la xam nga symbolique moom ci biir palais du la fekk yomul xew. Mhm. bu ñu jugee ci loolu ñu ñëw ne ma gis ni gendarmerie rek bu ñuy ramasser ñoom bu ñuy dem di def seen couvre-feu yi dañuy dajaloo fees del bëri loolu dajaloo la. Mhm. police pareil. nga dem ci grande surface yi boo demee ci ci ci grande pour bañ def publicité. Mhm. mais balaa ngay dugg dañuy jël thermoflash dóoral la ko da ngay dañuy jaay ñu ngi liggéey nga dem ci ministère yi mais jël nañ disposition yi war yëpp pour pour pour pour liggéey nga dem da fekk gel antiseptique fekk gendarme bu taxaw yor yor mhm. xool la xool sa kii sa sa sa température je sais nga dugg ñu def li ngay def dem liggéey génnaat te loolu mbiri àdduna kese la. Mhm. léegi nag àdduna bi

nga xam ni Jakarta Indonésie mu ëpp musulman ci àdduna bi mais ñoom dañuy julli tey état bi li mu jël ba def ko jël ay thermoflash jënd ay kii di ko def ci buntu ministère yi di ko def ci yenn bërëb pour liggéey ah def ko ci buntu police yi mais su ko defee ci buntu jumaa bu nekk jël policiers yiy daax imaam yi bu ñu ñëwee taxaw yor seen i masque ñu defar ay masques yu bari jox ko nit ñi ñu ñëw jël nombre bu normal mais jàkkee dinañ julli julli kenn du ko dagg Mm-hmm. jur kenn du ko tàgg ñu loolu wax mais mais Karim. Mm-hmm. il faut pas euh, euh, renier le fait que man ci plateau bi nga toog ah. Mm-hmm. invité naa fi oustaz. mu ne c'est tout à fait normal parce que yonent bi def ko digal wax defe naa Moussa wax na ko léegi. sallu ala buytikum. Euh, ñu bëri dañuy wax ne juma bi wala jàkka bi bu ñu fa demee. demuñu fa pour tëj ko pour ne bu kenn julli. day am ku nodd bu noddee daal ne ku nekk na nga jullee fa nga ne. ba jamono neex bu ñu paree. après ci la ñuy euh, ci la ñuy door a bàyyi waa ji mu nodd donc ce qui veut dire que littéralement tëjuñ ko dañuy bañ nit ñi dajaloo fa di julli parce que kenn xamul kan moo am jàngoro bi euh, na mën jël xam nga fi juma ak jàkk nekk ci Sénégal yëpp mënoo ko équiper de thermoflash. ñaata juma ak jàkka nekk ci Sénégal xool bu dee benn thermoflash. Mhm. par jàkk mën na nekk ci kenn xamul yaa ko gën a xam. Mhm. caisse noire Macky Sall bi 8 milliards jënd na ay thermoflash waxuma la pour jàkka kese. Mhm. xam nga problème bi lan la c'est-à-dire ñun dañu jël diine def ko second plan loolu mooy problème Sénégal. Mhm. mënuma concevoir nga nekk ci réew moo xam da ne quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans la. ba pare lépp ñu gars yi ñu ngi fekkee seen occupation yëpp dugal ci transport en commun lépp ñu ngi koy lijjanti di fexe ba nekk ci disposition yoo xamante ne du ñu wàllante mais nañ ko def ci jàkka yi xam lu ñuy wax ñu euh, nañ tëj jàkka yi te ba ma koy wax fan la nekkoon di ko disposition yi war yëpp jël leen ko jël leen masque yi nañ sol ay gants nañ muuru nañ raxasu ci gel antiseptique yi nañ def nañ nag lu baax la mais dafa am lu jiitu loolu xam nga bi nga ak yàlla bi tax yàlla wàcce nattu yi. tam mm-hmm. xam nañ ni Sénégal Sénégal du Allemagne du États-Unis du Angleterre Sénégal dañu am suñu réalité bopp jamonoy peste benn part mi expliqué ne jamonoy peste bi mu xewee fii sëñ Babacar dafa waxoon dafa yàlla tax yàlla na jàll tas barkeem. mu ne dafa waxoon ni bu bu tëjee jàkka yi rek peste a rey dem leen ci jàkkee ngeen ñaan yàlla mu dindi peste bi c'est-à-dire Sénégal dañu am ñaan suuf bi moo nangu te ñoom xamuñ ko ñu bari xamuñ ko bokk te sàggante gi ñu sàggan mooy état man naa fekk koo xam ne marché dafa jot ñu caricaturé Seydina Mohamed mu dem ànd ca marché ba ne man je suis Charlie man man bul julli ci jàkk man dama julli ci jàkk du ji ni ñu hmm. bi am na mën nañ ko moytu mais dafa am lu jiitu moytu bi mooy nit julli dafa am fooy taxaw mooy mënoo mucc ak a waane jëlal matuwaay yu war yëpp nag waxuma bu kenn jël matuwaay na ñëpp jël seen précaution mais nag munoo muus ko muus ba boo ba dee bu jotee doo dee munoo muus ko muus muus ba ba dund bu jotee doo mais loolu bu ngay gisal ba pare après nga jël seen matuwaay nga jël seen précaution parce que loolu la diine santaane li diine santaane ak li euh, mbir yi am. Euh, maa ngi gis ñu bëri ñuy comparaître ah Karim def na ko léegi euh, le cas par exemple si on prend le cas. Euh, de de de nos voisins chrétiens du Sénégal dañu def seen messe yi ak seen même euh, carême. bi muy jot lépp dañ ko def. abbé bi day taxaw si biir euh, chapelle bi je mhm. pense euh, ci église bi lay taxaw di def prêche ñu koy jàllale en direct à la rajo mhm. nit ñi ku nekk di ko di ko di ko defee fenn maa ngi fàttaliku bi ma nekkee Alfayda dañ doon dem julli juma bi mhm. ñun di ko transmettre en direct à la rajo nit ñi nekk seen biir kër yi di julli moi je pense que loolu aussi stratégie la mais dire ubbi leen juma bi dinañ ci dellu si waat nga gën ma convaincre parce que là jusqu'à présent je ne suis pas convaincu ba yaa ngi naan ma nangam nangam ñu delluwaat ci Moussa delluwaat Thiaroye ngeen jot a def bi coronavirus tàmbalee ba léegi. Euh, waaw Pape Sidi wàllu sensibilisation ak wàllu ndimbal. ok euh, so bi coronavirus tàmbalee ak léegi ñun on s'est d'abord réunis. Mm-hmm. ñun la mouvement waagox bi ñu xool li nga xam ne moom mooy la situation d'abord ndaxte wolof Njaay dafa wax ni bay ci say weewu tànk. Mm-hmm. ñu ne nañ xool dans la proximité. Mm-hmm. ici à Thiaroye qu'est-ce qu'il nous faut alors quand entendu. que l'État est en train de s'investir euh, dans euh, les denrées alimentaires à distribuer et cetera. Hmm. ñu ne mais pourquoi pas ñun ñu jël le domaine sanitaire ñu ne pourquoi pas ñun ñu jël gel ak mask pourquoi pas ñu ñu chargé wu loolu. pour l'instant ak suñu doole ça ne veut pas dire que nous déclarons que nous allons charger nous allons nous charger de tout ce qui est gel et masque pour tout Thiaroye parce que nous avons une population de plus de 200 000 habitants mais on s'engage pour une part pour une partie yesaay maintenant euh, li nga xam ne ñun moom la ñu njëkk def muy euh, réunir suñu suñu suñu suñu cercle restreint waxtaan suñu biir dem tasaat ko encore euh, au niveau des membres on a alerté l'ensemble des membres de waa gox bi réaction yi nag di jóge fu nekk waa gox bi Norvège participer waa gox bi nekk Canada participer ñi nekk France envoyé seen participation ñi nekk euh, Argentine même chose ñi nekk euh, comment dirais-je dans les pays d'Afrique tels que la Mauritanie et cetera même chose. Mm-hmm. ñun waa Sénégal ñu géntee teg sur la table kii ne man samay 1000 francs ngi nii kii ne man samay 10 000 ngi nii kii ne man samay 30 000 ngi nii et cetera ñu dajale lépp ñu dem def une première commande de 1000 masques à distribuer. et de 70 gels à distribuer. Mmh. alors quand on a fini de distribuer ça ñu dajaloo wat ñu xool à peu près ce que le terrain nous dit qu'est-ce les zones yoo xam ne on les a pas encore exploit exploité ñu ne kon nañu boolawaat suñu doole encore une fois def lu ñu wooyee phase 2. Mhm. ba ñu tuddee ko phase ñu gérer li ñuy gérer par rapport ak les moyens de bord maintenant nag nous nous préparons pour attaquer encore dimanche prochain pour la phase numéro pour la phase numéro 2 mmh. donc pour l'instant pour répondre à ta question mhm. loolu moo nekk les démarches ni mouvement waa gox bi au niveau de Thiaroye pour faire face au Covid-19 et aider les populations. Mhm. Euh, dinañ xool élément bi léegi mais par rapport ak yow Moussa. en tant que sénégalais en tant que ku dëkk Thiaroye euh, nga dégg Karim plaidoirie bi mu def léegi ci mbiru jàkka yeeg jumaa yi am nga ci opinion. Euh, man nag euh, pour dire vrai cette question religieuse la je préfère euh, passer quoi je préfère ne pas répondre. pourquoi en tout cas amoo si opinion. wala xalaatu si dara je préfère ma bàyyi ko. Mhm. ak ñoom imaam góor Djité ah ma bàyyi ko ak ñoom Karim yi xam nga borom xam-xam yi ma bàyyi ko ak ñoom Daouda Sy Hafiz ah, ba mu naan ma bàyyi ko ak ñoom oustaz Madiaw ak ñoom oustaz Aliou ak ñoom. Euh, wala oustaz Kouroum Kouroum Xaax wala oustaz Kouroum parce que gannaaw ñun comme tu l'as di nous pensons trop voilà nous sommes trop nous sommes trop action. nous sommes trop terrain. Uh-huh. je préfère m'investir sur le terrain. mais jumaa jeeg jàkka ji terrain la aussi. oui jumaa jeeg jàkka ji la mais man bon sama considération xam naa uh-huh. yaa ngi may dugal ci sujet mais naa ci am tuuti rek mais du ma ci sori. Uh-huh. sama considération mooy la foi elle est personnelle. yasaay li nga gëm inaaxaat sa xol la quoi. nga nekk sa biir kër nga julli. boo waxee ak yàlla dina la dégg. man bokk sama li ma gëm nga nekk ci jàkka ji nga julli boo waxee yàlla donte yàlla suñu borom moom moo digle booloo leen ngeen julli ci jàkka yi loolu ndigalu yàlla suñu borom la. Mm-hmm. maa xarag naa fi kitaab min shay yàlla wax ne lépp ci alxuraanu karim nest pas mais benn exemple rek laa bëgg a joxe pour ñun musulmans ñu suivre ko suivons la discipline et l'organisation de la communauté chrétienne du Sénégal def naa ci benn article il y a de la presse qui a repris euh, comment dirais les gens l'ont partagé un peu partout dans les réseaux sociaux et je profite encore de l'occasion avec votre médium pour féliciter la communauté chrétienne catholique du Sénégal qui sont très disciplinés et qui respectent les directives de ceux-là qui les dirigent. Mmh. merci beaucoup daan dellu si waat euh, Grégoire élément bi su paree ci kanam nga jox ñu ko on va continuer à nous entretenir avec Karim Xurum Xax Karim. Mhm. jumaa yi ak jàkka yi. Mhm. ubbi ko ak ñàkk lan mooy différence bi bu fekkee waxtu julli bu jotee juróomi waxtu yépp dañ koy respecté ajjuma bi defe naa moom moo noon nekk euh, julli bi nga xam ne dañ naan boo toogee ñeenti ajjuma de moo juma yow génn nga ci lislaam ainsi de suite ainsi de suite ça fait cinq euh, te koor gi mu ngi ñëw nit ñi dañuy soxla dem ci juma yi naafila nit ñi dañuy soxla euh, dem def seen ay julli juma parce que ñeenti ajjuma mooy am ci biir koor gi te dañ koy marqué en fait loolu ay moment yu solennel la mm-hmm. différence bi ak julli sa kër ak julli si juma yi mais y a une grande différence Pape Sidi Fall y a différence saa à dire nit da ngay di sa diine xam nga lu tax. Mhm. boo dee ah kenn du la wax quels sont les quatre points cardinaux. déedéet malaaka yi laaj de. Mhm. amal boo xam-xam nekkal ci mbiru àdduna yi mais boole ci diine parce que àdduna bi aussi yàlla da ko bind pour ñu jaamu ko mu laa wax sànq. nee na diine nag ñun luñ pièce bi ñu daan xam nga moo leen Pape Sidi. Mhm. mooy dañu gëmloo ni c'est-à-dire que diine bokk diine politique la. si doon politique salaam salaam état la yoroon. gouvernement la yoroon. di doxal. tey yi ngay gis ne ay contribuable ne ay asaka zakat yi ngay gis ni bu ñu ko tegoon tey xam-xamoo ni jullit bu atewul ci buy dund diine nga nekk ci dëkk boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent de musulman atewoo ci diine sax boo dee di nga ko layoog sa ñun dañu état du Sénégal état république la la république elle est maçonnique beneen débat la. elle est laïque. elle la république est maçonnique. la république est laïque. mooy lan xam nga au vrai du mot. laïcité mooy ku nekk li nga gëm. am droit gëm ko waaye nga toog fi ko gëmee bu ko indi affaire. loolu beneen débat euh, publique. non je suis. <laughs> parenthèse bu ndaw laa lay jox rek la woon mhm. mooy la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Mhm. xam religion mooy lan. Mhm. mooy le relier ci quelque chose. Mm-hmm. soo relié wul ci quelque si yàlla da nga relié ci seytaane ñaar yooyu ñoo fi nekk ci àdduna mm-hmm. c'est-à-dire yi dañuy nax ci ay muu ak ay affaire laïcité loolu laïcité mooy dañoo ñëw la révolution française ko xam nga ko mais laïcité bi muy judd fekk fi woon l'islam église catholique la fi fekkoon mm-hmm. ñu ne affaire religieux wala affaire culte nañ ko régler fi ñu ko war a régler état bi gérer li ñu war a gérer je pense que loolu moo indi la boo xamante ne nii ba ñu fi nekkee ba gars yi def révolution di rey buur bi France di ko dagg parce que boobu buur bi mhm. loo fekk da mhm. euh, mhm. loolu moo bëgg a def par rapport ak mais loolu moo am damay la xam dama sànq dama ne la république elle est maçonnique loolu laa expliqué sànq. Mhm. laïcité mooy la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Mhm. dama ne la tey pour mu leer ñu xam ko mooy mun xoolal tey état du Sénégal boo demee toppal constitution bi toppal lépp doo ci gis lenn loo xam ne diine lañ ko cëral amul. te loolu moo tax tey mu am ay imam yoo xamante ne nii da nga leen gis biir palais dañuy dundee Macky Sall dañuy dundee ay intérêt gis ne ñoom ñëpp dañuy taxaw Macky Sall bu amee dara lu mu bëgg ci kaw diine bi ci ñoom lay jaar. Mhm. ñoom ñoo ñëw jël ay yoo xam ne bokkul ak contexte ñu nekk

tiital bi muy tiital bi ñu tiital mooy wax ñu corona bi dëgg la am na mais bu mu ñu teree julli ji am na lu ñu digal ci julli ci mbooloo ci benn douze personnes mën nañ julli mbooloo. mais waxtu julli fu mu jotee mën ngaa julli kay. non non fa corona. non c'est pas nit mi ngi dem ci marché bi. Mhm. nit mi ngi dem ci boulangerie bi ñu ngi fay fees. am nañu ay cas communautaire. non non mais mais cas moom laa la expliqué nee na moo tax Mauritanie lan moo tax euh, xaalis bi ñuy jël di ko def ci leneen mais ko def ci julli bi julli bi dafa li may bañ mooy ñu jël ne Sénégal par exemple ci benn côté rek la ñuy toppatoo. l'État est soo defee ci xaalis bi ci julli gi après di nga ko def ci euh, ci ci église bi. non ci wàllu jaamu yàlla yëpp laa lay wax. man su may wax ni tey je parle euh, euh, au nom de toutes les religions. ça damay wax maanaam mais en tant que musulman mhm. mais dama ne la képp koo xam ne jaamu yàlla ci bërëb. Mhm. xamal ni lii nattu yàlla la nañ fexe parce que xam la mooy julli mbooloo Pape Sidi ak julli mhm. sa kër. mi ngi mel ni nga taxaw fii di jaay gel bi ñu ne la 1000 francs nga fi mën a jaayee mais soo demee te lii nattu yàlla la boo xamante ni tey bu ñu jugul ñaan yàlla ci bërëbu yàlla yi yàlla di jéggale jaam yi yàlla du dindi lii de loolu mooy problème bi en fait yi lim ki moom yëf yi lañ dindi ci affaire yi man loolu moo ma tiital mhm. man dama tiit rek moo tax ma jug ah nag fekkee ni yàlla may nañu douze personnes mën nañ julli ci mbooloo mais nañ ko def nañ dem jël ay thermoflash nañ jël ay masque nañ jël policiers yi ñu jàpp ñu jàpp imaam yi mais ñu teg la la thermoflash xool sa sa température ñu taxawu ci ci diine boo mënti nekk nag mais ñu jël yàlla jox ko li mu moom. bien sûr man foofu rek loolu rek moo tax mu jóg. man Karim bi ma toogee fii toog sama koñ dégg ñaari waxtu julli jot dégguma ñuy nodd dama tiit dama ñëw si tele bi di leen kaas naa leen da ngeen a war a même mbas mi fu mu mën ci toll da ngeen a war a nodd ndax yonent bi da ko doon digle yéen lan geen si xalaat vous en pensez quoi écrivez-nous sur euh, la page euh, de 2STV l'officiel Karim donne son opinion il est nor c'est très normal qu'il donne son opinion yéen lan ngeen si xalaat Moussa et de l'autre côté notre invité moom mu ngi ñëw di wax action yi nga xam ne ñoom la ñu jot a def ñu dem xool élément bi ma doon laaj Grégoire su fekkee yemb na ñu xool ñoom li ñu jot a def foofu ci caaro yi euh, le débat continue est-ce que jàkka yi dañ leen war a tijji ou pas en a débat sur l'espace public d'ailleurs dinañ ci dellu si waat loolu mooy nekk sama beneen question par rapport ak mbir yi ayca ñu dem xool élément bi Grégoire si c'est bon. te fi nga toog dër gi ñëw dafa fa la dem marché la jox ko masque. léegi am na beneen loo bi war a ñëw. am na kii moo naral corona kii sa masque kaw bu baax. am nga am takkal. kii ma ne masque bi nag bu ko suñu métti nag. mag a sol. bi nag moom masque bi bu ko suñu am na li may laaj. déedéet déedéet ñu ngi koy poot ñu ko dal na ko weer ko. waaw mais original la. acca original la bii mooy mbokku syndical. yàlla yàlla fàmm rek. jërëjëf. gisee gisee gisee gisee. de retour sur le plateau di ko sant bu baax di ko gërëm moom Moussa mu ngi foofu ci euh, caaro yi ànd ak ay mbokkam ak ay xaritam ànd ak ay moromam ñuy def liggéey bu am solo ci wàllu sensibilisation kon Moussa ni ngeen koy jàppee. waaw euh, nii lañ ko jàppee et je peux dire que ça ce ne que le début euh, c'est le début du commencement parce que franchement euh, certes nous n'avons pas les gros moyens euh, que l'État a nous n'avons pas les moyens des ministères etc mais suñuy cotisation. yu ñuy dajalaatu de gauche à droite ñu ngi ciy góorgóorlu pour def le maximum de ce que nous pouvons lii nag ce n'est que début on a fait les porte à porte nous un peu partout euh, à Thiaroye Euh, dans notre commune euh, on est allé voir les familles euh, comment dirais-je expliquer leen d'abord parce que il ne s'agit pas seulement nga ñëw joxe masque boo xoolee ñi ngi tooñ suñu paa yi di leen di leen di leen yëngal xam nga di leen ne mënoo sol masque nii lañ koy solee et cetera mhm. donc on on essaie de relier l'utile à à l'agréable mhm. on essaie d'entrer en contact avec les populations pour leur parler on essaie d'offrir les masques mais aussi tout en expliquant l'utilisation des masques parce que maa vidéo yi maa ngi koy euh, expliquer femmes yi boo xoolee ñu ci bëri ndeysaan dañuy xaw a jàpp ne boo takkee masque da ngaa séexlu nit ñi boo takkee masque da ngaa xeeb ñi nga dendal man su ma toogee takk masque yow takk yow takkoo masque damay jàpp ne su ma takkee masque rek xaw naa laa xeeb wala xaw naa laa séexlu il faut que mu leer ci bopp ñëpp nga expliquer leen que sol masque bi mooy am sa fulaay bopp protéger sa bopp donc loolu euh, c'est dans le cadre des sensibilisations que nous l'avons fait c'est pourquoi ñu ne euh, lii nii euh, comment dirais-je c'est un bon commencement pour euh, pour pour pour pour ñun. Mhm. et ñu ngi ñu ngi xaar suñu deuxième commande masque yi ak suñu deuxième commande gel yi et nous lançons ici l'appel à tout le monde à commencer par l'État du Sénégal qui doit nous venir en aide. parce que man je ne peux pas comprendre. di nga nag Pape Sidi. Mhm. am loo xam dama bëggoon mu leer. lan la Karim. gis na lors des élections présidentielles euh, ceux-là qui étaient retenus je ne parle même pas de ceux-là qui étaient recalés mais ceux-là qui étaient retenus li ñu génnee ci masque ëpp na 20 millions de masques ñi nga xam ne ñu euh, euh, je veux dire euh, casquette euh, je m'excuse laa bëgg a wax li ñu génnee ci casquette ëpp na 20 millions de casquettes tey le parti au pouvoir li mu génnee ci casquette moom kese kese kese ëpp na 17 millions de casquettes mais comment se fait-il que tey. mais ils avaient pour le budget de campagne. Euh, maintenant ils ont combien de milliards pour le budget de fight corona. on se aussi la question 1000 milliards. merci combien. 1000 milliards 1000 mais bu ñu séparé fii jëm ci lekk gi fii jëm ci ministère de la santé force Covid 19 am xaalis bu mu yor mais 1000 milliards daal la ñu la ñu la ñu la ñu teg ci. ndox Sénégalais yu ñu war a fay pour une question aussi sérieuse pour une question aussi vitale. Mm-hmm. pour une question aussi catastrophique. bi nga xam ne tey jii bu duggoon ci dëkk bi tey ba am fi yenn doole yi la dal Italie ñaan ñu ko yàlla moo ñuy dal je pense que les gens devraient voir d'une manière vraiment très sereine très sérieuse euh, l'axe où on doit essayer de distribuer les masques à tout un chacun mais tey ce qu'ils ont fait lors des campagne pour distribuer des casquettes à tous leurs militants et ceux la même manière pour distribuer ay ay. waaw mais xam nga Moussa foofu lan moo tax du ma d'accord ak yow parce que benn benn casquette moo gën a cher benn masque. Moussa xam nga lan moo du ma d'accord ak yow foofu parce que politicien buy dagaan baatu askan wi mën na koo kàcc mun na koo wuruj mun na koo leb ci turam jox ko ko ta bu paree nit ki moo koy fayaat te lii question de vie ou de moor la ñun ñii ñëpp ku ci nekk am nga ñaari simis sax gàtt gàtt am nga. Euh, téléphone boo mën a wuyoo te téléphone moo gën a soor moo gën a cher téeméer nit bu ci fa farloo defe naa waslu àq diggante feet yi am ci Sénégal diggante màggal gàmmu ziyaar euh, conférence diggante tabaski korité ainsi de suite ku ci nekk di nga jéem a xënte lu toll ne tarafatal ay ni ngir am yére u ees boo sol ak foo mën ci dëkk ci àdduna bi ak foo mën ci dëkk ci Sénégal c'est vrai que précarité am na ci réew mi waaye boo toogee di xaar politicien boo xam ne xamoo kañ nga koy gis pour mu utal la masque très sincèrement yaa ngi exposé sa bopp te ni nga mën a bañ exposé sa bopp mooy dem ci téyeer bi nekk ci bopp koñ bi nga ni ko téeméeri nga ni defal ma masque mu jàpp ci moom it xam ne fi mu nekk nii réew mi yëpp a lakkandoo mais bu ñu xaaree politiciens yi billaahi wallaahi taalaahi dinañ fi yàgg loolu te ànd ko wér te du ñu gis luy nurook takkandeeru masque te buñ demee ba ñuy jox masque dinañ ci jéem a def seen logo pour brander ko te aujourd'hui la situation est tellement dangereuse que waroo toog di xaar kenn ku ci nekk da war a jóg nga ne lii man lay dal su ma deewee du politicien bi mooy fay parce que fii Sénégal ku fi dee yaa perte même campagne bu amee ñu rey nit wala ay manifestation kooka perte na. mais moom moo tax moom moom toogul mais nag dafay laaj soutien aussi. non mais bu fekkee dafa wax ne état bi na ñu jël jox ku nekk masque loolu laa wax ne bu nit ñi xaar état bi nañu jëlal seen bopp seen ay. matuwaay tey bi ma xoolee ci dëkk bi koo gis mu ngi yor masque. et ça ça me rassure quelque part. Pape Sidi Fall. Uh-huh. xam nga euh, Aly Ngouille def décret daal di def ne ñëpp léegi c'est interdit ngay dox sans masque. Euh, ñu def ci ay loi teg ko et def arrêté génne ko xam nga. Mhm. suñ ko defee parce que dafa am yaakaar ci tailleur Sénégal yi. parce que tey masque yi moom nara lay ne masque original yi moom mënul demee noonu. non non ni mu demee nii actuellement fi ñu toll nii nii nii je pense que corona bi am na lu bari lu mu leeral Sénégalais yi nii mën nañ def consommer local. Mhm. te day gën a valoriser suñu tailleur yi. tey mais loolu tey soo li mu lay expliqué nii man fi fi ma d'accord ak moom dafa am solo dama bëgg loolu sax mu leer mooy état wareefam la. Mhm. def wareefu état la di def. Mhm. mais dañ ko war a dañ ko war a accompagner bien sûr léegi nag tailleur yi très simple boo génnee 400000 mën nga ci am plus de million de masques wala 2 millions de masques. Mhm. mais loolu c' pas difficile c' pas compliqué li ñuy laaj ñoom c' pas compliqué. mais donc kon état moo deful waree fam état deful waree fam loolu de Karim xam ko. Ah, mais gis nga ay saaboo ki ordinaire. Karim billahi wallahi taala li ma xamee ne état bi deful waree ku ci nekk utalal sa bopp. en attendant bu état ñëwee nga am yeneen masque. mais léegi baadoole ñoo noo siy dee malheureusement. je peux mais nañu jéem a xool Moussa man bugguma kenn toog di xaar masque billahi état bi ñoo ko war a def. Mhm. mais connaissant l' état. ak gis leen ni ñuy faral di doxalee ci yenn situation yi bu ñu amul soxla ci yaw amuñu soxla ci yow. Mhm. te comme nekkuñu période de campagne damay bañ kenn ci saw askan loru ci. Mhm. moo tax may araftu nit ñi di leen artu naan leen dimbali leen ñu ngeen utal seen bopp benn masque téeméer jafe na ci ñenn ñi wax dëgg yàlla. waaye am na ci ñoo xam ne xëy na am nañ ko. Euh, ñi ko euh, am nañ ko jéem a dimbale rek jàppale ñenn ñi ñu am ci. Euh, Pape mhm. donc je peux revenir la question pour m'expliquer un peu nga comprendre. bien entendu. xam nga nous ne disons pas que les Sénégalais dañoo war a toog croiser le bras di xaar état ñëw jox leen ku nekk benn masque. Mhm. nous l'avons pas dit. déedéet. lors des fêtes comme ni nga ko waxee muy Pâques muy Tabaski muy Korité booy greffage yi nii teg seen bopp yi ëpp na 300000 francs CFA. dëgg la boo xoolee xale yu jigéen ñi bu ñu soloo tabaski mbaa ñu solo korité ci kaw ba ci suuf mën nga faa compter benn 500000 francs. Mhm. loolu c'est combien de masques c'est combien de masques ok mais dafa am lu ñu wooyee la mission régalienne de l'État xam nga quand les Sénégalais ont mis un État en place c'est pour que cet état la puisse prévenir subvenir et faire face à leurs problème xam nga tey jii nekkul ne yow da nga naan euh, les sénégalais un peu partout fu ñu mënti nekk ku nekk war nga mën a lijjanti sa benn masque rek après oui les gens vont rester là à applaudir l'absence de l'État. Mm, mm. nous n'allons jamais. l'État ne merci beaucoup. nul des cas. amul benn prétexte bu état bi am parce que c'est l'argent du contribuable qui fait que l'état soit l'état et nga xam nga Pape Sidi uh-huh. su ma déggee ñu ne ku ci nekk war nga mën a ut sa masque fi nga nekk ku ci nekk war nga mën a góor góorgóorlu am sa masque même si c'est tey jii par exemple est-ce que état toog na ne sénégalais yi koñ bu nekk tabaxal sa dispensaire bopp. déedéet. est-ce que état nee na sénégalais yi koñ bu nekk tabaxal sa école boobu koñ bu nekk tabaxal sa lycée bopp koñ bu nekk tabaxal sa hôpital boobu déedéet. parce que c'est sa mission moom moo ko def bu amee nag bon volonté bu ko def mais mun nañoo ànd ak moom accompagner ko bu ko mënti accompagner mu encourager ko faciliter ko ce qu'on appelle les démarches administratives. Mm-hmm. voyez ça. Mm-hmm. mais nga taxaw ñu ne. Euh, tey jii l'État doit euh, euh, faire sentir sa présence au niveau des population au niveau des banlieues très reculées même à travers le Sénégal dans cette mission de de de distribution de masques. Mhm. xam nga après ñu bëgg a taxawaa ñu ne ne way way way mais les Sénégalais aussi doivent se débrouiller c'est vrai mais c'est parce que peut-être certains n'ont pas fait le terrain. Mm -hmm. certains n'habitent pas certains lieux. ñun démb bi ñuy génn quartier Minam Tafa Sarr mi ngi may dégg. je le prends en témoin Idi Diakhaté mi ngi may dégg président Mamadou Diop président Amady Sarr. Euh, ñi nekkoon ci équipe yëpp grand Abdoulaye Diane ñu ngi may dégg ñi ànd nekkoon ci ci bi barki démb sur la sensibilisation ñu ngi may dégg bi ñuy génn mi nam ay daw lañ fa génnee xam nga lu ma doon génnee fa ay daw. lu xew parce que on avait épuisé notre stock de masques. waaw nit ñi dañ ko soxla. yes I am telling you on avait épuisé notre stock de masques dafa jeex tàkk ba bi ñuy génn nit ñi dañu dañu dañu dañu dañu ñu dañu dàqi dañu laaj mask yi xamuñu lu ñuy def ay daw lañ fa génnee. Mhm. parce que on ne savait pas maa ngi koy wax suñu groupe whatsapp bi ma ne taxaw nit ñi wër ma nan ma ana masque yi yooyu noonu su ma mënoon a def nii luxus yàlla suñu borom wàcceel ma un million de masques ma koy distribuer fu ma toog du ma ko gëmee. il nous faut à tout un chacun pour faire au minimum parce que masques yi xam nga lii tey. ñun par benn lañuy joxe. mais doyut. doyut dëgg la lii sénégalais bu ci nekk trois nga ci war a am boo takkee bi denc bi fóot bi weer boo ñëwee ñibbisi tekk bi nga xam ni moom moo moom moo tilim nga fóot ko weer ko jël bi nga denc takk jël beneen denc ko en réserve. Mhm. parce que xamoo lii par exemple avant maa ñibbi jaaree mun naa réer ci yoon bi. Mhm. te instant bi moom kese laa yor normalement war naa ci ay stock. Mhm. tey jii bu fekkonte ne ñun amoon nañu les mooy mais duñ distribuer benn masque par popula par par personne. Mhm. on allait distribuer au minimum trois masques par personne. Mhm. donc li la wax sànq am na loo xam ne bu ko état defee dañ koy tàcc bu ko état deful nag ñun dañuy jël suñu yoonu bopp. Hmm. tanaan ko yaa ko war a def koy def waaye yaa ko war a ah, def je suis parfaitement d'accord ñu ngi dellu si waat ci lii sa wareef la boo ko defee sa wareef la. boo ko deful sa wareef la mais ñun ñu ngi def te nga xam ne nag boo ko defee suñu alal nga yor war ko cee def boo ko ci deful tamit suñu alal nga yor war ko cee def. Moussa Moussa ñu ngi dellu si waat ci yow tuuti li nga wax am na solo li moor gën naan xale Sénégal ku leen juróon yërëm leen mm-hmm. état bu Sénégal nanu dimbali nit ñi wax dëgg yàlla joxeem ceeb baax na waaye dafa am loo xam ne moom moo waral joxe ceeb bi mooy coronavirus Moustapha Diakhaté je pense que keroog ci émission bi mu ngi koy wax lu leer la wax mooy autoconfinement comme nit ñi mënuñu leen a téye ndax amuñu lu lekk faaw ñu génn uti ko nañu leen utal ay masques 30 millions de masques mooy objectif pour 15 millions de sénégalais ku nekk gàtt gàtt nga am ñaari masques ku am ndimbalu état boo ci dollee sa ndimbalol poos mm-hmm. war na laa mën a dimbale mais ça c'est le devoir de l'état mais dama bu gars yi xaar état bi parce que état bi des fois balaa ñuy agir. balaa nga ko xam Karim def concert ba pare état bi war ko fay wala trésor war ko fay dina fa xaar 3 mois wala mois door a jotaat xaalisam Moussa li ngeen di def am na solo loolu maa ngi dellu siwaat ci yow ci kanam tuuti bala bala ñu terminer ñu yemaat ci mbiru jàkka yi ak jumaa yu ñu te loolu moo waral Karim Xurum Xaq woo ma c'est vrai que nous on avait posé le débat euh, l'élément c'est bon euh, Bira on va le regarder tout à l'heure euh, c'est vrai que euh, ñu bëri dañ may wax ne ma Pape Sidi tu poses des débats je, je cherche des mais pour ce sujet là c'est Karim qui m'appelait Pape Sidi man dama bëgg a ñëw ci émission bi parce que dafa am lu ma naqari dama ci bëggoon wax man c'est là où vient ma question yow kam Karim bokkoo ci association des imams et oulémas du Sénégal <laughs> mais pourtant c'est toi qui poses le débat ana lan moo tax waxuñ ci waaw mais imam yi am na imam yi siy wax cest à xam nga moom laa la expliqué sànq euh, dafa am ay ci biir imam yi daf ci am ay affaire benn lij-lij bu ci am mhm. Euh, des oulémas yi ngi wax noonu wax naa la sànq ne la gis nga ni ñuy expliquer rappeurs yi ni ñuy demee ci palais bi ne dañuy lijjanti ay xaalis gars yi naan rappeurs yi dañuy dem ci président am leen jox ay subvention mhm. dañuy lijjanti nga euh, les impactés noonu la imaam def tamit déedéet noonu la sëriñu daara yi def du imaam yëpp nag quoi xam nga du rappeur yëpp ñooy def loolu mhm. xam nga du activiste yëpp ñooy def loolu mhm. noonu la amee ci imaam yi ak sëriñu daara yi moom laa la wax sànq ne la su bëggee def dara ci diine bi dafa am ay imaamam spécial yoo xam ne moo leen yor ñoom ñooñu lay utiliser ñooñu ñëw jël ay jël ay ay par rapport ak yi nga xam ne boo ko yonent yoo bokkul ak suñu contexte yi mais di bëlëg di lëndëmal askan wi ay nit yoo xam ne ñoom ay nitu dëgg lañ ay jurit dëggantaan dañoo gëm ni jàkkee dañ ko war a tëj te jàkkee kenn waru tëj parce que dañ leen nax comprendre ñu lii nag li ma li ma la bëgg est-ce que pour comprendre ko man Abdou Karim Gueye man benn waay laa rek un jeune rappeur ma koy leeral man rappeur mhm. boo xam tamit man damaa bëgg diine damaa bëgg sax bëgg diine yàlla yàlla bëgg la ma ko mhm. ko doon ko bëgg diine damaa man parce que damaa gëm ni lu dul dine dine moo ko gën. Mhm. te dama xam ni dañoo nekk ci piège boo xamante ne ñun ñun ñëpp ci pëttax mooy dañoo boole suñu lépp di ko doxal te boolewuñ ci yàlla ñu am président boo xam ne musulman la ñu ne 95 pour cent de musulmans ñu ne 5 pour cent de chrétiens ay nit yoo xam ne dañoo gëm yàlla mais lépp lu ñuy def yàlla mooy mujjee ñëw yàlla ñu mujjee xalaat yàlla ñu mujjee te yàlla moom lépp mi mel nga El Hadj Ndiaye bi ñëw ne ko noo génn léegi yow déwén ñu def ñu lu c' est loolu mooy problème bi. bien sûr léegi nag piège yi ñuy daanu yëpp mooy ah nattu yàlla bu wàccee mais su waaye gis nga feebar bi yàlla rek ko mën a dindi amul keneen ku ne la mën na ko dindi day nax boppam. Mhm. masque ak gel antiseptique ak nuuroog tëdd ci kër ga bokkatoo confinement ak yëpp joxe ceeb ak lu ñu mën ci def feebar bi mbooloo ñooy dem jaamu yàlla mu jéggal ñu ñu ñaan yàlla jële ko fi yàlla jële ko fi yàlla rek moo mën loolu keneen mën ko. mbooloom bu gaa yi bu ñu sari bu ñu bàyyee xas xas day daw yi daw ci jàkka yi ah mais ñi julli ji nga léegi yàlla yàlla tegi feebar bi mais loolu nag ngëm yàlla boobu nag moom lañ sàggan ba mel ne lu ñu rocc ci ñun da xool atmosphère Sénégal sa état da lay a sax jox atmosphère Europe yooyu nga xam da toog doo sax dégg noonu c'est dangereux te lii jullit bu mu tiitul am nga war tiit mais jàkka bu noddul yow la neex parce ñu ngi bàyyi jàkka yi ak Sénégal nu ragalee police. mais kii noddu war na mun dem mu noddu. moom laa expliqué sax message boobu sax yeggul carrément ci ñoom bi euh, ñu noddu 20h moom. yëpp a déclenché parti ba mhm. mhm. internet ñëpp mën nañu ciy wax suñu soxla mu yegg fu mhm. nekk. mais xam nga dama jàpp ni fépp foo xamante ñi ña nga bàyyi xel rek war nañu fa mën a toog wax ko pour nit ñi dégg ko. Pape Sidi Fall damaa romb Paris sportif ñu tijji ko ñu fees fa del Paris sportif xam nga parti sportif. maa ko romb nga xam ne moom LONASE mu société nationale sénégalaise dañ ko moomale Sénégal te xaalis bépp xaram ñu def ko ci xaalisu contribuable bi jël ko di ko jox sëriñ si ñuy ñaan fu muy nango loterie la. dafa xaram te faa xam. Mhm. c'est que yooyu laa est-ce que léegi man romb ko ma ne mais lan moo tax Youssou Ndour def soirée këram dajale 5 personnes 6 personnes wala 12 personnes ñu koy tëggal mu naan day bégal ay lu tax Coumba Gawlo Seck def même chose Pape Seck Pape Diouf chose te police xalaatul taxaw seen buntu kon ni ko defee imam yi doon waaj a julli keroog fële ca ñaari tali cest à foofu laay waxee quoi cest à mooy li ma wax ni la second plan lañ def diine bi diine bi yàlla lañ joxul cëram après ñu bëgg ci génn fan lañ ciy génne Pape Sidi Fall dañ ñu nax dañ ñu parce que ñoom ñëpp seen loge franc-maçon yeeg seen li ñu nekk yëpp ñu ngi ciy dox carrément seen la wax Trump dafa génn carrément ne gars yi nañ gën a xeex confinement bi bu kenn toog ñuy confiné États-Unis ñëpp a génn di ka ñëpp dañoo sonn ci confinement bi parce que feebar bi tey li ciy rayee ñi mu ray ñëpp dafa fekk ñu feebar dañ dëgg rek dañ koy moytu lu ñu mën nañu ñi def ñu mën yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ko yàlla teggi Sénégal mhm. mais dañoo tiit ba àndatuñu ak suñuy xel te nit bu tiitee rek dootul xalaat léegi nag xel yi nañ dellu si waat nag maanaam feebar bu doon mbër la ah, am na mbëri ko daax bëri fuuf te sibiri bi li muy rey ci Sénégal di ko rey ci Afrique feebar bi di ko rey mukk ci àdduna malheureusement insuffisance rénale bii mi ngi toj pour dante gii te état defu ci dara plateforme santé Sénégal dara baaxu ci ñoom ñi ngi wax ay së yaakaar ne raxasulaak sël moo ko séddale ceeb kese soku Sénégal seen réserve sax matul deux mois bu ceeb bi jeexee après xiif bu gën a graaw moo dara ñëw ci réew mi te xiif a gën a graaw la nga yor bëgg lu jënd pour lekk doo ko gis boobu plus de ay 60 60 pour cent de la population mën nañ da ngay combattre dara dañ ne loo gis day ànd day ànd ak mesure d' accompagnement gis nga sama waajaa ngi nii di jaayante nekk ay jeunes ñoom ñëpp ñu dajale seen xaalis jël ay masque jël ay gel antiseptique ko leen accompagner ba masque yi jëx ñoon mhm. <clears throat> la Pape Sidi Fall 50 millions nga jël milliard génne ci 50 mu des 950 nga ne loolu nga def ci ci ci ci ci ci ci bi cest dama bëgg Sénégalais yi soit seen xel quoi solution problème bi yàlla la nit ñi bu ñu fi bàyyi yàlla yaakaar leneen mooy régler problème ñi ngi nax seen bopp alxuraan dafa leer amul ah, baqara ba naas dafa leer gis nga gars yi ñuy wax ni aaya bi nii nee nañ noo kii xamul dara day wax lu mu xamul xama lan la lii dëgg mooy nit ñi nañu ragal yàlla te bàyyi feebar yi ñuy ragal parce que même ñi nga xam ne sax ñi ngi nekk ci leen mbiru àdduna yi sax ñi ngi dajaloo di régler i problème lii ngay joytu nii ci pour ñu ubbi jumaa yeeg jàkka yi mm-hmm. est-ce nga ci imaam yi nga xam ne ñoo war a jiite parce que bu ñu ne ubbi nañ jàkka yi kat imaam yi nanguwu ñoo dem ndax bëgg a respecté ndigalul buur euh, dina jafe kuy jiite Pape Sidi mhm. communication bi ñu def nii ñi dañ koy def ci fépp foo xamante nii mën nañ fa toog waxukaay bu ñu mën a dem télé rajo internet fépp nañ fa communiquer ba leeral Sénégalais yi ne leen dina may na douze personnes julli quinze ñu xool image bi Bira si tu le permets bien sûr on regarde cette image on a vu euh, ci benn jàkk boo xam ne nit ñi dañu dandan ci wala war a tolloog benn mètre imam bi taxaw si jàkka ji li fi nekk ëpp na douze waaye ku ci nekk ak euh, maskam ku ci nekk ak euh, disposition yi nga mën a jël pour mën a wattandiku wante mais jàkka yi tëjuñu leen xëy na lii euh, le Karim bëgg ñu amal ko Sénégal mais bon je pense que bu ñu nee am na ñoo xam ne dañuy def ay soirée wala concert c'est que da ngay da ngay ut lay ba sonn ngir bañ ragal après ñu def leneen loo xam ne loola bu ñu ko mayoon jàkk yi wala jumaa yi xëy na doo am loo wax mais bon je yi ak jumaa yi droit ñu julli fa ay 5 6 dafa leer ci wax li dafa leer dama ne la Macky Sall avril dafa ne day symboliser date bi pour ñu défiler biir palais présidentiel parce que c'est la constitution c'est la république léegi nag Sénégal boo laalee sëriñ bi ñëpp tëpp dal sa kaw boo laalee diine bi moom kenn du la faale te diine mi ngi fi depuis 1400 ans moom ak sëriñ sëpp Seydina Mohamed mooy ilimaanu ñëpp c'est que dama bëgg mu leer. Mm-hmm. waruñu ñoom ñoo warut war ñu may fitu ñu naan dañuy tëj ay jàkka ñun ñoo war a wan leen ferme suñu diine bi comme ni ferme ci këru diine yi mais loolu kese la ñu def communication leeral Sénégal yi ne dañ leen a nax jullit mën naa nekk ba pare ñu dem fépp fu ñu mën a waxee ñu wax ko ba noppi mhm. après bu fekkee ne nag mënuñoo julli bàyyi ñu julli ñun nañ teg bërëb boo xam ne dañ fay daje julli woo imam bu volontaire mu ñëw jiite ñuy julli. yàgg ngaa défier loi mais bii defe naa. défier dafa gën a grave. <laughs> dañ naan la bul marche Karim nga jaar foofa marche ñu jàpp la yóbbu ci kaso bi. Karim fi mu nekk nii da nga tawat. a maa ngi sant nag parce que maa ngi sant bu wér yi ñu xool naka la utalee Sénégal yépp fu ñu jullee. nañ ko def joo dégg nañ ko waxtaanee moo ko jiitu man damaa toog ci télé àdduna bi ma seetaan may wax lu leer may expliquer ne ñun en tant que musulman des jeunes musulmans nañ leeral ñëpp ñu xam ni diine mayewul ko tëj benn borom xam-xam bu taxaw ne la yonent bi tëjoon na jàkka yi nee ko xoolaat li muy wax jàkka yi kenn mësu tëj. ah fii de invité naa fi oustaz. wala mu génneel ma addis buy wane ne yonent bi moo waxoon Bilal ne ko tey boo noddee neel sallu ala buytikum ci laa jàppee phrase boobu mhm. yu bari yu nekk ci télé yi di wax ay dóorkat lañ. nii lañ def ak Macky Sall ay subvention de chaque jour ñu ngi bokk seen cartable yi di dem ci di dem ci chaque jour la ñuy bokk seen cartable yi di dem ci di dem ci euh, euh, ministères yi di lijjanti comme rappeurs yi ak activistes yi ak journalistes yenn journalistes vendus ni ñuy demee di lijjanti noonu la ni état di utiliser terewul nag dëggu yàlla bi kenn mënu ko nëbb te dëggu yàlla bi mooy même 12 personnes mën nañu julli jumaa 5 vendredi Sénégal kenn julli jiw loolu du dëgg kenn julli du dëgg xool te Touba ñi ngi julli Ndiassane ñi ngi bëgg nag lay julli foofu noonu mu dox nag xam ne ñoom prières yi dem julli ji weeru koor baa ngi ñëw dañuy jaamu ci yàlla kenn du ñu tere jaamu yàlla ñoom ci li ñu bëgg nekk ñu ngi ciy nekk loolu la wax de dama ne noo ko def nañ ko def goo dégg nañ ko waxtaane moo ko jiitu ñuy wax na bu ñu paree nag soo koy appliqué léegi nañ may communication bu dëgër leeral ñëpp ba pare ba mu mat une dañuy julli ji kenn duñu tere julli ji weeru koor moom kenn duñu tere may wax Macky Sall ñu yàpp bu tool mais nañu respecté non loolu proposition bu mu doon def la rek <laughs> Karim kalmal nañ wax ci julli gi rek. mais benn c'est pareil 18 heures mooy tax duñ julli ji duñ dem jumaa duñ dem euh, baax na dinañ dinañ xool euh, ndax Sénégal ñu ngi wax ndax dañuy def confinement ou pas confinement et toi tu pars penses que dañu war a julli ji ci jumaa yi bon. ça c'est les affaires de Karim Xurum Xax euh, Moussa yegg nañ ci cëppaandaw émission bi maa ngi lay sant bu baax di gërëm yow ak ndaw ñi nga àndal lan moo nekk sa message pour ñi nga xam ne ñoo nekk Caaroy ak liggéey bi ngeen di jot a def pour euh, wàllu sensibilisation foofu ci Caaroy euh, Pape Sidi man fi ma bëgg a waxee muy ces gestes là que nous sommes en de faire pour combattre le Covid-19 à Caaroy à Dakar au Sénégal et dans le monde mhm. xam nga tey jii les trop focalisé sur la question alimentaire muy ceeb yi ak diwlin yi mais ceeb yi ak diwlin yi actuellement ça crée plus de problème que ça en règle nga jël tey euh, euh, euh, commune bu Djeddah Thiaroye Kaw par exemple nga dem quartier bu mel ni Daaru Rahman mais ba ñuy waxee ay waxu monté comité ciblage trois chefs de quartier ñoo présenté wu ku nekk ne man maay chef de quartier bi par exemple léegi loolu fan lañ koy réglé. xaw ma ko demoon. ce sera un sérieux problème. <laughs> nga ñëw tey jii quartier bu mel ni phase 3 mais ba ñuy teg seen comité ciblage mais ay coups ñoo fa jóg. mais dañoo xeex ba ni saay ils se sont bati pour monter pour monter leur comité de ciblage de quartier mais imaginez-vous tey là où on interdit les rassemblements la où on interdit euh, que les gens fassent des groupes et cetera pour euh, avec pour faire euh, pour euh, pour faire face à la maladie nit ñi di dajaloo di xeex ndax lan. doo chef de quartier man maay chef de quartier waroo nekk ci commission bi man maa war a nekk ci commission bi léegi fii mu ne nii tey au lieu tey nit ñi focaliser wu ci feebar bi nga xam ne mooy coronavirus ñu am plus de vingt cas communautaires de lendi à lendi cas communautaires yi wasaarewu ci biir dëkk bi nekk ci biir bus yi nekk ci biir taxi yi nekk ci biir télévision yi nekk ci biir rajo yi et cetera un peu partout kenn xamul kan moo feebar. nit ñaa ngi dox ci dëkk bi mais tey kenn mënu laa wax kii ak kii ak kii parce que bu ñu la nee cas communautaire mooy lan même lui le porteur même lui le porteur il ignore qu'il est porteur mm-hmm. même lui le malade il ignore qu'il est malade donc tey jii je pense que Euh, même cette question-là de la distribution des denrées alimentaires mais ça doit être ça doit mm-hmm. mais nga dem tey jii dans les quartiers nit ñaa ngi fay nekk di xeex. nit ñaa ngi fay nekk di distribuer sur les 66 quartiers de la n'a reconnu que a problème. sur les 66 quartiers de la commune le maire n'a reconnu que 52 quartiers léegi les autres quartiers sont en train de se rebeller pour dire ñun tamit quartier lañ nga dem tey quartier bu mel ne Léona 2B nga dem quartier bu mel ne Léona 2B ñoom ba joon yàllaay tey amuñu commission de quartier pourquoi. Moussa baal ma nga tënk rek parce que temps bi jeex na. voilà baal ma nga tënk rek ma tamit fu ma bëggoon nga dimbali ma. Uh-huh. ma tënkee ko balaa ngaa tëj mooy gis nga Pape Sidi. Mm-hmm. actuellement l'heure est grave. et les gens doivent franchement multiplier les efforts pour combattre cette maladie la mhm. En quoi faisant? En descendant sur le terrain, en aidant les populations, en allant faire les porte à porte. Ñun nag encore une fois mouvement waa gox bi Thiaroye gox bi national gox bi international comme ni ma koy faral di waxee nous lançons encore l'appel à toutes les bonnes volontés gis nga nit ñi xaalis bi ñuy baatare soirée Wally Seck il est temps ñu baatare ko ci biir banlieue bi dimbalee ko nit ñi. xaalis bi ñuy baatare ci ay grand théâtre xaalis bi ñuy tere ci ay euh, Daniel Sorano il est temps ñu jël xaalis boobu dimbali ci doomu aadama yi nañu bàyyi. Mhm. ñu nekk ci tele yi def ay téléthon ñu naan ndeysaan diw yaa baax diw sa ndey a baax diw ak a gore nga ne joxe naa 20 millions. ñu ne ndeysaan diw yaa baax diw yaa mel nii nga ne joxe naa 30 millions nañ bàyyi loolu Moussa maa ngi lay sant bu baax àdduna da ngay dimbali nit ñi te yàlla tax temps li ngay wax yëpp am solo euh, waa Thiaro yëpp euh, ñu ngi euh, rafetlu sa taxawaay ñun tamit ci plateau bi loolu moo waral ñu invité la ndax liggéey bu am solo bu ngeen def ci wàllu sensibilisation yàlla nañu yàlla teggil jàngoro def rafet na maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci danga may may nag ma sàcc tuuti ah, ah je vais faire la publicité du mouvement waa gox bi très en deux secondes en deux secondes dañoo bëgg waaw dañoo bëgg. waaw du Sénégal. xam ni sama numéro man. Mhm. mooy 77. Mhm. ñëw Caaroy jàppale waa Caaroy. d'accord ñëw ñu wax leen lan la waa Caaroy soxla ñu dimbalee leen. message bi na jàll ci ministre de la ministre dafa war a wax à dix heures pile il est 57. merci beaucoup Babou Sidi je comprends Karim Xrum Xax il est venu moi je pense que moi je pense que. chaque sénégalais a le droit de dire son opinion. ku ci nekk am nga droit wax sa xalaat. muy sénégalais bu mu mën ci doon on vit dans un pays de démocratie Karim bu xalaatee benn mbir da koy wax keneen xalaat beneen mbir wax ko. la démocratie nous le permet et le débat va être posé. il est d'accord il est favorable pour ñu ubbiwaat jumaa ñu bàyyi au moins douze personnes ñu julliwaat fa. c'est son opinion maintenant le débat est posé est-ce que ça va être appliqué ou pas. En tout cas, on aura essayé, nous, en tant que média, d'avoir posé le débat. Merci d'avoir euh, posé ce débat, Karim, d'avoir répondu aussi à l'invitation. maa ngi lay sant bu di la gërëm. Pape Sidi maa ngi di remercier sama waa ji ah, di wax ni Macha Chelem maire bi da ko da ko da ko tëjji ba pare te pour am na ay jàkk ci biir maire bi. te marché HLM ay tuuti rek lay jaay jaay lay lekk mhm. donc loolu laa doon waxaale pour gars yi bàyyi ko xel di wax Sénégal yëpp nag vraiment maa ngi maa ngi nii ziar di wax ni nañ ma jërëjëf Karim jërëjëf merci beaucoup xam naa marché HLM bi fu mu jugee mais bon on en reparlera de l'autre côté comme chaque 10 la déclaration du ministère euh, de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr les propos nous sont toujours recueillis par l'ASANA il y a un gars qui est un internaute qui nous a dit mais comment l'ASANA Cheikh Diaby et Pape Sidi vous faites pour tenir le rythme et le coup depuis le début de la pandémie mais bon on est juste euh, motivé parce que bëgguñu dara loon leen l'ASANA maa ngi lay nuyu jolie jolie très très très jolie chemise jolie la madrasse merci beaucoup Pape Sidi euh, dafa fekkoon son bi xaw a wàcc ma naan Omar na yokk donc boo mënee répéter tuuti rek li nga wax comme ça ma mën ko dégg. dafa am benn waay ju ma yónnee yónnee message defe naa yow la ko yónnee nga yónnee ma ko. mu ne ah. comment yow Cheikh Diaby ak man nan la ñuy def pour tenir rythme bi bi pande bi commencé ba léegi maanaam la sa simis bi nice na noonu. merci beaucoup mais je pense que yaa ma dàkkale bu ñu génnee il faut ñu gisee nga dolli ma ay masque ndax sama rupture dafa mel ni léegi mu yegg ci euh, sama stock mu yegg ci rupture. déggal ba naan Moussa Moussa Sène moom mu ngi fële de l'autre côté avec Cheikh Diaby avec leurs invités dans Alerte Coronavirus comme ils le font chaque 10 heures après la déclaration du ministère de la santé et de l'action sociale ci heure nga xam ne moom la Sénégal yëpp di passé examen mooy heure bi ñuy wax nombre de cas yi defe naa moom mooy heure bi ñu gën a ragal ñun ñii waa Sénégal Cheikh maa ngi lay di la ziar. mais Pape Sidi maa ngi lay fay di la delloo ziar. mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw ah, maa ngi sant yàlla di rafetlu kàddu yu baax. macha allah émission bi neex na. jërëjëf. sa gars yi kilifa leen de dama bàdde ci ñoom sa ñoom <laughs> dama daanu leer quoi. <laughs> sama gars yi moom ñu ngi ñu ngi waajal mais xam naa ni koor gi moom dañ lay bàyyi man ak Laasana dañ lay bàyyi nga dem yow ministre bi rek parce que heure bi moom. waaw <laughs> ah, koor gi xam nga koor gi nag yaa ngi ñëw ci guddi gi ci entre temps. xaw ma je dois trahir le secret wala déet mais c' bien aussi ah c' bon à pour que téléspectateurs yi xam ne Pape bu bàyyee fajar

et ce sera toujours dans le cadre de la sensibilisation mais on va y greffer aussi les émissions de soir que vous aviez l'habitude de regarder les émissions de Adama Kandé de Modou Mbaye Bantamba et de Cheikh Diaby euh, avec ses invités comme euh, les, les les politiciens les plus grands noms de les plus grands renommés les politiciens les plus grands politiciens de ce pays Lassana ma dellu si waat ci yow démb moom jotu ñoo waxtaan waxtaan wu yaatu ndax euh, déclaration ministre bi laataa mu yegg si fekk na ñoom nañu kàddu gi mhm. Lassana point fi mu nekk nii mu ngi gën a noir ci cas communautaire yi waaw ndax euh, am nañ lu toll ci 42 euh, cas communautaire bi euh, mbir mi dooree ak léegi xam nga 42 nag xaw na takku ndax cas communautaire bu ci nekk bu fekkee laataa ñu la détecté yaa ngi woon ci nature bi fu ci nekk nga dem fa nit ku nekk nga am ak moom contact point boobu mun nañu wax ni day noir ndax bu fekkee kilifa yi defoon nañ seen kéem kàttan ci ñoom seen marge de maneuvre ba jëlee fi li nga xamante ne moom mooy cas importé ndax ñoom loolu seeni i décision bopp la ba mu def nañ ci volonté politique fi am na yeneen yoo xamante ne nag ñun suñuy euh, volonté bopp la war a doon ñun ñi nga xamante ñooy askan wi ñun ñi nga xamante normalement ñun ñooy patron wu euh, waa exécutif ñooy patron wu waa législatif bi ñun ñooy patron waa judiciaire bi ndax ñun ñooy euh, askan wi le peuple moom moo souverain comme ni ñu koy faral di waxee te fii nag je pense que fii nii la ñu war a wonee seen bopp ni kilifa defee tey jii Pape ba jëlee fi li nga xam ne moom mooy cas importé yi te ñu xam ne ci seen coobare li nga xamante ne nag moom mooy cas communautaire yi askan wi ñoom ñoo a jëlee xool tey jii nii comme que dañu naan le Sénégal euh, a un peuple très très mature war ñu xool tey jii ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy dirigeant du ko yóbbu ndax nag peuple bu nekk dafa ñuroo ak ay dirigeant am yu nekk ay peuple am euh, kon la ko bor la ko borom bi di euh, jagleel ñun tamit nañ fexe ba défi bi nga xamante ni kilifa yi dañu ko lancé ñu jëm ko relever ndax c'est très possible il suffit juste pour ñu bëgg ko ngir mu mën a nekk doon seetlu ne dañ doon wax ne cas importé cas suivi par nos cas contact suivi par nos spécialistes mais léegi dañuy wax cas communautaire. Mm. mais bu ñu waxee cas communautaire ba pare dañ ciy dolli diwaan bi cas communautaire bi dëkk. mais terewul nit ñi ils continuent à vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était des mm-hmm. fois nga dégg ñu ne cas communautaire am na Guédiawaye wala mu am Pikine wala mu am Touba mais boo demee ci zone yooyu dafa mel ne nit ñi dégg nañ ko mais bon on sait que la la maladie e là mais bon nous on continue à une vie très normale ignorance la wala ñàkk xam gravité danger bi di Covid 19 la. waaw mais dafa am euh, benn euh, adage buy wax ci euh, français ne nul n'est censé ignorer la loi Pape bu fekkee mbir dañu ko tëral ne ñëpp dañ cee war a jaar amul benn citoyen boo xamante da nekk ci réewul boobu ne yow yëgoo ko loolu moom je pense que faute la en matière de droit léegi nag bu fekkee dañoo am ay citoyens yoo xamante ne yenn saay peut-être ñoom dañ naan seeni soxla moom moo leen yitteel li nga xamante ne moom mooy seen santé wala aussi santé ñeneen ñi man je me yem mais kooku il est peut-être libre de vaquer à ses occupations mais dañ ne la yow boo ko amee euh, tey jii nii képp koo xamante ni ngi ci sa entourage képp koo xamante euh, yaa ngi dajeeg moom ci sa bërëbu liggéeykaay kooku aussi mi ngi en kon kooku je pense que tey jii nii euh, Pape état bi moom moo war a wonewaat boppam parce que je rappelle que ni couvre-feu bi ni ñuy amal de 20 à 6 du matin c'est pas la seule règle bi nga xamante moom la autorité ma ko sentir xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ñoom ñoo war a fexe ba ndigal yi nga xamante président de la république moom moo ko jël jox ay ministères ay marge de manœuvre pour ñu doxal ko mais ngelaw ñoom nañu ko doxal tey je pense que la présence policière doit être plus euh, pré euh, plus visible ci li nga xamante ne mooy ci terrain bi ñu ngi naan masque masque daf dañ ko war a sol ci lieu c'est dommage que euh, généraliser wuñ ko partout ñu ngi naan c'est obligatoire mais ci quatre lieux donc waaw kay ba suba ak jàmm la jaajëf passe une bonne journée. sur la pandémie Covid 19 au Sénégal. Ce mardi 21 le ministère de la Santé et de l'Action sociale a ci-dessous. Sur 466 tests réalisés, 35 sont revenus positifs. Il s'agit de 34 cas contacts suivis par nos un cas issu de la transmission communautaire à Niaritali, ici à Dakar. Sept patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable et aucun cas grave n'est à signaler. À ce jour, 412 cas ont été déclarés positifs, dont guéris cinq décédés, un évacué et donc 164 sous traitement. Le ministère de la Santé et l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi ñëw di leen di jottali lim bi nga xamante ne am nañ ko ci mbas mi ñuy wax Covid 19 fii ci Sénégal. ci bésu tey bii talaata di ñaar fukki fan ak benn ci avril 2020 ministère de la santé et sociale jot na lim bi ma leen di bëgg a jox ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yi ñu def fanweer ak juróom dellu nañu am doomu jàngolo ji ci yooyu fanweer ak ñeent moom la wax cas contact mooy yi nga xamante ne ñu ngi leen di saytu si suñu bërëbu liggéeyukaay yi benn ci ñoom jóge na ci li ñuy wax transmission communautaire mooy maanaam ki nga xamante ne kenn xamul fan la jële feebar bi ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj juróom-ñaar ci ñooñu bi ñu leen saytoo amatuñu doomu jàngoro ji wër nañ ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan fu mu toll nii gisaguñ ci ñoom benn cas grave bi nga xamante ne feebaru mbas bii dugg na senegaal ba léegi ñu ngi tollu ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar ci nga xamante ne ñoo yor doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar wër nañu juróom génn nañ ci àddina benn delloo nañ ko réew mi mu dëkk ci yooyu li fi des yëpp mu ngi tollu ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xamante ne ñu ngi leen di continuer di faj ministère de la santé action sociale mu ngi gën a ñaax askan wi ne ñuy topp digtal yi nga xamante ne wax nañ leen ko ngir ñu bañ a jot feebar bi te bañ di ko wàllaate ci yooyu ñu ngi dellooti di tere li nga xamante ne mooy nuyoo ak loxo yi nañuy di raxas loxo yi ak saabu ak ndox boo xamante ne danga toog ak benn nit na ngeen fexe am xàll bu tolloog meetar ci seen diggante bu fekkente ne dangay sakkat wala ngay tisooli na nga yore mouchoir soo paree nga sànni ko ci mbarit bi soo yore mouchoir nga jël sa conc ci biir conc bi nga sëkkat si wala nga tisooli si ñu ngi leen di wax tamit ne dañuy sol masque yi fépp foo xamante ne dafa am rassemblement ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam voilà mu nekkoon donc euh, njiital euh, kon direction santé publique di docteur Marie Khemesse ngoom Ndiaye mu ñëwaat ak ñun ci euh, situation bés bi tee nag ñu gis ni am na beneen record bi nga xam ni am na ñu nemeek ko nag ci nombre de test yi nga xam ne dañ koy amal bés bu jot ndax 466 tests lañ daal di amal ni ki tey loole nag mu suñu ko nemeeku bi jàngoro ji duggee ci réew mi ak léegi muy kon ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yu ñu daal di amal biñ ci noppee nag ñu gis ni kon ñi ñëw doon ay cas positif bari na loolu li ko waral bi lu ñu ko yokkee tollu nañ ci 35 cas positifs muy fanweer ak juróomi cas yoo xamante ni am nañ euh, jàngoro jooju ci fanweer ak juróom yooyee nag gis nañ ni euh, kon fanweer ak ñeent yi di 34 ñoom ñooy ay cas contact yoo xam ne ñoo ñu ministère bi mi ngi leen doon may gët ndax dañoo laale woon ak ay nit yoo xam ni dañoo am jàngoro ji kenn ki nag moo ci doon kon euh, cas issu de la transmission communautaire te ñu ne ca ñaari tali la jóge ñaari tali tamit muy koñ bu xumb boo xamante ni mu ngi fii ci digg Ndakaaru gis nañ juróom-ñaari nit yoo xam ne di sept personnes yu ñu daal di faj ba ñu weer ñu daal di kon euh, dellu seeni kër am na beneen précision boo xam ne tey nemmeeku nañ ko ci euh, communiqué bi muy lu bees nee nañ amul benn cas boo xam ne kon tey gis nañ ko ci lopito yu Sénégal yi ndax démb dañoo xëy wax ñu ni am na ay nit yoo xam ne dañoo faatu te auparavant kenn waxul woon ni ba xam ay cas grave la nag euh, waa ministère bi xamle nañu ni amul benn cas grave boo xam ne am na kon ci lopito yi kon ñu defee kon bilan global bi le 2 mars ak léegi Sénégal am na 12 cas positif muy ñetti téeméer ak fukk ak ñaar euh, ci 412 yooyee am na 242 yoo xam ne daan ci wér ba génn l'hôpital muy ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar mu am nag juróom yoo xamante ne daan nañ ci ñàkk seen bakkan kenn koo xam ne dañ ko delloo réewam te moom sax mu mujj moom it euh, faatu kon mën nañoo wax ni am na tey jii ci Sénégal 164 personnes yoo xam ne ñoom ñoo nekk sous traitement muy téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent nit yoo xam ne jamono ji ñoom ñoo nekk kon ci structure sanitaire yi ñu leen di traité fépp ci réew mi comme nag nuñ koy faral di defee message de sensibilisation bi nga xam ne à chaque fois les autorités sanitaires ñuy faral di ko fàttaliku mooy ñu respecter les cinq gestes barrières am na nag beneen léegi bi nga xam ne moom moo ci yokku mooy képp koo xamante ni da ngay di dem ci ay lieux yoo xamante ni fu ci mel ni ay lieux wala ngay dem ci transport yi wala ngay dem eh, ci service yu administration wala sax bu secteur privé bi ngay daal kon sol li nga xamante moom mooy sa ndax mun nañoo sàmm ci lu bari eh, kon eh, gis nga li nga xamante moom la communiqué bu tey bi daal di génnee ma lay delloo kàddu bi ngeen wëyal waxtaan wi ci seen plateau alerte coronavirus man ma ñëwaat ak yow ci kanam ci laaj ak interpellation yi nga xamante ne suñuy internautes ak suñuy téléspectateurs dañuy faral di ko def di ko compliqué ci ñun ci ay plateforme la ñuy liggéey kon day xaw a jafe kon Cheikh dig daje ci kanam jaajëf Lassana ni nga ko waxee noonu lañ koy defee ñu lay gërëm di la sant di la jox dig jaajëf ci kanam tuuti euh, ci yi nga xam ne jot nga ñu ko taataanal ci wàllu internautes yi nga xam ne bëgg nañ participer ci émission bi ak ñi nga xam ne aussi ils euh, participer à cette émission à de téléphone bi nga xam ne affiché wu na euh, ci seen kanamu écran ngeen ñu ci woo jot ñu ci yeggee ñu seen i laaj wala boog partagé ak ñun li nga xam ne mooy kaddu fii ci plateau bi ci leen di leen gërëm di leen sant di rafetlu bi nga xam ne yéen koy def saa su nekk ak ñun di ci ànd ak tamit sama natango Moussa Sène ci bos bu nekk ci waxtu wi tey nag euh, ñu fas yéene quand même dalal comme d'habitude ay borom xam-xam yu mag euh, këcc njëkk nag mun naa ne aussi moom mooy Ababacar docteur Ababacar Diegane euh, Diegane Faye moom tamit docteur la teew na ci plateau bi dina waxtaan ak ñun analyser ñu un peu maanaam mbir yi parce que tey gis nañu quand même lii di test yi sakkan na lool dem nañ sax ba 400 su ma jumulee 61 tests presque 500. Euh, mu mel ni waaye ci biir euh, test yi nu muy sakkan yëpp gis nañu à chaque fois test yi gën a bëri gis nañ aussi cas yi day a bëri euh, est-ce que loolu aussi amul benn jàngat bu ci war a juddu comme ni ñuy faral di wax bu fekkee nee nañu aussi feebar bi tas na est-ce que lii ça ne confirme pas réellement que effectivement feebar bi tas na ci population bi yëpp est-ce que donc mesure de sécurité barrière yi nga xamante ñu ngi a wax à chaque fois pour ñu renforcer ko kon a jox benn indication bu a claire wala a précise tuuti par ci maanaam borom xam-xam yi ñu dalal bokk na ci tamit le docteur Idrissa Ba moom addictologue la euh, moom xam-xamam dafa màcc ci ñi nga xam dañuy faral di jëfandikoo wàllum sinébar te dañuy wax ni sax ñooñu dañuy nekk une couche vulnérable moom moo tax tey nag docteur ma ne ko ah, yow tamit foog nga ñëw bokk ñu waxtaan bi tamit ñu ñu partagé li ni mel am na solo euh, tuuti nga nga nga nga yeggee ñu tam sa xalaat nga ñoo ñaax tamit ci li nga xam ne yaakaar nañu euh, boo ko indee ci jotaay bi dana gën a yokk euh, li nga xam ne moom moo di jotaay bi mbir mi ba tey nag aussi daa ñu dalal Madiop Diop moom mooy maire Grand Yoff xam ngeen Grand Yoff moom moo di bu ñu si mes calculs sont bons quand même la commune la plus peuplée du Sénégal euh, donte nag euh, ANSD kii mu joxe chiffres yi mu joxe ak boobu ak léegi xaw na am tuuti évolution am na ñu naan presque 450 000 nu waaye habitants enfin enfin bref maire mu ngi fi dinañu indi beaucoup plus de précision par rapport ak loolu mais lu ci munti am jàpp leen quand même c'est la commune la plus peuplée Euh, du Sénégal te kon kooku baax na tey euh, mu toog ak ñun ñu laaj ko gannaaw ba kaa communautaire yi commencé exploser un peu partout ñoom ban taxawaay lañu am ci loolu naka lañ taxawee fas yéene xeex li nga xamante ne moom moo di euh, coronavirus bi nga xam ne lémb ne réew mi ma leen di gërëm ñoom di leen sant di nuyu donc sama natango Moussa nuy naa la jërëjëf Cheikh ñi ngi lay euh, fay di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi comme ni ñu koy defee saa su nekk am ci mbégte waxtu wi nga xamante ni ñoom ñi ngi ñuy teewlu fenn fu ci nekk ci kër gi moo xam biir ak bitim réew di nuyu suñu gan yi nga xamante ni tey am nañu solo loolu fa séene nag waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moo di njariñu mbas mi nga xamante ni mooy Covid 19. jërëjëf Moussa euh, xam ngeen nag feebar bi comme yegg na sa benn mbir moo xamante ne xaw na doy waar moo tax chaque fois dañuy profité parce que tamit koor ñëw euh, on ne sait si le ministère va changer donc manque de stratégie parce que euh, tantôt ils descendent, tantôt ils Bon, c'est vrai que depuis un certain temps, yéeg nañu, mais bon, il y a certaines personnes également qui commencent à critiquer un peu quand cette façon de faire. Enfin bref, nous nous sommes dit à chaque fois que le besoin sera daañu indi les meilleurs spécialistes daañu indi nga xam ne yaakaar nañ ne vraiment bu ñu toogee ci jotaay bi daañu dolli bu baax a baax te li nga xam ne moom mooy aussi euh, suñuy crainte wala wala ay manquements yëpp ñu mun na ci indil ay leeral par rapport ak loolu kon nag dañuy dugg ci waxtaan bi jox kàddu kii di docteur Ababacar Diegane Faye docteur waaw maa ngi lay fay. Victor maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp. Euh, di la remercier ci invitation bi euh, di remercier euh, sama ñëpp ñu ma bokkal plateau bi. di leen wax ni que je suis content d'être là. j'espère que dinaa mën a indi quelques éclairages ci Covid 19 bi nga xam ne dugg na fi depuis le 2 mars. ki nga xam ne moom mooy principal euh, actualité bi fi am. muy mm. rythmer sunu vie depuis quelque temps. c'est vrai donc comme yow jox naa la kàddu gi ci yow laay njëkkee mm. aujourd'hui déglu nga quand même directrice de la santé directrice générale de la santé mu joxe quand ay chiffres par rapport ak nombre de tests parce que sànq maa ngi koy wax en introduction nee naa bon à chaque fois qu'on regarde que ne gis nañ tests dafa yokk gis nañ souvent nombre de cas yi gën a yokk et c'est-à-dire que bon euh, la maladie euh, wala une personne a la maladie wala mm, bon en fait maa ngi dégg euh, y a une polémique si loolu ci nombre de tests bi ñuy def euh, c'est vrai que chaque fois suñu gisee un nombre de test plus élevé dañu gis un nombre de de contaminés plus important mais est-ce que il faut que ñu xam. Mhm. ñan la ñuy tester en fait. parce que defuñu un test de masse wala au hasard yenn ñu euh, dem benn quartier par exemple waxtu tous les na ñu ñëw ñu tester leen ñu xool. après ñu yokk nombre boobu su nekkoon méthode boobu la ñu jël comme ce qui se fait peut-être dans d'autres pays comme Corée du Sud boo xam ne ñoom dañuy tester en masse peut-être chiffre bi ñuy am ci augmentation nombre de cas yi dina euh, dina am solo. Mm-hmm. mais ñoom ñu ñuy teste euh, d'après man écho yi ma am parce que on n'est pas en première ligne il y a une équipe de médecins yi nekk en première ligne euh, ci wetu ministre bi ce sont les cas contacts. ak yenn cas suspect yi ñuy am comme ñun suñu recevoir benn patient boo xam ne en consultation am na on pense que c'est il est suspect ñu woote quinze quinze ñoom ñu organiser ba fexe ba tester leen. Mm-hmm. donc ñoom ñooñu la ñuy tester ak ñi nga xam ne ay cas contact de cas avéré la ñoom ñu ñuy denc ñi nekk ci hôtel yi. ñoom la ñuy testé en fonction de ñaata jour lañ fa def. Mm-hmm. Euh, ñu testé leen xool na c'est positif donc le fait que ñu yokk. euh, parce que il faut savoir que actuellement il y a milliers de de cas contacts ñu nekk ci hôtel yi je pense que c'est plutôt ce nombre la ñi ñuy ñi ñuy euh, tester chaque jour moom mooy yokk mais ce n'est pas ñi nga xam ne ñu ngi seen kër wala seen koñ donc le fait d'augmenter euh, le nombre de tests par jour si ñun stratégie bi ñu jël. Mhm. je ne pense pas que mu euh, mu mu mu am solo en fait pour wax ni que suñu testé woon plus de de personnes. dinañu am plus de plus de cas. Mmh. yow lan nga yaakaar mooy doon stratégie bu gën parce que fu mu toll affaire bi xaw na doy waar aussi. bon est-ce que am na stratégie bu gën parce que beaucoup pays yu bëri dans le monde ku nekk dafa am stratégie boo jël. Mmh. Corée du Sud wax naa ko sànq ñoom dañuy jël tester la population en masse. Mmh. ñoom lu ñuy wax tester tester teste su ñu gisee cas positif yi ñu isoler leen ah, jëm jël leen en charge rapidement ñoom boobu la ñu jël. France la France par exemple moom dañoo opté pour confinement mooy tëj ñëpp. pour jéem a arrêter euh, propagation wu virus bi. soo demee dans un autre pays comme la Suède parce que ñoom on sait que virologue yi pour arrêter benn épidémie pour immunisation bi moo koy arrêté mooy nit suñu demee ba développer une grande partie de la population au moins 60 70 pour cent anticorps yoo xam ne da leen di protéger contre le virus donc ñoom ils ont confiné personnes à risque yi mooy personnes âgées wala ñu am yenn pathologie chronique diabète hypertension insuffisance cardiaque insuffisance rénale ñooñu lañ confiné mais population jeune bi nga xam ne ils sont entre guillemets moins sensibles à ce virus parce que quoi que l'on puisse dire suñu jëlee ñëpp ñuy décédé fu mu ne nii dans le monde une grande part disons 80 pour cent c'est des personnes âgées très âgées. c'est donc ñooñu ñoom la ñu jël isolé leen léegi bàyyi jeunes yi ñu ñu peut-être même contracter maladie bi pour mën a développer immunité. Mm-hmm. parce que en réalité à part le vaccin immunisation population bi mooy arrêté propagation d'un virus ça c'est connu. kon le docteur Raoult est-ce qu'il a que la maladie est très contagieuse mais pas aussi mortelle qu'on ne le pense. oui absolument absolument euh, que c'est boo xam ne 80 à 85 pour cent des patients moo ñoom. il vont être asymptomatiques mooy du ñu développe maladie bi bien que virus bi day nekk seen yaram ñeneen ñi ils vont être polysymptomatiques dañu am yenn symptômes yi nañu sëqat dañu am fièvre boo xam ne du élevé trop euh, dinañ am yenn ay courbatures mais ça presque ça passe presque inaperçu parce que ñun ñëpp fii jóg nañ liggéey te xam suñu yaram neexul mm-hmm. ño donc 80 à 85 pour cent noonu la seen feebar di demee ba seen yaram développé ay anticorps yoo xam ne rey virus bi après ñu immuniser mooy mun bon immunisation boobu tamit am na théorie euh, d'habitude les autres épidémies dañu doon wax que ni daf lay immuniser mais bii nii donc virus bu bees la xamuñu ko xamuñu immunisation bi ndax day yàgg mm-hmm. xamuñu ban durée lay daf lay protéger pendant plusieurs mois ou plusieurs années on ne sait pas encore par rapport ak virus bi parce que virus bi li ñu ci ignoré dafa bëri donc disons 80 à 85 pour cent ils sont asymptomatiques wala voilà, paucisymptomatiques 10 pour cent ñoo am ay cas grave yoo xam ne dañuy commencé sëqët sëqët bu commencé leen ëpp doole ñu commencé am ay difficultés respiratoires ñooñu peut-être 10 pour cent léegi 5 pour cent yi des nag ñoom ñooy soxla dem réanimation parce que maladie dafa leen ëpp doole ba dépassé euh, ba commencé atteindre seen yenn organes en plus de poumons mun na indi ay défaillance cardiaque rein yi commencé lâché rognon yi euh, foie bi ak yooyu ñooñu ñooy ñàkk respira euh, réanimation donc disons que. c'est vrai que su baladi bu garaaw la mais comme professeur lu mu wax 80 à 85 pour cent loolu sax ñëpp a du moom kese ko wax c'est la règle ils vont guérir tout seuls même sans traitement ils vont guérir tout parce que ñun au Sénégal on a des cas communautaires depuis quelque temps on en est à 42 je pense si je ne me mais on n'a pas observé par exemple de surmortalité ajoutée si si population générale bi xam nga comme li ñuy wax ni que su amoon ay cas yu bëri yoo xam ne ñu ngi seen kër tëdd ba pare feebar bi garaaw yenn graaw yi on aurait observé ci quartier yi par exemple un nombre de décès bu augmenté. Mm-hmm. une surmortalité nit yi di di faatu seen kër ñu leen di denc noonu noonu. mais parce que bañ leen commencé gis yàgg na. tuuti yàgg a pas de surmortalité réelle bu ñu observé ci quartier même si hôpitaux yi. Mm-hmm. donc y' a des cas communautaires mais on suppose que euh, defuñu ay formes yi graaw parce que comme on dit cas communautaire moom c'est sûr que wàll na ñeneen. c'est vrai même suñu leen gisul mais ñooñu fu ñu nekk fu mu ne nii tey ñu ngi suñu biir di dem liggéey di xëy ak ñun di wàcc ak ñun di dugg seen njaboot ñu ci bëri 85 pour cent yi amuñu benn signe mais virus baa ngi seen biir yaram te c'est sûr que ñu ngi wàll ñeneen mais fan la danger bi nekk mooy suñu commencé di wàll ñi nga xam ne ils sont euh, ay sujets yoo xam ne ils sont à risque. Mm-hmm. suñu sunu maam yi nekk ci kër yi. ak euh, suñu pap ak suñu yaay am ay feebar comme ay diabète wala ay ay insuffisance cardiaque wala ay tension mhm. foofu lañ peut-être commencé di wàll ñu moom suñu feebaree day kii parce que soo seetloo ñëpp ñu faatu ay mag lañ woon te amoon nañu ay ay taar li lii tubaab di wax taar mooy ay maladie chronique yoo xam ne day affaiblir seen immunité mhm. ba duñu am mun a défendre contre virus bi mooy comme ni ma wax sànq yow sa bopp yaay développé anticorps yu lay mun a yu mun a rey virus bi après nga wër donc su amatul doole sa yaram su amatul doole parce que beneen feebar wàññi na ko pour mu produire virus yooyu yow da ngay def forme grave yi après euh, moom mooy indi yenn décès yi ñu gis ko. wax nga dëgg docteur ma jox kàddu gi docteur Idrissa sa Ba yow addictologue docteur est-ce que yow boo déggee ak gis situation bi nu mu demee nii est-ce que vous avez peur. Ben, euh, <laughs> on a tous, tous peur, hein, le dis ou non. Euh, je pense que la peur, c'est normal. C'est une réaction aussi qui est normale. Il ne faut pas trop dramatiser la peur. C'est une réaction normale parce que peur, moi, nga xool yan jumtukaay nga mën a jël pour mën a aar sa bopp et mais aussi aar sa entourage. c'est pourquoi ñu ngi développer ay stratégie stratégie en en direction de la population générale parce que on parle de la population générale mais à côté il y a des c'est les populations vulnérables. Et je pense que c'est très bien aussi qu'il y ait des stratégies vraiment spécifiques yu ñu war a diriger envers ces population parce que docteur euh, suma collègue bi wax na ko euh, ñi ci gën a exposé wu c'est des gens qui ont des comorbidités maanaam ñu nga xam ne dañu am une maladie chronique ou bien une autre maladie aiguë qui est là et qui peut aggraver quand même l'évolution de cette pathologie et parmi ces populations comme ni nga ko waxee tout à l'heure de drogue ci la ñu bokk mm-hmm. donc que yaa une peur euh, mais c'est une peur quand même qui qui est qui est raisonnable et qu'on peut gérer effectivement. léegi lan moo tax consommateur de drogue yi nekk bokk ci ñi nga xamante ne c'est la population vulnérable les sujets à risque. Euh, d'abord euh, consommateur de drogue quand, quand tu prends des drogues déjà il y a déjà un affaiblissement de de l'immunité comme ni ko docteur wax mais aussi euh, la consommateur de drogue ni ñu ko xamee aussi c'est une population qui est très mobile c'est-à-dire qui bouge beaucoup. donc qui interagit beaucoup avec euh, il faut que ñuy génn génn pour am produit bi déjà on est surtout surtout en cette période là c'est c'est c'est un moment vraiment opportun pour en parler je pense que le débat arrive à son heure euh, en période de confinement quelqu'un bu war a du génn mais qui a besoin de sortir aussi pour avoir le produit surtout par rapport aux dépendants on parle des gens qui sont dépendants mm-hmm. qui peuvent pas se passer de la consommation du produit donc forcément il faut que ñu génn et ci génn boobu ils vont inter ils vont beaucoup interagir et ci interaction yooyu mën nañ ci attraper aussi euh, la maladie l'autre risque aussi euh, c'est-à-dire que on pense que confinement bi day indi un sevrage forcé hmm. c'est pas la réalité en fait c'est pas la réalité en fait parce que la personne qui est dépendante quelle que la situation il fera tout pour avoir le produit il y en même qui font d stock comme on dit comme nit ñi ni ñuy defee stock pour ay vivres ay kii yooyu y en a qui font stock pour leur consommation et là ça peut aussi aggraver la dépendance ça peut aussi aggraver plein de choses c'est pourquoi c'est bien qu'on puisse penser à cette population quand même en cette période vraiment de confinement. mais quand même boo nee drogue yan genre drogue nga xam nga aussi boo xoolee. Euh, ñun ñëpp je peux dire que dañuy jëfandikoo drogue par exemple ataaya boo xoolee drogue la su ma juumalee guro mm. drogue la peut-être je vais pas mais yan yan genre xeetu drogue nga xam ne jàpp nga ne ñi koy jëfandikoo vraiment ce sont des personnes à risque yan genre façon cinéma mais dro euh, ñun li ñuy wax drogue mooy substance psychoactive maanaam mooy produit boo xam boo ko jëlee euh, dina indi ay coppite ci sa euh, say xalaat dina aussi indi ay coppite sa comportement ci say conduite donc dès la saa ñu wax rek bon cité nga ataaye café et cetera ça c' est des drogues mineures on même on pense même que ataaye mënul am dépendance y a des y a a des auteurs qui parlent de ça que ataaye mënul indi dépendance comme yeneen drogue yi ni ñuy indee dépendance. donte bokk naanu sa bopp métti ak yooyu yëpp daal ah drogue bu nekk bokk naanu sa bopp métti ak yooyu yëpp daal. non non non kooku peut être c' est des effets physiologiques mais peut être c' pas lié à ce qu'on appelle la Euh, donc drogue bi ñuy drogue bu nekk dafa am lu ñuy wax pouvoir addictogène c'est-à-dire que am na drogue yoo xam mën nga ko jël pendant x temps sans que mu créé dépendance mais am na drogue yoo xam il suffit de le prendre une ou deux fois mu indi dépendance donc en parlant de drogue effectivement nous pensons surtout au cannabis nous pensons à l'alcool nous pensons euh, aux, aux mooy xeet bi ko jiitu mooy héroïne mais aussi am na ay opiacés ñuy jaay ci pharmacie xam ne ay médicaments la nit ñi di ko jël pour soulager leur douleur pour mën a nelaw et te yooyu boo ci yàggee mën na la indil dépendance aussi. Mhm. et cetera cocaïne on en parle aussi drogue la bu indi créer dépendance bu bu am doole et cetera cigarette et cetera et cetera donc yooyu yëpp xeetu drogue yooyu moo tax may wax. surtout alcool surtout cannabis parce que cannabis aussi en période de confinement dafa am particularité parce que cannabis dafa nekk drogue boo nga xam ni. Euh, maanaam dalay calmer dalay apaiser day indi ci yow dal kuy confiné wu laaj na nga dal. Hmm? muy kuy tux yamba. mooy yamba. yamba waaw day indi dal day apaiser day nelawloo dalay lekkloo et cetera alors que bon confinement souvent tu es un peu gêné boo waree génn mënoo génn boo xalaat yi di bëri et cetera parfois les gens consomment pour pouvoir dal tuuti c'est comme alcool si à faible dose même effet bi la et cetera et cetera. héroïne aussi kazalika cocaïne aussi bon cocaïne c'est pour boo bëggee def fête quand tu veux faire la fête quand tu veux être dans un état bu nga xam ne buggoo sentir fatigue coono et cetera nit ki mën na ko jël te là mën na créer aussi une très forte dépendance donc en cette période de confinement aussi c'est bien qu'on puisse parler de ces produits quand même qui ont leur place dans le débat actuel. mais quelle est la dangerosité même de ces produits comme ni ngi dégg ko il est important ñu mun la particularité mais taxawaay lañ ci war a mën a am. danger bi d' abord c' li ñuy wax dépendance mooy nga dem ba nekk esclave produit bi parce que boo ko jëlul euh, mënoo nekk doo mën nekk li nga bëgg a def doo ko def mënoo liggéey mënoo nekk ak nit ñi mënoo mënoo mënoo voilà yeneen dangerosité yi mooy les comorbidités maanaam drogue yooyu day indi ay feebar ñun def nañu enquête bu nga xam ni par rapport ak ñiy jël héroïne cocaïne et cetera ñu ci bëri dañu am jàngoro sida par exemple. Hmm? Ouais. Par rapport à la 10% ont le VIH. Euh, day indi hépatite C hépatite C peut-être ñu bëri xamuñu ko ci askan bi mooy feebar bu nga xam ni xëtër bi lay jàpp virus de l'hépatite C te boobu bu yàggee mën na indi cirrhose mën na indi cancer du foie et cetera te traitement bi aussi dafa cher. Mhm. c'est pas comme le VIH où a un traitement qui pris en charge il a un programme qui prend ça en charge. Euh, tuberculose aussi parce que souvent bu ñu koy jël les gens sont en groupe et donc la promiscuité ça favorise aussi la la contamination am na feebar yu bëri yu muy indi et là aussi ça fait que c'est des gens quand même bu ñu amee Covid là sa devient grave donc c'est aussi le moment de de discuter de tout ça. Mm-hmm. bien sûr docteur le temps que ma bàyyi la nga gën a dalu. ma jox kàddu gi maire bi comme on aussi ba tey ci premier tour de table monsieur le maire de Grand Yoff Madiop Diop. monsieur le maire maa ngi koy wax sànq introduction yow sa commune bokk na ci commune yi nga xam ne ñoo gën a peuplé sax ci Sénégal si ce n'est pas la commune la plus peuplée. tey fu mu toll nii presque tous les yeux wala les regards sont rivés ci sa commune euh, am na ñu jaaxle bon on touche du bois dégguñ benn cas moo xam cas point moo xam communautaire. Euh, yàlla na continuer noonu moom la ñuy ñaan vraiment pour feebar bi dellu ginnaaw mais yow naka nga taxawee ci feebar bi neen ban taxawaay ngeen am fu mu toll nii foofu. bon mu leen di nuyu ah di nuyu sama naataango yi ma nekkal yëpp rafetlu aussi invitation bi di nuyu ñi seetaan yëpp bon ñun Grand Yoff d'abord bi affaire bi duggee Sénégal le 2 rek. li njëkk def ñun avec le président de la commission santé notre commune on a appelé tous les infirmiers chefs de de notre commune et le médecin chef du SAMU. À Grand on a quatre postes de santé et un centre de santé. Mm-hmm. ñoom la ñu woo dans un premier temps waxtaan ak ñoom laaj leen lan mooy seen xalaat par rapport ak feebar bi nu ñu mën a def bari poste feebar. Mm-hmm. ñoom ñu xelal nañu ne dans un premier temps ñoom lu ñu soxla moo ñu protéger personnel de santé bi équiper institut de santé si loolu lañu ñu ay ay masques ay gan ay gel antiseptique ay surblouse ay combinaison les épis ñu jox leen parce que soo amee benn benn benn benn benn benn cas boo xam ne da nga ko da nga ko da nga am ci moom soo amul équipement doo ko jege. Mm-hmm. te même boo ko jegee mun na la contaminer yow nga toog sa kër après indi ay problème ñu quarantaine la nga nekk médecin war a faj moo tax ñun suñ première action mooy doter. les centres de santé et puis équiper le personnel santé de notre commune mun naam sax loolu bokk na si li ñuy gën a jàppale. parce que bu médecins yi wala infirmiers yi seen xel dalul amuñu matériel de protection pour mën a jàkkaarloog ñi fay ñëw du sotti. deuxième chose bi wut ay thermoflash jéem a filtrer entre yëpp c'est pas centre ak centre de santé kenn du dugg te xool température su yeggee fi mu warul yegg ñu isolé la. gars yi équipé wu ñëw jël la oote ñu yóbbu la fi ñu la yóbbu noonu la ñu organisé boo xoolee SAMU rek ni mu toll noonu rek bi ñu commencé ak léegi rek mille quatre 1400 paires de gants utilisé nañ ko bi ñu distance bii donc ñun je pense que loolu moo nekkoon suñu priorité bi ñu jógee foofu aussi na ñu dugg ci marché yi on naa trois marché ak un centre commercial mhm. marché yu mag yi ñu jox leen ku nekk ay gants ay masques ay ay ay ay ay détergent mooy mooy. Euh, raxas loxo yeeg kii waa javel bi ak madaar malgré li leen jox ñoom doyul léegi ñu ngi koy augmenter waat def ay affiche yi nga xam ne moom ministère de la santé génne ñu ñu defaraat ko def def commune de Grand Yoff ci kaw affiché ko partout dans Grand Yoff fu nit jaar gis ne feebar bi am na dañ ko war a moytu. jël 150 jeunes may remercier woo may remercier aussi yooyu nga xam ne ñoo ñëw si ñun mooy étudiants yi nga xam ne dañoo nekk garçon berger bu Saint-Louis dëkk Grand Yoff étudiants yi nga xam ne ñoo nekk euh, Cheikh Anta Cheikh Anta Diop dëkk Grand Yoff ak waa Croix ñu ñëw seet sama bureau ne mu ñun étudiant la ñu instant yi jànguñu dañu bëgg apporter suñu sujet jox ñu li ñu war a yóbbu muy ay gel ay masque ak ay ak ay ak ay javel yóbbu ko si nit ñi sensibiliser donc 150 jeunes ñoo dugg si dëkk bi di sensibiliser dugg si marché yi dugg si kër yi waxtaan ak nit ñi ñu may ay gel ay ay ay javel ay savon pour ñu mën a fagaru beneen aussi mooy grand yoo am na artistes yu fa nekk ay artistes comédiens ak ñoo xam ne ay chanteurs lañ ñooñu aussi jël seen wàll ku mel ne Ndeye Rouba xam nañ ko de jeu théâtre Guigui xam ngeen ko day woy Oumou Sow fële la dëkk Medina mais Grand Yoff lay yeewu jël oto. mooy kuy ko voilà jël oto pendant deux jours trois jour du sillonner Grand Yoff donc loolu bokk na si li ñu jàppale may remercier au passage ki nga xam ne mooy ñu jox bi dafa fi caam daf ñu jàppale gratuitement fay ñu ko dress oto bi mais yooyu mooy yi nga xam ne. mooy stratégie yi nga teg mettre en place mettre en place. mais gis naa say naataango yu mel ni ay Cheikh Gueye yooyu ñoom dañ ne sax léegi lu port du masque obligatoire ci seen localité yi. voilà yow nag loo def foofu. donc à part de démb ñun. Hmm. démb. waaw lañ jël arrêté que le port du masque obligatoire si périmètre communal ku fiy dugg da sol masque. tout Grand Yoff parce que comme feebar daf maa wër daf ñoo wër ñun waa Grand Yoff commune commune ñu wër yu bëri am nañ feebar bi suñu defal attention dañu am problème lépp lu fa nekkoon garage oto muy super muy Ndiaga Ndiaye dañ ko dindi. Hmm. nit ñi foog ñu dem foog ñu ñëw ñu ne police dañoo réglementé yooyu deux véhicules ngay teg ñu yàpp dem yenn cinq portes yi pour entrer la yenn cinq portes yi pour sortir la marché Arafat am quatorze portes ñu ubbi cadres yi. huit yi tëj yi des cadre yi pour entrer la cadre yi pour sortir la. d' accord monsieur le maire xaaral xaaral ma ñëw ma jël ki parce que yow li nga ma wax ni c' est c' est très important c' est de l' organisation quand même parce que tant que nit yaa ngi fenqaloo c' est un peu compliqué allo am na ku bi kooku. waaw sëñ bi na nga def. maa ngi woo maa ngi fi rek alhamdulilah. jërëjëf na tudd ak fooy waaw man Diouf laay wootee quoi. jërëjëf yow la ñuy déglu. waaw ma ne. waaw. man euh, affaire sensibilisation bi la wax. dama ne lii des mooy maire yi seen bopp ñoo war jël ay oto comme ni ñuy def ci campagne électorale bi teg ci seen euh, micro quartier quartier mbedd mbedd ñu jaar sensibiliser nit ñi ku bëgg a dégg di dégg ku bëggul dégg di nga dégg imaam yi nañu jël euh, rajo jumaa yi jàtte yi wax ak nit ñi ku bëgg a dégg di nga dégg ku bëggul dégg di nga dégg voilà loolu mooy si côté côté côté côté côté sensibilisation bi mhm. voilà mais ñu nag euh, ñu ngi sant di gërëm les jeunes yi nga xamante ne dañoo nekk si hôpitaux yi di jéem a sauver ay malades les ingénieurs les jeunes ingénieurs ñi nga xamante ñi ngi defar ay masque euh, non ay gel ay euh, appareil respiratoire ak tailleurs yi nga xamee ne ñuy def pour sauver des vies mais ces jeunes la ñi nga xamee ne dañuy défier les forces de l'ordre indi indil nit ñi ay problèmes honte à eux honte à eux voilà ak di dem ci plage yi di tefeek yooyu honte à eux de toute façon affaire bi dina mës a jeex hmm. bu bësee jeex nag bëgguñu ay jeunes ay nit ñëw di di di di j'appelle à ces présidents ASC la nekk ci koñ yooyu nañu wax ak nit ñi vraiment ñoom daal euh, ñu ngi gàcceel ni ñi daal. ñu ngi gàcceel jeune yi. il faut que def parallélisme entre ces jeunes ces jeunes là qui sauvent des qui essaient de sauver des gens et des en péril la vie des gens. waaw man euh, loo ma ko doxal mooy man peut-être mën naa juum du ma technicien du ma dara mën naa juum mais dama yaakaar man la le virus là mënul def une contamination planétaire aussi rapide. que virus bi nekkul dans l'air il faut que l'armée de l'air entre en jeu moom moo te l'armée de l'air c'est-à-dire que moom lañ gisagul ci combat bi su ma waxee armée de l'air nag c'est un sous-banderage aérien voilà c'est un sous-banderage aérien après l'armée de terre c'est-à-dire que en service le virus quartier par quartier euh, euh, maison par maison ñu ñu ñu ñu détruire les dugub euh, ñu ñu ko ñu ñu combattre maa ngi ñaan aussi waa Tamba est ce que ñoom mënuñoo abal seen seen gouverneur bi waa Dakar voilà bu loolu jeexoo kii bi. Euh, fi mu nekk nii ñoo def benn benn xam nga dañoo tere léegi région par région région par région nit ñi di déplacé est ce que mënuñoo def léegi au lieu de région par région léegi à Dakar def département par département léegi kenn dootul mën a génn sa département voilà. ku nekk léegi sa département sa département au lieu que ñuy dem si confinement euh, total bi nañu limiter les circulations à l'intérieur des départements. ñu dee gërëm waaw ah, bu loolu doon ñu def par commune. jërëjëf sëñ bi ñuy rafetlu kàddu yu baax macha allah jërëjëf jërëjëf monsieur le maire ma bàyyi la nga yëgali. voilà donc loo xam ne jotoon nga ko foofu lañ toll. maintenant nii nii def nañu commande dix mille masques donc tey dañu recevoir les mille cinq cent jox ko waa marché yi pour commercant yi mun ko takk. yeneen yi dañ ko bëgg dugal doog ko doog ko si population mhm. mais avant ñuy dugg ci marché yi ak Sevridène dañoo pompé marché yëpp chaque 15 jours ñun dañuy dañuy faral ak Sevridène chaque 15 jours ñu dugg si marché yi ñu pompé ko. Mhm. parce que instant yi man bëgguma ñu tëj marché Arafat ni marché Grand Yoff ni ni ni ni centre commercial bi ñëw na parce que nit ñi ba léegi ñu ngi dugg ci jënd lu ñu lekk. Mhm. mais noonu la ñu organisé woo dans un premier li si am solo nag mooy ñun fi mu toll nii dañu formation bi dañ ko tasaare si biir Grand yëpp. hier j'ai sorti un boo xam ne préfet jot na ko police commissaire de police Grand jot na ko dañu envoyé commandant Foire aussi jotagul basam la ko jot pour que kuy dugg suñu commune nga sol masque. même man mii nga xam ne dëkkuma sax seen commune su ma doon romb foofu sax dama war a sol masque mooy yoon parce que comme feebar bi mi ngi dox suñu biir. Hmm. xamuñ ko xam nga dootoo wax lu nee na ñi ñu ñu ñi ñu taseegu mooy ñi ñu téye. wax na dëgg si hôtel yi. mais am ñoo xam ne teewuñu te ñu ngi feebar bi si biir dëkk bi te xamuñu lan xamuñu lan ay cas yoo xam ne xamuñu lan mais ñu comme xamuñu ñëpp te Grand Yoff dafa nekk une commune sur surpeuplée 470 000 habitants environ sur 8 kilomètres carrés la superficie elle est petite et la densité elle est grande xam nga commune mel noonu boo fa nekkee mu nekk melting pot ñëpp fa dajaloo nekk carrefour il faut ñun ñu fa dëkk ñoo war di suñu matuwaay. c'est vrai fexe ba feebar fa dugg te doomu Grand Yoff bu nekk da ngay jàpp ne yow am nga virus bi sa bopp. nga toog sa kër soo warul soo waree toog sa kër boo doxul farata su dee farata takkal sa masque dem dox farata ñëwaat sa kër toog ak sa njaboot. Mhm. ñu téye xale yi si mbedd mi. ñu loolu la def sensibilisation oto bi day continuer di wax bu gën a toll te nañ yaakaar na ñun ñu def comme prévention commencé waxtaan ak nit ñi équiper suñu centre santé yi poste santé yi bokk na si li ñuy xaw li nga xam ne daf xaw nañu aar mais nañu gën a góorgóorlu ba ñu wàcc suñu loxo taxaw tem ba xeex ba xeex bi. bañ a mën a continuer ba virus bi ba dugg suñu biir ko d' accord monsieur le maire parce que man yaakaar naa ne sax Sénégal warul am quand euh, problème de sensibilisation ndax euh, euh, téléspe mbokku téléspectateur bi wax na ko léegi oh, jàkka yaa ngi fi koñ boo dem am na jàkka bu ñu laa ko bari ñëpp a koy dégg amul fooy nekk fii ci Sénégal doo dégg nodd vraiment bu dee dëgg rek la yàlla bëgg mën nañ utiliser jàkka yi utiliser rajo yi utiliser télé yi utiliser nu ñu sans kàddu gi. moom tamit mu indi ay ay xalaatam ci mbir mi bisimilah. Mm-hmm. jërëjëf Cheikh ñi ngi déglu euh, suñu ñetti invité yépp ci seen kàddu fi maire daanelee foofu laa bëgg a jël. Mm-hmm. parce que dafa tudd notion bu nga xamante ni dafa am importance ci lu jëm ci wàllu santé muy question de démographie te des questions de démographie boobu boo ko euh, renvoyé ci li ñuy wax dividende démographique. Mm-hmm. Euh, daf lay dellu di wax ni. lu jëm ci wàllu population xam nañu ni fu ñu faral nekk cause beaucoup de maladies surtout jafe-jafe yi nga xamante ni promiscuité daf koy am te gis nañu ni tey jii nii lu jëm ci wàllu Grand Yoff man j'ai eu à sillonner même les artères dugg ci biir euh, xool surtout que yenn contournement yi nga xamante ni yenn saa yi dañ fay jaan mais da ngay gis ni askan wu takku lañu macha allah ñi nga xamante ni ñi ngi fa te xam nañu comme ni nga ko waxee délimitation superficie bi huit kilomètres euh, carré dafa doon loo xamante ni tey jii nii mhm. Euh, densité bi boo ko doon réduire ba xool ñi nga xam ne ñoo fay dund. Mhm. mën nañu jàpp ni risques yi dafa bari. c'est même bu dul tey lu jëm ci wàllu Covid bii rek. Mhm. mais d'éventuelles maladies. Mhm. tey dañu gis ne jafe-jafe yooyu noonu mën na fa développer. c'est bien que initiative yi nga xamante ni jël ngeen ko mais je pense que ni monsieur le maire tey jot na hmm. au delà tey Covid bi hmm. li nga xamante ni war nañ ko ci tirer d'autant plus que ni la santé fait partie des neuf domaines de, de compétences hmm. bien que ni nit ñi ngi naan transféré nañ ko mais ça reste encore toujours les moyens mais gëm naa ni model bi nga xamante ni tey commune bu nekk war na ko adopté pour am benn sursaut développé wu c' est l' occasion tey ñu mën ko tirer par rapport ak li nga xamante ni moo di Covid bi mhm. c' est pas pour un rien je l'ai depuis très tôt que au conseil des collectivités territoriales taxaw nañ fi mhm. war nañu am ci ay jamono li nga xamante ni indi woon na jafe-jafe bu jëm ci acte 3 de la décentralisation pour gën ko jëmmal communes yi gën a am seen doole gën a taxaw bañ a dépendre rien que sur la coopération internationale parce que tey communes yu ci bëri foog nañu ni tey bu ñu nee ville de Dakar avec ville de Paris wala ville de Dakar avec n'importe autre euh, ville boo xamante ni c'est à l'étranger pour jàpp ni coopération boobu rek moom moo war a développer li nga xamante ni mooy suñu communes yi pense que ni foofu noonu tey Covid bi tiire waat na yeneen leçon mooy que ni tey Sénégal ci li mu doon dépendre tout récemment rek y une information avec la France qui dit que ni am na médicament essentiel yoo xamante nii tey France ñu ko jox parce que seen réew dañ ko gën a soxla ko ñun. donc euh, note bi génn na y plus de 48 heures. pour wane ni tey yéen ñi nga xamante ni vous êtes des leaders. yéen a ngi ci communes yi am na développement boo xamante ni tey askan wi nga xamante ni ñu ngi fa soxla nañ ko. je pense que ni c'est l'occasion que bu fekkee kër yi xat nañu ngeen am ci yeneen projet habitat ak yeneen yoo xamante ni war nga leen ko war a mën a gën a xalaat pour gën a mën a daal di soulager ñi nga xamante ni ñooy population yi te xam naa ni loolu ñi ngi ci ndaxte quoi qu'on puisse dire démographie bi frein bu rëy la ci par rapport ak développement wu Grand Yoff mm-hmm. parce que plus que bari na plus que tey mu favoriser bu fekkee euh, question de pauvreté day am dafay ñëw taxaw question de chômage bu ci taxawee question insécurité dafay ñëw taxaw kon jafe-jafe yooyu yépp tey jot na gëm naa ni yéen a ngi ci ak sa équipe municipale ci ay euh, loolu nga xamante ni moo di jégo yi ngeen di def pour mën ci génn alors docteur Diegane je pense que ni débat bi foofu nga ko teg foofu la toll tey parce que en France on parle de question d'immunité gis nañu ni tey les scientifiques dañu dem sax ba seeni gëstu jàpp ni ñi nga xamante ni tey dañu wér naka la ñu def ba développer anticorps yooyu nga xamante ni tax na tey ñoom ñu génn ci ba ñoom les scientifiques nekk ci ay recherche pour xool naka la ñu mën a def tey jii nii pour après Covid bi gën a mën a xoolaat ñoom ñi nga xamante ni ñooy seen population entre autres te nag dafa jot tey ñu xam ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk au Sénégal muy suñu borom xam-xam nga xamante ni ñi ngi ci hôpitaux yi du dellu di leen sargal dafa am loo xamante ni dafa am solo te dama bëggoon ñu bàyyi ko xel mooy que ni yaa ngi tudd question échantillonnage bi nga xamante ni mooy li ñuy def ci prélèvement yi ñu jàpp ni ba tey ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk niveau district information yi ñuy relever ba pare di ko remonter au niveau du ministère information yooyu dafa bokk ci lu bari loo xamante ni mi ngi dajaloo bàyyi ko ci askan wi ci ay cas ak ñeneen ñoo xamante ni tax tey luñ ci dépister génn benn nombre. mais jot na bu fekkee ñi ngi ci test yi nga xamante ni bëgg nañ def ko ciblage c'est l'occasion de le matérialiser et population bi bañ a jàpp comme ñi nga xamante ni ñoo di autorité yi aussi ñuy attirer seen attention ñu bañ a nelaw ci ni du caaginu li ñuy dépister mu néew comme chiffre loolu moom mooy wane li nga xamante ni moom mooy la vraie réalité des choses parce que je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que ni tey suñu yeneen su koñ yi ak ci ñi nga xamante ni ñoo di jàkka yi mais bomb bi explosé na comme il le faut man je diiree dirais que ni effectivement souligné wu nañ ma baal mais dina yomb Sénégal te bu loolu amoon tamit rush bi dinañ ko sentir ci hôpitaux yi comme il le faut mais gis nañu ni jafe-jafe boobu noonu nekk fi kon question d'immunité bi bu ñu tourné waatee day taxaw foofu ak question asymptomatique bi parce que quoi qu'on puisse dire bu demee ba ñi nga xamante ni ay épidémio euh, épidémiologiste lañu jàpp nañu ni tey lu jëm ci wàllu grippe 7 à 8 jours nga faj ko ko ñàkk faj day wér kon am na ci ñenn ñoo xamante ni xëy na résistance bi nga xamante ni seen immunité am na ko permettre na leen ñu dem ba développer la maladie wér ak moom te demuñu hôpital donc loolu mën nañ ko jàngat une transition pour dire que ni vous êtes spécialiste ORL donc docteur Ba est là gis nañu comme sànq ni nga ko développé que ñu ci bëri ci ñi nga xamante ni dañu amee lu jëm ci wàllu nañu nekk ay dépendant mm-hmm. lu ci jëm ci wàllu drogue VIH yaa ngi liggéey ak ñoom CEPIAT gis nañu mu doon un centre boo xamante ni de référence en Afrique de l'Ouest ce qu'ils font par rapport ak suivi bi nga xamante ni dafa jëm fexe ba réinsertion sociale am ci ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo di dépendant yooyu noonu jafe-jafe yooyu noonu am ma bëggoon rek ñu créer parce que ku wax drogue di nga wax tey ji am ñoo xamante ni bu dee drogue légère la comme la cigarette gis nañu ni affection bi nga xam ne da koy def ci euh, ci ci poumon yi dina ko seex ci gémmañ wax seex gémmañ wax na lu jëm ci wàllu ORL mm-hmm. est-ce tey ñu mën a xam l'infection comme gis nañu ni am na ci fu mu mën a jaar te gémmañ am na ci lu doy waar loo xamante da ko am mhm. yan moom mooy ay risque par rapport ak yow mi nga xamante ni ORL nga ak ñi nga xamante ni tey mooy infection bu mën a jaar ci gémmañ waaw effectivement euh, Covid 19 bi euh, ñun ak ñun ORL yi on travaille beaucoup dañu liggéey ci sphère ORL bi mooy euh, bopp bi ORL mooy bakk bakkan baat nopp donc même suñuy examiner patient yi ku ñëw si ñun pour ñu examiner ko euh, ñu ñëw yëpp ay problème mu baat la am problème nopp problème bakkan donc ORL dafa bokk ci spécialité yi nga xam ne moo gën a exposé euh, par rapport au au praticien si praticiens yi gën a exposé par rapport ak infection bi si lañ bokk ñu nag dentiste yi nga xam ne euh, ci gémmiñ la ñu liggéey Euh, ñun nag ophtalmologue yi nga xam ne ñoom ci bët la ñuy liggéey ak euh, anesthésiste yi ñu nga xam ne suñuy nelawal dañ lay dugal benn tube sa baat donc dañu ubbi sa gémmiñ tiim ko pour mën a dugal tube bi bu lay nooyloo sooy euh, sooy nelaw suñu lay opéré donc yooyu dañoo bokk mën nañu wax ni mooy quatre spécialités yi nga xam ne ñoo gën a exposé mm-hmm. donc ñun il fal fallu ko ñu adapté wu comme ni ko France defee ñun dañu liggéey beaucoup ak société française d'ORL bi donc euh, ñoom génne nañu ay recommandation yoo xam ne ñun tam dañ koy adapté à sunu pratique quotidienne à nos réalité donc au niveau de nos différents services euh, tout ce qui consultation boo xam ne urgent wul mun na xaar yooyu dañ ko génnee sunu consultation yooyu dañ leen arrêté pour le moment ñi mm. ñuy jëlu ni consultation yi continuer mooy yi nga xam ne dafa am urgence urgence mooy euh, ñi nga xam ne suñ leen opéré mun nañ ñàkk seen bakkan. Mhm. loolu suñu leen consulté wul. ñi nga xam ne dañoo am problème pour noyyi parce que am na benn obstacle comme xale yi nga xam ne dañuy noyyi <coughs> waxuma woon mais noyyi mu jaar seen voie respiratoire ay euh, lu nekk xale moom mun na noyyi nag mun na nekk gerte doomu gerte. Euh, dama ci jaarale sax pour lancer benn message xale bu amul deux ans bu ñu ko ñu bàyyi di ko jox gerte euh, parce que mun na ko noyyi mu jaar ci fu muy noyyee mu bloqué fu muy noyyee yooyu ay urgence la. Mhm. donc yooyu il foog ñu dindi ko rapidement parce que suñ ko dindiwul bakkanam mun na jaaree foofu donc yooyu mënuñu leen euh, bàyyi dañ koy continuer di def lépp li nga xam ne dafay nàcc nga xam ne dañuy bori bu bëri. bu bi di sotteeku yooyu mënuñu xaar ñëpp ñi nga xam ne am nañu suppuration mooy fenn foo xam ne seen bakkan mu ngi génnee dët euh, seen ba fenn seen seen bopp muy bakkan bi muy nopp bi euh, muy gémmiñ bi wala ay yoo xam ne dët moo ci nekk yooyu foog ñu dindi ko yooyu mënul xaar lépp li nga xam ne dafa métti. métit bu tar loolu mënul xaar boole nañ ci euh, ay euh, ñu am ay rage de rage de dents bien que sax du ñun ORL yi ñoo koy gën a gis mais ñi xam ne am nañ métit yoo xam ne rapproché wu na de rage de dents ay otite otite externe nopp yu métti yu tar yooyu euh, wala leneen luy métti fii rek loo xam ne si domaine ORL la loolu mënul xaar dañ koy continuer di jël en charge lépp luy cancer dañ koy continuer di jël en charge donc fu ne nii loolu la ñuy def si service yëpp Euh, lépp lu urgence ORL dañ ko centraliser hôpital fan mhm. même en période normale urgence ORL 24 heures sur vingt 24 7 jour sur 7 hôpital fan lay amee fii Dakar ci région yi ay garde la donc euh, loolu la ñu def suñu programme opératoire tam ñu ñuy opérer euh, lépp loo xam ne cancer la lépp loo xam ne accident la bu am damm-damm fii ci kanam loolu dañ koy continuer di def Euh, lépp luy cancer wax naa ko euh, waaw ak yenn urgence yi ñu xale yi nga xam ne wala même mag yi sax yoo xam ne dañu yi dara mu jaar seen voie respiratoire ñu am problème pour noyyi. yooyu la ñuy continuer def parce que foog ñu dañoo exposé ñu jël flux bi nga xam ne moom la amoon avant infection bi. Mhm. parce que faut savoir que service ORL Fann moo gën a rëy daanaka fii ci Sénégal et même si sous région bi Afrique de l'Ouest si gën a rëy la bokk euh, donc nous en moyenne on consultait ay 90 patients par jour. opération yi chaque semaine dinañu opérer en 35 et 40 patients par semaine. donc flux bi service bi dafa dafa rëy donc euh, mënuñu continuer euh, di def noonu d' autant plus que ci salle d' attente yi foog patients yi ñu am écart de 1 mètre 50 au minimum yooyu yëpp soo ko bëggee def. foog nga réduire sa sa activité. d' accord kon xaaral ma jël kii euh, ci ligne bi waxu la sana bu mu nee préparé wu comme aussi euh, instant yi ñu ngi dugg dans la deuxième heure te l' émission va très très vite euh, te tey macha allah yàlla daf ñuy booleeg ay borom xam-xam yoo xam ne koo ci bàyyi mu wax rek da ngay bëgg a bàyyi mu yeggali kàddu gi allo allo ah kooku dafa mel ni yegg wul de wala dégguñu ko de mbaa moo waxaat ko allo une dernière fois bu ñëwul ma dem ci la sana allo. bon asalaamaaleykum ah maaleykum salaam ñëw na sëñ bi naa def. waaw. noo tudd ak fooy wootee. Ah, maa ngi tudd Jibi Gueye Ndiaye. jërëjëf Ndiaye. di liggéey Dakar ah Jibi na noo def. ça va yaay borom Dakar dem dikk ah. <laughs> waaw vraiment damay euh, félicité ci émission bi. jërëjëf Ndiaye. di wane ne dèjà lii lañ doon xaar parce que dañ nekk situation boo xam ni. la ay spécialistes ñuy yee ci affaire bi. Mhm. c' est vrai que bu ñu ko doon def peut-être à partir de vingt une heures doon na baax trop parce que guddi gi nit ñi pratiquement amuñu dara la ñuy def parce que à partir de vingt heures ak couvre-feu bi kenn du def fenn euh, bu ko defee spécialistes yi di gën a teew ñu fekk di remercier tamit euh, ñu toog foofu yëpp. mais dafa am man ci lu ma bëggoon intervenir rek te surtout côté médical. bismillah mooy que ni muy démb ak tey ak bërki démb gis naa ni médecins yi ci invité yëpp. Mhm. ils sont pas aux avant-premières. te je bu ñu nee médecin na secret médical tey ak association médecin yi ñoom ñëpp war nañ leen mën a impliqué bu fekkee dafa am ay pathologie yoo xam ne comme li médecin ba sànq il faut que ñu leen di intervenir ñi ci def bon mun nañ leen suspendre en attendant yooyu ñu xool fan lañ leen di orienté ba nga xam ne ku am pathologie yooyu foofu ngay jubali. ñu jël ngeen ñi détaché leen foofu ñu ci des ñëpp ñu groupé leen ñu dem autour du ministre par rapport ak euh, maladie bi ñu def parce que tey li médecin wax sànq c'est très important il faut que ñoom ñu xam nombre bi am réellement tey ci dëkk bi démb ak géejawaay bërki démb ci ma dëkk commencé woon nañ def centre dépistage nit ñi ñëw en masse ñu arrêté ko pourquoi nit ñi di nangoo dem dépisté wu parce que tout le monde conscient de cette maladie ku nekk tey da nga bëgg ñu dépister la nga xam ndax am nga ko wala amoo ko parce que tu à l'aise devant ta famille devant tes pare tu auras l'esprit tranquille deuxièmement tey gis nga les maires la ils sont vraiment fatigués parce que tey maires yi bu ñu ñëwee ci plateau yi gis nga li ñuy wax moom la ñu gëm mais dañuy yeggee ci seen biir communes yi dafa am ay réalités yoo xam ni dafa nekk dund fa te pour ñu dindi ko fa dafay jafe ndax xam nañ ni maire bi dafay toll koo xam ne du dóor kenn du saaga kenn du xeex ak kenn te forces de l'ordre yi sont assez assez assez surchargés pour ñëw di intervenir à tout moment. Hmm. maintenant je vais terminer ci benn proposition mooy que ne il faut que nit ñu am courage. Hmm. yenn dëkk yi comme fu mel ni ay Dakar ay Touba ñu confiner leen progressivement bu ñu commencé confiner yenn dëkk yi yeneen dëkk yi xam ni kat seen tour mi ngi ñëw. en attendant kat ñu kii mais bu ñu toogee ni tant que plan sur rubi rubicon bi naan bu ñu leen tëjee du ñu am lu ñu dundee du ñu am lu ñu lekk loolu yëpp c'est bien vrai mais tey bu ñu jëlee délai ne kat le quatre bu nit ñu yaakaar ne dañuy dindi affaire bi au contraire dañuy confiner yéen dëkk yi parce que déjà koor gaa ngi ñëw les gens disent que damay xëy wuti xëdd ay ndog bi embouteillage day am ci boulangerie tout ça ce qui veut dire que ni beneen forme de contamination mi ngi ñëw parce que c'est au mois de Ramadan. Mm. donc vraiment pour ne pas yàgg ci ligne bi euh, di encourager émission bi di leen féliciter et que di wane ni que ni vraiment euh, continuer leen di inviter spécialistes yi ñuy inculquer maladie pour que parce que loo ñeme rek di nga faju mm. mais tant que yaa ngi rek da ngay daw mais loo ñeme rek man tey. man ak ñeneen ak ñeneen on est prêt boo amoon ay centre de dépistage partout dans Dakar nit ñi dem dépisté wu parce que on est volontaire sur ñuy rafetlu kàddu gi macha allah rafetlu nañ ko lool euh, surtout dugg bi nga dugg ci émission bi mbokk téléspectateurs yi bëgg a dugg aussi def seen intervention indi ay questions laaj ko suñu spécialiste yi toog fii euh, l' antenne est à vous elle aussi ma dem ci Lassana fekk ko régie moom itam jot nañu taatanal ay laaj ñu yeggee ko suñu invité yi ba pare doogu sóobuwaat ci waxtaan bi. merci beaucoup euh, Cheikh dañu koy dooree ak benn alerte ginnaaw ba émission bi alerte coronavirus la tudd am na benn waay boo xam ne moom ca Diourbel la dëkk nee na bu ñu demee bés ba gis fa benn cas communautaire bu mu jaaxal kenn ndax foofee Jakarta mel xamuñu yan yoon la ñuy jaar mais gis nañ ñuy def ay ronde di dem Touba di ñëw di dem ci euh, ay localités environnantes te xam nañ ni euh, Diourbel yi ko wër am na ay cas coronavirus yu fa daal di nekk kon mu nekk alerte boo xamante ne mu ngi bawoo foofee ca bu ñu ñëwee nag ci question yi Cheikh tey téléspectateurs yi ñu ñun ñi nga xamante ni ñooy euh, nekk ci euh, télé bi di wax mm. nee nañ lu tax solo ñu masque kon dinaa la bàyyi nga nga tontu leen euh, invité yëpp sol nañ masque ba mu des kon présentateur yi mm. question yi am na beneen boo xamante ni mu ngi jëm ci wàllu garab bi ñu ne dañ ko nemmeeku ca Madagascar muy faj lii di coronavirus te démb seen président daal ci def ab communication nee nañ est-ce que loolee experts yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci plateau bi am nañ ci lu wér loo xamante ni mun naa dugg ci bopp comme kon découverte bu professeur Raoul bi nga xam ne ay preuve am fii nii ci Sénégal ak est-ce que Sénégal lu jël yoon woowee jël li nga xamante ne moom mooy médecine traditionnelle bi jëm ko boole ci li nga xamante ne moom mooy médecine moderne bi am na aussi ñu ñu interpellé li nga xamante ne moom mooy personnel soignant bi ndax am na ay nit yu ne te dañoo liir ci euh, presse bi ay personnel soignant lim bu takk boo xam ne fii nii ci Sénégal euh, jàngoro ji daf leen laal ne nañ loolu ban conséquence la mën a am euh, ci fajum coronavirus bi ma jeexale ko fii Cheikh ndax laaj ji dafa bari am na ay nit yoo xamante ne ca yàlla la ñuy interpellé ñoom nag maire Madiop Diop waxal nee na ndax dañoo dafa fàtte ni xaar yàlla ca Grand la la bokk ndax ñoom sentiruñu seen bopp ci action yi mu ne euh, daf ko def ci commune bi euh, ngir xeex coronavirus bi kon ñu yemale ko fi Cheikh si kanam ñu ñëwaat ci yeneen lot de questions yi. jaajëf Lassana ñu lay gërëm di la sant may dalal xelu mbokku téléspectateurs yi. Euh, qui posait surtout question boobu nekkoon d'abord chez nous la distanciation sociale est respectée euh, bon allo dafa mel ni dafa am ku nekk ci ligne bi bàyyil ma jël ko pare allo waaw ah, wala nekkul ci ligne bi waaw parce que dama defoon dafa am ku nekk ci ligne bi ndax dafa am benn écho bu ma doon dégg ci suuf ma defoon ne mu ngi ci bi alors pour euh, revenir donc à cette question distanciation sociale bi dañ ko respecté ici chez nous à 2S même caméraman yi sax su fekkoon c'était permis bu ngeen xoolee ñoom ñëpp ku ci nekk mu ngi sol masque am euh, man mi aussi sama masque je tout le temps avec moi mu ngi nii fii sama poche mais nag pour des raisons pour permettre donc vraiment aussi à li may wax mu gën a euh, à chaque fois bu ñu defee li nga xamante ne moom moo di respect yi yëpp maanaam gel de main bi euh, def lu ñu war a def yëpp ba pare nag da koy summi ndànk def ko sa ba pare mun a wax ak téléspectateurs yi ndax li ngay wax mu gën a leer euh, ci euh, boppu téléspectateurs yi ndax am na solo lool sama naataangoo idem de même tam noonu la def bu ngeen xoolee aussi même dans les médias dans les médias étrangers xool leen un peu partout euh, ku ci nekk même les journalistes les invités ñoom dañuy toog gannaaw ku ci nekk bu defee lu muy def ba pare dañuy toog respecter la distanciation sociale ba pare mën a wax parce que aussi nit du toog euh, ci ci ci télé wala ci écran di wax loo xamante ne aussi du leer lu am solo la mais dalal leen seen xel ñu ngi sant yàlla baax te ñu leen di gërëm aussi di leen sant tamit ci vraiment euh, préoccupation ngeen di aussi ci ñun parce que loolu aussi c'est réconfortant ndax nga nekk ak ay nit di waxtaan ak ñoom bés bu nekk saa su nekk ñuy xaw a jaaxle tamit ci seen état de santé lu am solo la ndax gis nañu également que lu ñuy def am neex na leen te ñun tamit daf ñuy gën a yokk courage ñu leen di gërëm di leen sant kon docteur yow yaa yoroon kàddu dama la bëggoon juste laaj benn laaj par rapport ak téléspectateur bi lu mu wax comme ça ma jox docteur Ba moom tamit mu indi ay kàddu ma jox monsieur le maire moom tamit interpellé na xaar ma jël kii après ma bàyyi la kàddu gi allo. allo bi na nga baax na c'est bon. waaw tudd ak fooy ma ne noo tudd ak fooy wootee. maa ngi wootee jënd jënd. fan. jënd Lagane. loolu fan la nekk foofu fan ban dëkk la. ci dans le département département Gossas. département Gossas Gossas. waaw Gossas waaw. waaw bisimilah yow la ñuy déglu noo tudd. Euh, Adjuma Pouy. bisimilah Pouy yow la ñuy déglu. waaw jërëjëf si Abia maa ngi lay ñu lay gërëm di la fa fay yow tamit. di gërëm ñu nekk ci plateau bi di gërëm la deuxième ci liggéey bi ngeen def quoi. mais man dama bëggoon posé ñaari question. je voulais poser deux questions ko bisimilah yow la ñu déglu. allo. yow la ñu déglu waaw bisimilah. allo Adjuma yow la ñu déglu waaw. question bi mu la léegi pour ci test yi waa test pour les tests la li ma xamul test bi est-ce que dañuy test ñi ñu confiné wala li mën a la ñuy test chaque jour quoi. parce que bu ñu nee quatre cent soixante et test. Mhm. soixante cinq positif parce que dañoo testé ñu nekk ci ak malade yi ñooñu lañ amee trente cinq positif yi wala dañuy testé ay nouvelles personnes d'accord parce que Sénégal yu bëri xamuñ test ni muy demee quoi c'est ça beneen bi oh c'est dommage dem na ñaari ñaari laari laaj la waxoon mais bon peut-être aussi euh, xëy na ñaari laaj yi la tënk def ko benn docteur hmm. bismillah Euh, merci euh, bon je dama taxaw tuuti balaa may répondre question yi pour rebondir ci euh, benn question téléspectateur par rapport ak masque bi parce que comme que télé la ñu nekk foog message bi leer ba pare ñu jëm ci améliorer comportement parce que nit loo jàngul rek mënoo tu n'es pas censé le savoir lépp dañ koy jàng donc par rapport ak masque bi nga dugal sa poche masque bi. Euh, xaw ma ban masque façon la ndax masque chirurgical la. wala comme yi ñu sol nii. du masque chirurgical la donc masque bi. Mhm. soo ko summee. Mhm. ci journée bi na pour commencer trois heures de temps nga ko a utiliser. Mhm. au delà de trois heures de temps daanaka amatul njëriñ moo wax nga bañ a sol masque ñoo yem entre guillemets xaw na tuuti rek dina am dina xaw a tane tuuti rek. mais njëriñam wàññeeku na. te saa yoo ko dindee. dafa déjà dafa am noo koy dindee parce que xamoo ndax wax nga koo xam ne am na feebar bi. léegi protégé na la tax na feebar bi duggul mais mu ngi fii virus baa ngi dund fii mhm. donc soo koy summi am na noo koy summee élastique yi rek nga dindi bañ a kël fii kii ko mu des say loxo c'est important mhm. doo ko jël tamit soo ko dindee dugal ko sa poche parce su nekkee virus baa ngi ci yóbbu nga ko sa poche soo koy jël ñëwaat na say loxo solaat nga ko mais mu ngi say loxo soo laalee feneen wala say caabi wala sa bic bàyyi nga ko foofu donc yaa ngi disséminer virus mhm. donc soo ci paree rek dañ koy summi sans laal ko su nekkee boo xam ne dañ koy raxas la comme temps yi ñu ngi commencé science baa ngi nangu ni ko am na njëriñ yu ñuy tax yuy fóot hmm. dañ koy génne rek dugal ko fi nga xam ne foofu ngay fóote d'accord moo tax même yi nga xam ne dañ koy euh, fóot da foog nga am ñetti par jour soo bëggee mu efficace hmm. ñetti par jour chaque trois heures nga dindi benn bi sol beneen bi te soo ko xasee ba sol doo ko summi lu dul pour mu dem fi nga xam ne dañ koy raxasee wala su nekkee marche chirurgicale bu ñuy sànni doo ko dindi sauf pour sànni ko jërëjëf docteur macha allah donc pour ñëpp xamee ko noonu parce que damay gis ay population ñu sol c' est vrai que pays bu sous-développé la nekk mais suñu xasee ba science bi nangu ko ni masque yi ñuy fóot baax na buy jar téeméer si sama yaakaar dina métti si ñenn mais soo ci amee trois boo xam ne soo dindee rek kenn fóot noonu nga koy remplacer dina tax euh, transmission bi wàññeeku bien que dina metti si ñenn. nga am ci mm-hmm. ñett. macha allah jërëjëf merci. merci donc euh, loolu parenthèse la woon. Mm-hmm. léegi. Euh, parce que am na laaj yu ñu la laaj wax nañu enfin man balaa ma jox aussi docteur wax nañu test yi. ñi ñuy testé est-ce que mooy ñu nekk en confinement wala euh, dañu jël comme ça au hasard. waaw comme ñun stratégie bi ñu waxoon Sénégal moom la jël dès le départ. équipe bi nga xam ne moom la professeur Seydi di diriger ak ñi nekk ci wetam yépp dañoo jël stratégie wu du ñu def. dépistage de masse defaguñ ko bokk. Mhm. ah amoon na c'est vrai kenn wax na ko unité bi ñu ubbi woon euh, Guédiawaay barki démb mais awma ci ay retour si nu mu demee. Euh, donc ñun ñi ñuy tester mooy ñi nga xam ne ay cas suspect lañ ñu recevoir leen par exemple hôpital ñu ñëw consultation euh, wala ñu nekk seen kër ñu sentir ni am na ay symptômes ñu jël seen téléphone woote comme premier tubaab bi ñuy njëkk a fii moom bi mu ñibbisee ba ñu commencé ak symptôme dafa dem isolé wu jël téléphone woote quinze quinze ne leen ñibbisi naa ñëw naa Sénégal mais commencé naa am ay symptômes beru naa sama famille euh, léegi nan laay def léegi boobu la 15 15 sami ñëw. jël ko yóbbu ko ci condition yi war transporter ko dem tester ko mu positif donc ñooñu lay doon ñi nga xam dañoo am symptôme ñu ñëw jël si leen ñi ñu recevoir ci hôpitaux yi man barki dem recevoir naa kenn consultation euh, si ñi mu décrire cas contact cas suspect la may ndirool euh, parce que mu ngi saxat depuis quelque temps mm. bon bien que amul fièvre mais amoon na difficulté respiratoire mu ne veille bi bi mu nelawee mënul nelaw ndax am problème pour respirer boobu bu ma ko gisee immédiatement dama ko ne toogal heureusement moom waaw ma koy remercier bi muy ñëw sol na masque yi dafa sori ñëpp bi mu duggee ci biir clinique bi jegewul kenn bi mu wax ak man sori na man tamit maa ngi sama masque tout le temps donc bi mu rek ma ne ko léegi toogal ma génn ñu génn woote 15 15 expliqué leen ñu ne ok kooku dañ ko war a testé donc cas yooyu la ñuy testé chaque jour sami dina ci am yu bëri ñooñu la ñuy teste ak cas yi nga xam ne ay cas contact lañ mooy ñi nga xam ne am nañ seen famille kenn wala entré nañ ak contact kenn ko xam ne cas positif lañ ñu nekk ci hôtel yi ñooñu la ñuy testé gum ci man li ma xam parce que foofu euh, déglu naa kenn ci ñi ñuy diriger lutte bi loolu la waxagum non ah, parce que encore une fois nekkuma ci euh, première euh, première ligne de lutte bi am na samay collègues ak samay patron samay anciens yu fa nekk yoo xam ne ñoom ñooy diriger mais si li ñu déggugum noonu lay demee gum donc test yi noonu la dafaguñu test de mars dem dugg fenn benn koñ testé ñëpp d'accord d'accord donc damay jox kàddu gi docteur Idrissa alors docteur yow sànq ñu koy wax tamit euh, CEPIAT nga nekk. Mhm. Euh, ma bëggoon xam tuuti yéen ban taxawaay ngeen amal fu mu toll nii ci waxtu Covid 19. Euh, euh, merci beaucoup je pense comme sama collègue lu mu ko waxee ñu dès le début da de l'annonce de la pandémie euh, nous avons reçu des instructions des instructions du ministère mais aussi du directeur de l'hôpital mais aussi du chef du service de psychiatrie bi nga xam ni CEPIAT euh, ci moom la dépendre parce que CEPIAT unité la ci service de psychiatrie bi nga xam ni professeur Mamadou Habib Thiam moo ko dirigé. c'est ça donc ci la jot ay instructions que il faut qu'on mette en place un un dispositif parce que il faut pas aussi qu'on discrimine les les surtout que comme ni ma waxee on a des patients qui sont très mobiles surtout que aussi nu on a un autre accès parce que Fann dafa am un accès pour euh, un grand accès c'est le grand xam ni c'est pour. tous les patients qui veulent avoir accès à l'hôpital pour dem ci yenn services yi mhm. mais ñun dañu am suñu accès bopp bu nga xam ne dafa dañ ko ubbi ci sur la route de Wakam donc on a dit le même dispositif bi ñu def ci portail bi c'est le même dispositif moom la ñu war a mettre au niveau du du CEPIAT et c'est à ce moment-là a mis en place ce dispositif kon a informé les patients que maintenant euh, pour avoir accès au CEPIAT il faut un euh, lavage des Donc on a mis un dispositif, un dispositif de lavage des mains. On a acquis aussi un thermoflash que la direction de l'hôpital a mis à notre disposition. ku fa ñëw dinañ euh, dañ jël sa température di nga raxas sa loxo. Mm-hmm. et puis après aussi même la distanciation même pour avoir accès à la consultation pour avoir accès à la pharmacie pour avoir accès aussi au service social on a. fait un traçage pour la distanciation sociale sur le, le sol pour montrer ku nekk fan nga war a taxaw donc tout ça c'est pour aider aussi les gens pour qu'ils puissent être conscients que euh, euh, le problème de Covid-19 c'est pas un problème des maladies infectieuses c'est pas un problème mais c'est un problème général que tout le monde peut être impacté par ça. mais est-ce que yéen vous êtes bien protégé là-bas parce que souvent am na yenn corps de corps médical yoo xam souvent ñoom da ngay gis ils sont un peu quand même des corps médicaux à risque par exemple les dentistes nga xamante ne ils sont obligés à chaque fois jege gémmiñ bi les ophtalmos également jege bët bi mais yéen bu ngeen di waxtaan a quoi c'est la distanciation ngeen di respecter wala wala wala wala a pas tellement de risques à votre niveau. y a, y a des a des entretiens qui peuvent durer une heure de temps donc distanciation sociale bi ci la bokk. Euh, le masque aussi ci la bokk on est on est exposé peut-être que euh, comme ni mu waxee ORL bi ñoom ils ont un accès beaucoup plus direct par rapport aux patients parce que eux ils travaillent avec le corps hmm. nous c'est plutôt l'inverse mais boo déggee CEPIAT CEPIAT c'est une équipe pluridisciplinaire on a des médecins somaticiens de qui examinent les patients donc qui sont en contact direct avec le patient on a des infirmiers qui font des prélèvements qui font donc ñoom ñëpp aussi c'est le même c'est le même contexte on a le même contexte de travail ce qui fait que euh, les mêmes dispositions qu'on doit prendre en ORL les mêmes dispositions qu'on doit prendre aux maladies infectieuses c'est les mêmes dispositions qu'on doit prendre pour pouvoir protéger le, la personne même par rapport à la régulation du flux là là aussi on a joué sur tout ce qui n'est pas urgent on ne prend pas tous les rendez-vous sont euh, programmés sont programmés et échelonnés dans le temps et puis voilà par rapport ak distanciation bi tout ça c'est respecté je pense que bon on est un service on sait pas qui est porteur ou pas même nous en tant que médecin on peut être porteur asymptomatique comme on dit ou polysymptomatique on peut aussi affecter nos nos patients donc nous aussi il faut qu'on se protège en portant des masques comme nous demandons aux patients aussi de porter des masques et là je lance un appel matériel quand même est On a eu des partenaires qui nous ont aidés. L'hôpital nous a aidés. On a eu des partenaires, notamment l'ANCS qui nous a aidés, mais on fait appel aussi à d'autres partenaires vraiment pour que ce qu'on fait au niveau de l'hôpital, qu'on puisse le faire sur le terrain. Toutes les activités inondables actuellement, on a suspendu ça. Le travail de terrain, parce que nous aussi, on allait vers les usagers. Parce que nous, pour Indilen Hôpital, c'est un peu compliqué. Mmh. Ils ont difficilement accès aux au services. Donc on était obligé les sensibiliser, de leur montrer qu'il y a des services qui existent et dont ils peuvent profiter qui peuvent les aider par rapport à la dépendance mais par rapport aussi ak yeneen feebar yi nga xam ne day kii seen donc ce travail là on l'a arrêté parce que on veut pas aussi trop exposer euh, l'équipe donc on a besoin vraiment de d'équipement pour pouvoir euh, continuer ce travail là qui est très important pour nous

Euh, c'est une question pas du tout. C'est une question pas, du tout facile. C'est une question pas du tout facile. Hein. je reconnais quand ma question. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, on voit quand même vous, vous agissez beaucoup plus quand même dans le cadre de la mentalité, le cadre de la psychose. Mhm. ci nit ñi quand même pour xool ni nga leen leen a indee vers euh, les les ramener à la raison. Mhm. alors yéen ñi nga xamante vous faites ce travail est-ce que quand Non, du tout, non. J'ai dit que, la peur, euh, c'est normal qu'on ait tous parce que la peur, euh, c'est différent de ce qu'on appelle l'anxiété. Ça vous gêne pas euh, trop de... Ça vous empêche pas trop de faire votre travail correctement Peut-être juste le temps de prendre quelqu'un euh, et de vous laisser répondre D'accord, on va prendre ce, euh, ces téléspectateurs. Allô Allô Sëñ bi na nga def ça va bien sëñ Cheikh na ngeen def waay jàmm. maa ngi maa bismillah yow ñuy déglu waaw ñu ngi kontaan seen liggéey bi vraiment. jërëjëf Sow. li ma bëggoon wax sànq ci mag yi pour pour protéger leen parce que yéen vraiment da ngeen dañ leen di ñaan ngeen gudd fan. amiin yaa rabbi amiin waay tamit yàlla na leen ko yàlla defal. mais am na ku ma ci jiitu kontaan naa ci loolu quoi. jërëjëf. mais man nag je suis fils de grand quoi. Mhm. bon léegi li ma bëgg wax maire bi mooy vraiment ñu ngi leen di gërëm seen taxawaay mais man li may jaaxal ci Grand Yoff mooy. Hmm. vraiment Grand dafa bëri ay dalalu xar ak ay pàkku te yaakaar naa ne cat gi loolu mënul ànd ak moom nga gis benn kër bu am ay cinquante xar hmm. yaakaar naa nit ki bu ñu ko mayee mu yar ay xar tamit war nañ ko limité vraiment jël mbedd mi jël kër gi yëpp def ko ay xar fas yi aussi même chose loolu aussi war nañ ci wax quoi beneen bi aussi dans tout ça cher hmm. damay laaj waaw feebar bi ñu am nii mais service d'hygiène ñoom anañu ah dégg naa ñu ngi ci mbedd mi de wax dëgg tey de war nañ def sa benn ngan di maam opération yenn saa yi ñun de gisuñu leen wax dëgg yàlla gisuñu leen fenn ah bon way gisuñu leen fenn wallahi fenn waaw kon damay laaj ndax service d'hygiène am na Sénégal quoi ak fi ñu war a soxlaa ah. man gisuñu leen sincèrement gisuñu leen d'accord léegi war nañ taxaw ñu xool ndax dañu amul équipe effectif wala lan su fekkee nit ñu mën nañu volontaire wu ñu volontaire wu ànd ak ñoom ñu wan leen affaire bi ñu formé leen ñu liggéey parce que ñun gisuñu leen ah sincèrement sincèrement. jërëjëf Sow léegi nag ma jàpp ne kon jot nañu xool ñoom teen taxawaay fan la war a féete. Hmm. te li président wax yëpp ci wàllu wàllu li euh, xaalis bi mu génnee. Hmm? gisuñu si lu ñu lu ñu attribué service d'hygiène pour que mu mën a def ay ay opération ci ci ci kër yi ak ci place publique yi loolu aussi war nañ ko bàyyi xel bi si des mooy. Hmm. Euh, ndimbal yi ñuy jox nit ñi. bëri na coow mais garaawul li am solo mooy war na gaaw war na gaaw parce que nit ñi soxla nañ ko nit ñi sonn nañ trop beneen bi ci des mooy confinement bi ñuy wax nii confinement mënul nekk mënul nekk parce que la famille sénégalaise li muy dundee tey la koy pou pour ba boo xoolee ñuy def orange money lu gën a bari ci par exemple Sénégal le les les opérations commencent à partir de 9 heures entre 9 heures et 11 heures vers la banlieue loolu mooy lan mooy nit ñi dañuy dem xëy ba pare lijjanti doo ko envoyé seen jabar wala seen yaay wala seen tante wala seen mbokk comprend donc confinement boobu war nañ ko xool e ñaareel bi war nañ def ay enveloppe doxul nit ñi bu fekkee ne bëgg nañ nit ñi toog seen kër yi nit ki mënoo ko toog te joxoo ko lu mu lekk boo bu ñu la toogloo tamit te joxuñu lu ñu lekk du ñu toog Ibrahima macha allah rafetlu nañ kaddu yi macha allah. ñu bu baax di leen gërëm ah. kaddu yi am na solo de ñu lay gërëm di la sant surtout ma ne kaddu yi am na solo surtout analyse bi nga def diggante 9h ak boobu lu mat a bàyyi xel la jërëjëf Ibrahima damay bàyyi docteur docteur Ba àggali bu paree ma jox monsieur le maire ndax waxtu bi fu mu toll nii ça ça fii mhm. ah je pense que vous parlez de la peur euh, au niveau du du ça ne vous empêche pas trop de faire votre travail correctement non non du tout on travaille avec ça la la peur c'est quelque faut travailler avec le patient et travailler même soi-même sa, sa, propre peur. Euh, Souvenez, en tant que soignant, on a on a pas de crainte. Euh, voilà, on ne dit pas la, la vérité. Mais c'est des choses quand même qu'il faut, qu'il faut euh, et aussi, il faut, il faut éviter euh, voilà, euh, de cliver les gens. parce que nit du, du xel rek. nit nit xel la yaram la mais aussi. société la parce que il vit au euh, c'est un être social donc trois composantes yooyu chez la personne il faut nga tenir ci compte vraiment boo ko bëggee jël en charge de façon efficiente nous on travaille sur ces sur sur ces trois aspects c'est-à-dire que moi en tant que psychiatre addictologue et cetera quand j'ai une personne en face de moi tout tous ces droits tous trois dimensions je dois en tenir compte ses angoisses ses peurs ses rêves Euh, ses pensées son comportement mais aussi yaram bi donc bu ñu évaluer nit ki sur le plan psychologique évaluer ko sur le plan aussi de ses consommations sur le plan physique maanaam ci wàllu santé bi il faut aussi ñu examiner ko parce que il faut nga xool est-ce que par rapport ak consommation par rapport ak yi muy def est-ce que amul ay répercussions est-ce que amul retentissement c'est comme ça la ñu xam ne ñii ils ont des problèmes de de de VIH d'hépatite C des problèmes de diabète donc même <laughs> c'est un appel que je lance à mon collègue su fekkee même mën nañu parce que nous on fait une prise en charge intégrée foofu loolu mooy sens centre de prise en charge intégrée ce qui veut dire que tous les spécialistes war nañu mën a indi seen euh, contribution pour que la personne que ñu mën ko jël de fa euh, en charge de façon façon globale donc on intervient travailleurs sociaux yi ils ont leur rôle aussi donc ils ont un, rôle important aussi à jouer dans dans la prise en charge effectivement la peur est mais c'est quelque chose qu'il faut travailler une peur boo ko travaillé mooy créer angoisse angoisse boo ko créé moom mooy boo ko jëlul en charge aussi moom mooy indi yenn déstructuration yi ci nit ki euh, mooy indi psychose mooy indi ay névrose mooy indi kii donc yooyu yëpp il faut nga gérer que de façon globale en ayant avec la personne un contact vraiment assez étroit. maa ngi ñëwaat ak yow ci laaj bi mujj parce que balaa ma def tour de table bi nii ba ba ñëwaat ci yow damay ragal waxtu bi dina jot bu boobaa nga bàyyil ma xel ci koo xamante ne quand même dans une famille boo xam ne am na euh, koo xam ne dafay faral di consommer un peu drogue surtout période bi ban taxawaay la ñu war a am ci loolu mais maa ngi ñëwaat ak yow ci kanam tuuti c'est important mais monsieur le maire euh, yow ñu la interpellé bari na trop moo tax xam naa laaj nag dañ koy accélérer baax parce que il est quoi 11 h naa dañuy yar foofu xar yu bari foofu garaaw comme am na am na ay xar yu ñu yor si léegi ñoom nooy def ak am na ay nag sax ci biir kër yi foofu grave mais am na yoo xam ne ñun rek mënuñu ko def hmm. ñu ànd ak chef d'hygiène pour mun ko def donc di profité wax aussi chef d'hygiène peut être ñu def lu ñu mën dafa ak seen moyens yi ñu moom ñëw nañu fa ànd ak ñun ci terrain bi dugg si marché yi désinfecté marché te chaque 15 bu ñu leen oowee dañuy ànd ak ñun si marché yi donc mais am yoo xam ne ñun nag chef d'hygiène ñoo ñooy boole suñu tool yi ñu mu wax dégg nañ ko dañu xool nu ñu gën a organiser nos chefs d'hygiène pour yooyu aussi ñu bàyyi si xel te am na Grand Yoff am na sax ñu ñu yar ay nag si biir kër yi si kër yi xaj xar xaj xaj foofu mais kër yi xat na de ay nag ay nag am na del bi da def fa nag am yoo xam ne ñu nos parce boo fourrière xar waral nag day metti foog nga dundal ko am yoo xamante ne il faut ànd chef pour ñu def ko beneen bi am na ku ne gisuñu seen bopp si affaire xaar yàlla waaw xar yàlla waaw tudd nañ ko xaar yàlla kooku benn dëkkul xaar yàlla doxandeem la fa na ko xamee wala mu nekk koo xam ne c'est un opposant am ñoo xam ne duñu gis dara na dem si docteur Guissé mu infirmier de poste bu xaar yàlla mu laaj ko lu ñu ko jox ay dotation xam nga épi épi ça coûte cher médecins xam nañu épi ñëpp amuñu ko. tout le poste de santé au niveau de ah. voilà mooy mooy les combinaisons là voilà ñu ko am bariwul si poste santé yi am santé santé yoo xam ne amuñu ko. fii à Dakar je au niveau de poste de du poste centre de Xareel leen ay épi épi yi ay sur surblouse ay gants ñoom rek am nañ 300 paires de gants Xareel la kese poste centre bi kese te dugg du dugg poste santeem te amul. thermoflash am na ay centre de santé état bi li mu jox suñu poste santé mu mën na ko wax télé bi xalaatuma ko. Hmm. xalaatuma ko sax wax. donc ñun dañoo daa néew wala. mais mais loo ko wax c'est que mënoo wax sax non niwaay moo tuuti tellement mënuloo ko wax si télé te ñoom il faut il faut il la introduire les médecins le médecin de famille wala ñenn beneen aussi boo déggee xar la on a mis part des affiches en dehors sax même les daara qui sont dans xar yàlla dañ leen jox ay ay ravitaillement ceeb diwlin même ay biscuits pour daara pour xale yi bañ ci génn di yàlla pour xale yi bañ génn di yàlla mais xale yaa ngi génn ba tey waaw mais comme ñun am xam fa lañ mën yem quoi dix daara lañ faat au niveau au niveau de Grand Yoff te dañu ko complété donc je pense que ñun li ñu def ñu ngi si te daañu ko continuer di def yaakaar na loolu lañ loolu lañ foofu lañ toll li des nag mooy peut être par rapport ak denrées alimentaires yi état mi mi ngi def li mu war def su defee pare ñun commune daa ñëw indi suñu apport def li ñu war def mais bon je pense que jarul polémique mais yéen da ngeen jël seen télé yi seen rajo ngeen dem daa Grand Yoff dugg au niveau des postes de santé dugg au niveau du marché di ngeen xool li ñu leen wax am na wala amul. ngeen xool est-ce que li ñu li ñu wax par rapport ak ak campagne de affichage bi ak sensibilisation bi am na wala amul donc bu ngeen gis de vue que ne ñun loolu ñu war a dañuy dimbali ba dimbali ay ay yoo xam ne sax nekkuñu biir Grand Yoff en dehors de Grand Yoff et ay centres de santé yoo xam nekkuñu biir Grand Yoff. waaw dégg naa sa naataango Banda Diop mu toogoon fii nga toog. mu ne gis ne sa action yi ngeen def fële ci Nabil Choucair. Nabil Choucair moom pour dëggal kàddu gi fii la toogoon wax ko de benn ajjuma la woon. ay combinaison ay masque ay gants. mu koy rafetlu vraiment fii la ko taxul rafetlu. léegi dafa am donc kuy commune bu nekkul si yow commune. léegi dafa am ku la laajte nee na Grand Yoff est aussi ou a aussi deux uh-huh. na tout Grand Yoff est un souk et un univers de gare irrégulière nee na vers toutes les directions nag. nee na quelle régulation le maire entend apporter pour améliorer le cadre de vie des populations. gare eh, waroon na préciser fan la gis ay gares irrégulières. Hmm, amul foofu. maanaam précision parce que gar yi fan fan te xam nga foogoon def na précision ne tel secteur laa gis day gën a yomb. mu ngi lay dégg xam naa du ñàkk. voilà ti kanam mu mu mu mu mais mais Grand Yoff ñëpp hmm. xam nañ ne dafa nekk commune bu commune bu jaxasoo bu bari nit bu xat. lu ma mag man ëpp ëpp na 60 ans 70 ans ci 5 ans lépp mënoo ko def mu sotti mais quand même y a yoo xam ne ñu ngi si suñu paree loolu dem mais équipe bi ñëwaat fi ñu yam day continuer c'est comme ça na lay na defaree dëkk ñun tey Grand Yoff tey boo fa duggee tey boo ju mosoo dugg Grand Yoff si marché bi foog ne am na ay kër. ci biir marché bi. non en face. en face marché bi tali route lancé route des bi dem ba Patte d'Oie. Mhm. mais foogoon nañu amul ay kër y avait que des tabliers ay mbaar nga xool ñu ngi koy pavé instant bi kër yi da ngay gis kër yi carrément Grand Yoff instant bi au niveau au niveau de Grand Yoff li ñu soxloon yëpp mooy premièrement bi ñu ñëwee refaire suñu poste de santé yi Grand Yoff Vincent Sanlam mooy service municipal Grand Yoff n'avait pas bloc opératoire à part à part à part à part CTO tey am na bloc au niveau du service municipal médecin lañu amul moo tax mu ko ubbi ba te ñu ngi démarché pour am ay médecins pour mu ko commencé y a des cliniques yoo xam ne ñu ngi Dakar sami la ñu seen malade yi dañu ñëw luyee ko opéré bu ñu paree jël seen malade yóbbu des fois opération leen si biir sami des cliniques qui sont dans Dakar tey au niveau de Grand Yoff tey l' état civil de Grand Yoff tey fait partie des états yoo xam ne moderne informatisé te yooyu ñu ñëw ko def. dégg Grand Yoff tey war na dépassé loolu mais ñu ñëw ñëw informer état civil ko tabaxaat ko. léegi lu jëm ci ndimbal bi parce que dégg naa say naataango yu bëri ñoom taxaw ñu ne euh, ñu ngi jàppale kii Alioune yi dégg naa ko fii moom tamit mu wax ne joxe na plus de 300 millions de francs CFA jox kii ay dund yow lan nga jox foofu. waaw man joxe gu ma dund. joxe dara joxe gu ma dund dund. waaw ah, li ma soxaloon dans un premier temps moo nekkoon prévention. équiper les centres de santé. Oh, ba pare protéger suñu suñu personnel bi. Mhm. maintenant on a acheté 135 tonnes de riz 2700 bidons d'huile de 5 litres. cinq 13500 gros sucre pour jox ko population mais kooku comme état dafa am lu mu lu mu démarré ne dafay dimbali nit ñi jox ñu ay liste yoo xam ne moo nekkoo ñu nekk ci bourse familiale yi nga xam ne dañoo dañoo am bourse familial baa ngi déposé amuñu baa ngi am carte égalité de chance ñooñu dañu war a am obligatoirement si li état joxe donc boo joxee sa bos joxaale ñooñu te xamagoo leen ba état ñëwee dañu am par force ñu dañu préféré ba état joxe ba pare ba avec les sous commissions yu nekk si quartier yi ñooy continuer liggéey ñu génne seen dotation jox ko nit ñi pour ñu continuer. kon yéen da ngeen di bañ nit ki am ñaari yoon. voilà parce que comme grand dafa rëy. Hmm. ñëpp mënuñu am. Hmm. suñ deful ndànk dina am ko am ñaari yoon te boobaa boo imaginer boo joxee comme ça l'état liste bi ñu jot ñun. boo xam ne ñoo si si si si affaire euh, bourse familiale ak yooyu mot na 5000 et quelque soo joxee soo joxee 2000 familles exemple tu perds 2000 ménages yoo xam ne mënu nañ am si sa quota. moo dañu préféré ba état joxe ba pare parce ñoo ñooñu état mu ne de droit dañu am. yow même boo leen joxe état foog mu jox leen mais mieux vaut nga état jox yow yi ngay joxe nag nga xool ñu amul parce que c'est la même commission mooy continuer liggéey. bien sûr ba état bi boobu laa ñu bàyyiwaat mu continuer liggéey donc ñoom bu ñu paree ñu jël suñu am ñoom fu ñu yem ñu xool ménage yi amul ñu jox leen. ngeen mottali ko daal que loolu mooy loolu mooy gën a loolu mooy gën a mais mais ñu dañu par rapport ak ay montant nag duñ si dugg. mais ñëpp xam nañ ne matériel de chantier rek li ñu jënd rek c' est beaucoup d' argent. mais génne ngeen xaalis bëri plus de cent millions cent cinquante millions. wala ah, deux cent na ko di dem. Ah. c' est mais bu xam nga man bëgguma wax ay chiffres parce que am pour man gisuma importance bi trop mais la am solo. mooy nañu dimbali nit ñi gis nañu leen dimbali. c' important. Voilà. juste balaa ma la bàyyi monsieur le maire kii nag dellusiwaat na mooy borom laaj bi sànq. Uh-huh. nee na gare des taxis bu nekk station Shell. Uh-huh. garage Bignona garage Boy Diola. Uh-huh. garage Guinée xaar yàlla. voilà garage tax taxi xa Padois hmm. na demaat Padois mu xool est-ce que am na tax taxi fa nekk na demaat mu xool xare mu demaat mu xool mu lay dégg Padois station Shell bi mu xool est-ce garage su super yi est-ce que dina fekk plus de deux super yu taxaw mu xool c'est que li am solo nag mooy après suivi bi ak waa police garage Bignona foofu garage la parce que bi Bignona seen bus yi da doon dugg si biir quartier yi ñu taxaw koñ koñ yi moom ay xeex partout booy dem gendarmerie tout le temps te waa Grand Yoff dafa bëri ay dafa bëri ay joolaa war dem Casamance te boobu maraîcher dafa sori ki am 2500 war si paas taxi war si fay bus amu ko je préfère garage bi dugg si biir koñ si biir dëkk bi mu yóbbu ko si bassin zone de captage bi mu centré kenn si dëkk bi dem foofu. année bis ñu ngi taxaw foofu ba léegi. parce que comme dem ak dikk amatul léegi. voilà mais mais mais quand même garage la. te maa leen ko jox la l'assume. am na ñoo xamante ne dañ dëkk Grand Yoff war a tukki mënuñu dem boobu marché dafa sori ba pare dafa cher man ma dëkk dama xam ñu ma dëkkal seen doole fu mu yem. noo taxawee foofu ak ñooñu kon léegi ñu ñu def nag wala da leen bàyyi ñu nekk dans une promiscuité wala am na disposition yooyu jël. non non c'est que leen jox benn surface. waaw mesuré ko mu ñu yem fa. xam naa foofu. defal leen ko ne ginnaaw CTO. voilà ñu defar ko ba mu normal. ñoom ñu fa lañ jëlee carte dem yow yàqu ma inconvénient te boo demoon tey bëccëg nga xool amul benn anarchie foofu d'accord moo gënoon ñu nekk ci biir koñ yi di taxaw partout ci chaque chaque ñu taxaw foofu di xeex waa koñ yi baaxul. wóorul sa xale yi. ba pare kaar yi guddi yi ay nit dañuy fanaan ci biir kaar yi ci biir koñ yi wóorul da doon créer insécurité ci biir koñ yi mais dans un premier temps créer benn trouver benn solution en urgence après nag xool fii ak ci kanam nu ñu wu ba ñoom. ñu xool fu ñu fu mun dem. d' accord voilà d' accord monsieur le maire Moussa man de xam naa ni maa ngi wax ni c' est vrai que ni euh, initiative bi ñu jël par rapport ak lu jëm ci wàll yi nga xamante ni moo di Covid bi koppar yi commencé ci état bi mille milliards séddale bi leen lu ci nekk. Mm-hmm. xam naa ni euh, ginnaaw Covid moom bu yeboo ñu waajal ko lu ci bari bari ndaxte xam naa ni. Mm. Mm. jafe-jafe ci secteur boo mënti laal rek. boobaa mm. tey danga ko ci mën a gis. wàllu nag euh, lu jëm ci protection sociale bi de même que sécurité sociale bi gëm naa ni loolu it leneen la. Mm-hmm. parce que quoi qu'on puisse dire pour euh, tàmbalee ci monsieur le maire mooy que ni gis nañu ni commune yu ci bari. Mm-hmm. au dépend des recettes. yaa ngi dégg la ñuy xool par rapport ak seen eh, budget mhm. te lii nga xamante ni sóoraale wuñ sóoraale wuñ ko woon bien vrai que ni tey boo amee sax loo xamante ni ci wàllu social lañ koy delloo mhm. tey quoi qu'on puisse dire xam nañ ni dina am lu bari lu mu basculer parce que lu état mënti def it mais nañu jàpp ni covid bi temps am lay def dem mhm. la commune reste le Sénégal reste les population ak la demande day doonaat li nga xam ne moom la doon don bu ko yokkul kon dool loolu dafay favoriser tey jii nii ci ay facteur yi nga xamante ni bu ko delloo ci ci don bi nga xamante ni moo di santé jafe-jafe ëllëg donc mën na ko jur te loolu mën na indi tamit ak sooxe ci wàllu même wér-gi-yaram gi mhm. beneen euh, bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko te di koy gis moo di docteur Ba gis nañu ni dakaar buñ ñu ko mënee wax te documentation bu bare wane na ko que ni c'est une euh, ville de transit de drogue parce que suñu port bi la plupart du temps li nga xamante ni ñu ngi ñu koy révélé ci drogue bi nga xamante ni moom la ñuy jàpp gis nañu aussi nous avons une population dynamique jeune mais quoi qu'on puisse dire aussi accès à l'usage de la drogue dafa xaw a yomb fii nii au Sénégal te ñu gis ni tamit jafe-jafe yooyu noonu ça peut conduire vers une jeunesse boo xamante ni ëllëg mënoon nañu am lu ñu yaakaar ci ñoom ay dérives yoo xamante ni tey jafe-jafe lay indi par rapport ak relève bi nga xamante ni Sénégal mën na ko yaakaar te gën naa ni am nañu euh, yaakaar que ni tey muy ay euh, structure di ay ONG ak état volonté war nañ gën a mën dooleel la politique de sensibilisation de lutte contre la drogue pour que tey jii nii ñi nga xamante ni ñoo di suñu jeunesse bi au moins ñu gëm a xool naka lañ leen gën a mën a taxawoo parce que quoi qu'on puis dire la drogue c'est une affaire de gros bonnets xëy na nag ñi nga xamante ni tey ñoo ci euh, souffrir ki nga xamante ni mooy tëgg tëdd kaso ndax benn takk boo xamante ni moom lañ ko jàppee benn cornet wala yooyu mm. kooku xëy na du ki nga xamante ni mooy ki koy transporté kooku c'est juste xëy na le consommateur te bu demee ba am chute wala mu am ay jafe-jafe ñooñu ngeen di amal affaire la plupart du temps kon lu ñu gën a mën a dooleel secteur sensibilisation boobu ak lutte contre jëm naa ni dina gën a baax espérons que fii ak mois de juin bi nga xamante ni journée mondiale bi dinañ koy faral di def fekk ñu génn ci lii ba ñu gën a mën a nag tiire waat de conséquence gën a mën a yaa ngi léegi jàppale ñooñu mais docteur naa ñu ñëw ci ki nga xamante ni wax na ci lu jëm ci wàllu santé publique surtout ak ñi nga xamante ni ce sont les agents de la santé publique hmm. muy service d'hygiène hmm. parce que service d'hygiène ñu bëgg ko ñu bañ ko corps la paramédical boo xamante ni dafa bokk ci ministère de la santé et de l'action sociale hmm. mais ce qui se trouve anormal mooy que nii moo di service boo xamante ni yàgg nañ ko wax ni dafa amee vieillissement kii doon dugg sànq auditeur bi ma koy nuyu au passage xam leen na ni gisuñu seen liggéey c'est tout à fait normal mais depuis un certain temps dañu gis ni dafa rajeuniru parce que am na ay jeunes yu porté volontaire dugg ci biir service boobu mais ce qui se passe moom mooy que ni j'ai été interpellé dans le week-end par un jeune boo xamante ni il est dévoué engagé te maa ngi ko gis mu doon sol équipement di ma wax ni chaque vingt deux heures dañuy wàcc sur le terrain la nuit de vingt à x heures pour rien que di def ay pompage di def ay désinfection loolu di wane ni volonté mi ngi foofu mais quoi qu'on puisse dire it nañu jàpp ni ay études wane nañu te boo demee chez les spécialistes de santé publique ils nous disent que le préventif finance le curatif effectivement parce que la prévention avant juste l'hôpital loolu permettroon nañu tey jii suñu jafe-jafe yu ci bëri ci wàllu santé ñu réduire ko alors mënuñu gis kon tey service d'hygiène boo xamante ni ñi ngi au Sénégal jafe-jafe boo leen nii ñu ni moyen jafe-jafe boo leen nii ñu ni limité d'ailleurs même seen code bi nga xamante ni mooy code de l'hygiène au Sénégal c'est archaïque dépassé mu laajaat ay moyens yoo xamante ni ak ay réformes yoo xamante ni bu fekkoon loolu taxawal nañ ko mais qui gagne la prévention vraiment assure la sécurité de ces populations kon tey mënuñu am benn service d'hygiène boo xamante ni boo ko xoolee au Sénégal dañuy xam ni c'est comme un travail insignifiant alors que tey Ebola bii ñu gis ni ay jamono amoon na 2014 2015 mais c'est le service d'hygiène qui était au front lu ci mënti nekk laata côté médical bi ñëw ak prise charge bi ñu doon wax avant course jëloon ko mais ñoom ñoom ñoo nekkoon ci liggéey bi kon l'État man je pense que ni il ne pas encore tard mm -hmm. c'est que tey ñu gën jël service d'hygiène mm-hmm. gën ko dooleel mm-hmm. parce que quoi qu'on puisse dire ñoom ñoom ñooy agent wu santé publique te loolu bu amee gënu gën ko mën a taxawal man am naa yaakaar que ni doole bi ñu war a mën a am ñu jox leen ko. parce que tey mën nañu fekk nit mais seen doole de répression sax dañ koy wàññiwaat te liggéeyu service di d'hygiène yemul ci dem di xooli force bu ñu gas wala xool yaa ngi dégg boutique bu ñuy contrôler wala déet c'est au-delà de ça. kon nañu xoolaat ni tey ñun suñu jafe-jafe yépp fi mu nekk mooy ci wàllu yenn yi nga xamante ni ay maladies la docteurs yi xam nañ li ñuy wax bu baax boo demee chez les vraiment donc avancé am na maladie yoo xamante ni dépassé nañ ko. te loolu pour ñu dépassé ko yegg foofu noonu il va falloir que service d'hygiène ñu reconsidérer waat ko taxawaal ko comme des soldats yi nga xamante ni moom la ñu doon pour que la population am une meilleure santé. Mmh, mmh, mmh, mmh. Euh, su fekkee ne baax nga yow tamit ñu jël pour euh, ñu koy wax tetuwaay des dernières question parce que waxtu bi fu mu toll nii ça très très vite su fekkee laasana baax na ñu jël ko su baaxul it ma yëgali waxtaan wi waaw nee nañ ma baax na kon nag laasana ma bàyyi la laaj yu mujj yi bopp waaw laas ma bàyyi la laaj yu mujj yi. voilà euh, donc Cheikh ñu woy ci euh, laaj yi am na nag ñu euh, kon interpellé suñu addictologue bi nekk ci euh, plateau bi ci wàllum utilisation wu café gi gis nañ am na nit yoo xamante ne bu ñu ko jëlul da leen di andil ay jafe-jafe rawatina ay bopp yuy metti te ñu ngi jëmal ci weeru koor ñoom ñu ngi laaj est-ce que am nañ solution boo xamante ne bu ñu ko defee ci koor gi dina mën a pallier jafe-jafe yooyu nga xam ne ñu ngi koy am am na aussi ay commerçant yoo xam ne daal dinañ ñuy interpellé ci wàllum masque yi ñoom nee nañ bu ñu ko solee dañuy am véritable problème respiration du ñu mën a nooyi loolu aussi yan conseil la leen kon médecin yi nekk ci plateau bi di leen jox ba ñu mën a sàmmonte ak li yoon daal di wax am na aussi ñu interpellé monsieur le maire de Grand Yoff ci aide alimentaire bi nga xam ni euh, nguur gi daf ko jëmale ci euh, askan wi waa Grand Yoff aussi war ci am wàllu wuré ndax xam nañ euh, quartier boobu nu mu dëkkoo nu mu tëree kon ñuy laaj maire bi foofee yan disposition la ñu jël ba ñëpp mën a jot ci mbir mi te aussi pëccaxoo du am ci séddale gi à part loolu koy jeexal benn question bu basique ndax ñëpp xam nañ ni mburu daanaka saa su nekk dañu koy jëfandikoo suba ak ngoon am na kuy laaj ba xam mburu boobee mën naa nekk vecteuru coronavirus bi ndax euh, gis nañu day jaar ci ay loxo yu bari kon Cheikh xam naa dama ko fi euh, yemale rek laaj yi bari na loolu may jégalu ci euh, téléspectateurs yi yu ci jàllul xam naa suba incha allah daañu ko andi digtal ko yeneen experts yu ñëw ci plateau bi. incha allah laas mi lay gërëm di la sant jërëjëf laaj boobu nga mujjee laaj naa ko laaj ci kanam docteur Ababacar Diegane Faye ma bëggoon juste rek comme interpellé nañ docteur Idrissa Ba. moom tamit ñu laaj ko laaj yu mujj yi ma jox euh, kàddu gi après euh, docteur moom tamit mu indi ay leeral ci loolu monsieur maire après ma jox Moussa mu tëj yëkkati jotaay bi du noonu kon nag euh, docteur am na laaj yu ñu laaj d'abord ci kafe gi balaa maa dugg ci drogue bi. waaw kafe bi je pense qu'il posait question bi peut-être Diallo la sant quoi ñu ngi xalaat déjà koor gi. <laughs> koor gi ñëw na ajuma la de. mais comme ni ma ko waxoon naa ci njëlbeen am na auteurs yu bëri yi wax kafe du créer dépendance. parce que café dafa am substance bu ñuy wax euh, caféine mais caféine euh, c'est un stimulant mineur donc mënul créer dépendance bu nga xam ni dina dem ba taqale la ak euh, da nga dem ba nekk jaamu kii bi par contre café dafa am ay substance yu nga xam ne day créer li ñuy wax ci tubaab vasoconstriction maanaam boo ko jëlee maanaam tuyau yi nga xam ni deret ji ci lay jaar daf koy naj ba nga xam ne pour deret bi jàll sax problème la loolu moo indi peut-être effet migraine wala ay céphalée et cetera et cetera mais warul nekk lu nga xam ne mën na tere nit ki quand euh, def kooram normalement. parce que du créer dépendance bu nga xam ni mën na la taqale ak sa sogo. mais le le café n'a par de danger quand damay faral di ñu le café soigne dafa baax wala c'est juste une petite parenthèse ah. ben comme on dit tout excès est nuisible ah. on dit que se protecteur même des parce que effet vasoconstriction bi et cetera surtout des vaisseaux coronariens mais aussi boo ko jëlee en excès aussi mën na la indil ay problème gastrique mm. et cetera cetera donc euh, voilà nañ ko jël mais sans abus parce que voilà boo ko jëlee lu bëri aussi mën na la indil ay ay jafe-jafe. docteur Yamba day doflo d'accord nga. bon là aussi les les études sont très divisées ah. Mm. les études sont très divisées que. Euh, c'est la croyance populaire qui fait que dañ naan yàmbaa day dofloo parce que yàmbaa dina am effet yoo xam ne boo ko jëlee mën na la tàggaleeg sa sogo c'est pourquoi on parle de substance psychoactive mais ça dépend yàmbaa bi ki koy jël ban état la nekkoon c'est-à-dire est-ce qu'il était prédisposé à faire une maladie psychiatrique ou pas c'est-à-dire bu fekkee sa quelqu'un qui était prédisposé euh, du fait de plusieurs facteurs ça peut de des facteurs familiaux génétiques et cetera et Euh, bu ko jëlee te même amul problème bu ko jëlee yamba bi mën na déclencher loolu ça c'est l'effet aigu mais yamba aussi boo koy jël sur le long terme euh, am na ay réaction yu muy def ay manifestation xam dafay niroo trop ak feebar bi ñuy wax schizophrénie maanaam nit ki day beru nit ki du du am du am benn nu mu traité euh, envie daf dara dara safatu ko dal dara danaan day cool et cetera maanaam li ñuy wax ces fonctions exécutives day xaw a détérioré wu fonction exécutive mooy est-ce que lii war naa ko def c'est comme booy dawal oto nga gis devant un danger euh, maanaam entre le temps bi nga temps de réaction bi la perception du danger ak la commande cérébrale qui te dit que y un danger et voilà comment il faut réagir pour éviter le danger day am décalage dañoo fonction exécutive day am donc yamba day def effet boobu ce qui fait que euh, li ñuy wax apragmatisme nit ki dootul amati envie def dafa nuru trop ak feebaru schizophrénie wala day créer ay délire maanaam lu nga xam ne ni yow rek yaa koy gis ay hallucination yow rek yaa da ngay gis yu xam ne yow rek yaa koy gis keneen du ko gis et pourtant da ngay da ngay gëm ni li ma gis lii la et cetera donc yooyu yëpp dina tax nii dañ naan yàmba yàmba dafay dofloo. Hmm. dafay dofloo effectivement euh, boo koy jël manifestation yëpp day am te là mën na indi ay modification comportement modification façon de penser et cetera et cetera. ba tey ci laaj yi mujj yi est-ce que le Sénégal est un grand consommateur de drogue parce que nee nañu drogue bi nu mu fiy def lëmbee na réew mi lool yow mii nekk addictologue nekk psychiatre lan nga wax ci loolu. waaw ñun on a été très surpris quand même quand on quand on a fait l'enquête en 2011 enquête bi ñuy wax UTSEN parce que tout à l'heure euh, Moussa xaw xaw na je pense c'est Moussa dafa ni c'est une affaire de gros bonnet c'est l'idée qu'on a toujours eue c'est-à-dire que peut-être que ceux qui en profitent ceux qui profitent de la drogue c'est les grands bonnets mais les grandes victimes consommateurs c'est les consommateurs boo demee prison pratiquement ñi ñuy jàpp ñëpp ce sont les consommateurs c'est pas les trafiquants c'est pas les dealers et cetera ñi ci dem ba loru ci aussi mooy ñiy ñëw sepiat parce que bi ñu defee enquête bi On vi vu que dans la région de Dakar, on a estimé la taille de la population à 1324 individus qui consomment ce qu'on appelle des drogues dures. ñii Ni injectés où Dakar, c'est combien de millions d'habitants Dakar, on peut dire que c'est 3 millions d'habitants, mmh. Ah, etc. Faites le ratio, 1324, nous avons des drogues dures. Madame héroïne dañ la cocaïne. On était très surpris parce qu'on disait que l'on loolu une fille. te ci 1324 10 pour cent ont le VIH 38 pour cent ci injecteurs yi ils ont l'hépatite C donc on était très surpris parce qu'on croyait que drogue bi lawu fi noonu et ça ça a été le déclic ci la travaille avec le conseil national de lutte contre le sida pour mettre en place ce pro ce cette unité là qui est qui qui qui est le CPR parce qu'on a toujours dit que Dakar plaque tournante là on a utilisé plus d'expressions plaque tournante transit mais c'est un pays de consommateurs il faut aussi qu'on le reconnaisse parce que trafiquants yi quand ils quand une plaque tournante euh, transit et que les autres pays ferment leurs frontières ils favorisent la consommation locale en mettant à disposition en jouant sur les prix en faisant tout un tas de trucs d'actions pour que ce pays-là soit un pays de consommateurs. Effectivement, il y a beaucoup de consommateurs. Léegi pour terminer avec vous parce que le temps est terminé. Euh, est-ce que par exemple une personne koo xam ne am na ci këram euh, benn membre de sa famille qui consomme la drogue ak surtout période Covid bi ban taxawaay la war a mën a am ci loolu naka la war a mën a def. Nous, on a reçu pendant cette période de confinement beaucoup de demandes de de prise en charge. Beaucoup de demandes. Euh, les gens appellent, les gens viennent. pour dire ben on a telle personne. En tout cas, on a vu qu'il y a une augmentation de, de la demande. Euh, de toute façon, euh, Yann la c'est surtout par, parce que nous avons profiter du confinement pour, pour se sevrer. Hein, parce que difficulté de. Euh, euh d'approvisionnement day posé wu. Mhm. parce que li ñuy wax la limitation les les gens le plus le plus souvent guddi lañ doon jëndi drogue léegi mënatuñu génn et cetera dealer yi ñuy jaay mënatuñu génn le la nuit mais aussi génn génn journée bi pour dem jaay aussi ça pose problème parce qu'ils risquent d'être démasqués parce qu'il y a très peu de circulation parce que ñoom dañu daan profiter ci foule bi comme ça au niveau des marchés au niveau des lieux publics pour pour vendre aussi donc ça pose donc ñu bëri ils demande euh, mm. ils, expriment euh, une demande de sevrage hein de de prise en charge mais ça émane surtout des familles. Hmm. je pense que ça, il faut que euh, ce soit travail dans la famille. Parce que la personne aussi, tant qu'il n'est pas volontaire, tant qu'il n'est pas engagé, pour le prendre en charge, c'est un peu compliqué. Bon. De toute façon, nous, au CPIAT, on a un numéro quand même sur lequel les gens peuvent appeler pour prendre rendez-vous. Parce que comme nous dit, avec le, la période de, de Covid, là, les rendez on les a un peu euh, réorganisés. Donc tout ce qui n'est pas urgent, on ne peut numéro ils n'ont pas besoin de se déplacer ils peuvent appeler et prendre un rendez-vous pour euh, une consultation ou une prise en charge. d'accord alors docteur. Euh, docteur euh, am na sànq ku doon laaj tamit ne ndegam mburu bi mën a nekk facteur de de de développement de la maladie wala de transmission. oui oui absolument absolument si un infecté laal ko. Euh, ça reste dessus il beaucoup d'études yoo xam ne def nañ ko ci monde bi yu bëgg wone Euh, ñaata temps lay virus bi di def ci différentes surfaces. mais le virus su nekkee ci benn surface euh, lu mu tuuti tuuti surface bi nga xam ne mooy gën a gaaw mu dee c'est c'est trois heures de temps donc su nekkee ci mburu bi effectivement mun na nekk vecteur de diffusion te ñun xam nañ ñu pousse xam nañ mburu bi nan lañ koy transporter yóbbu ko ci kiosque yi wala ci boutique yi bien que léegi arrêté nañu euh, vente. dans les boutiques mais est-ce que c'est la solution avec les queues que je ah, vois ah, ouais. devant les boulangeries boobu tamit il faut ñu xoolaat ko parce que c'est vrai que daf ñu bett on a pris des mesures mais après quelque temps war nañu am recul ñu xoolaat mm. évolué waat euh, ñu jëloon dans l'urgence est-ce que réellement euh, am na effet positif ou pas ci ci lutte bi parce que voir des des queues de mètres devant des boulangeries ak nit yoo xam ne ñii sol nañ masque soluñu masque bien que maintenant ñëpp war loxo yi est-ce que am donc euh, effectivement le lépp surface yëpp vecteur Euh, transmission virus bi parce que ku laal fekk mu ngi ci ay loxoom daf ko fay bàyyi keneen su ñëwee daf ko koy daal après laal kanamam mu transmettre mais, mais mais docteur comment expliquer un peu en fait aussi boo xoolee le virus ça fait plus de deux mois qu'il est rentré en Afrique quoi que dire mais à pareil moment moment aussi mu ngi doon dugg Europe mais durant quand même cette période le virus a fait plus de victimes dans les pays européens même aux États-Unis qu'en Afrique comment expliquer vraiment cette situation même l'OMS ne parvient pas à l'expliquer. xam ne alors qu'on dit qu'il y a des millions de morts qui sont attendus on ne sait pas ñoom ay projection la ñu def parce que dañu xalaat promiscuité entre guillemets bi am parce que tamit faut dire que ñu bëri ci ñoom euh, bon pas waa OMS mais am na pays peut-être doo jël Sénégal comme comme référence mais yenn pays yoo xam ne vraiment yoo xam ne dafa am ay guerre yoo xam ne sa du depuis trente ans Euh, la promiscuité est la la pauvreté est la Mm te est-ce que dinañ am euh, les mesures de protection ay gel hydroalcoolique tout ça loolu moo leen tiital ba ñu nekk la le virus va se su amee même mortalité bi moom Europe euh, ça peut être une hécatombe ici en Afrique mais faut signaler kon li ñu wax tout le temps ñu bañ ko fàtte la la majeure partie des décédés en, en Europe personnes âgées yi la peut-être que ñun en Afrique on a une population jeune à plus de 60 pour cent loolu mun na tax amaguñu euh, hécatombe bi nekk di am Europe même dans les pays les plus développés donc loolu mun na ko mën na ko expliquer mais OMS ils ont raison d'alerter de se comporter comme ça pour avoir les fonds au cas où aussi malheureusement ñu yegg foofu ñoom xamuñu mais il faut faire des projections pour se dire que si le pire était là il faut qu'ils aient à disposition les moyens pour pouvoir aider l'Afrique je pense foofu laa ko teg pourquoi ils sont aussi alarmistes mais ñun le virus est là en Afrique depuis un plus d'un mois deux mois et que bi mu bi mu demee Europe à cet instant T ñoom commencé woon nañu am ay nombre de morts assez important quand même donc le profil euh, ni mu nekk di évoluer ni mu évoluer en Europe amagul c'est pas encore les les courbes ne se superposent pas en Afrique mais cela va cela ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas ko mais xamuñu on c'est un virus bu ñu xamul on va vers l'inconnu donc ñun euh, suñu rôle mooy fagaru fagaru balaa ñu yegg stade boo xam ne vraiment affaire bi daf ñuy ëpp. loxo. est-ce que waaw est-ce que ñuy jaay aussi café ak ak journaux yooyu yëpp mën nañu nekk ay vecteurs de transmission parce que jaaykatu café yaa ngi un peu partout gaa yi ngi jaay journaux aussi loolu yëpp lan nga ci wax. parce que am na tax absolument moo tax euh, c'est vraiment compliqué en Afrique parce que li kii am na ku ko wax sànq euh, bañ a liggéey nit yi arrêté loolu leen seen liggéey tamit dina compliqué on les comprend mënuñu toog koo xam ne yow sa défense chaque jour nga koy liggéey nga a dem liggéey bañ a jaay café soo jaayul café sa sa famille du mais c'est un risque boo xam ne tamit yaa ngi koy courir te yaa ngi koy courir loo ñeneen yow mun nga infecté aussi jaay bi ba pare nga transmettre ko ñeneen le risque il est là léegi nag. comment faire dans ce cas est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec le virus comme le dit le premier ministre euh, donc de la France wala bon Trump qui appelle à la rébellion qu'est-ce qu'on doit faire vous les spécialistes de la santé wax leen lan la ñu war a def dans ce cas. ah en tout cas li ma mën a wax c'est un virus bu bees bu ñëw boo xam ne maîtriser guñ ko donc mesure barrière yi c'est efficace même sooy dem jaay sa café mënoo bañ a jaay. wala ngay def beneen liggéey boo xam ne tu es en contact avec les gens fagarul defal mesure bariere yu ñu wax surtout pas de gants ba j'en profite pour diir c'est pas ce que nos autorités ont dit mais gants yi vraiment mm. c'est pas un meilleur moyen de le meilleur moyen de se protéger parce que gant bi su nekkee yaa koy sol toute la journée gant c'est pour faire un acte ponctuel nii dama war a def dara ma sol gant bi def ko su ma paree dama koy summi sànni mais su ma defee dara loo xam ne hmm. après virus baa ngi sama loxo ma jëlaat xaalisu jàmbur jënd ko fekk virus bi am na ku ma ko jox ci xaalis bi ma jox. Hmm. ma wecc ko keneen mais kooku tam dem na. kaas bi ma jël xel ci kafe wala mbuus bi ma jël def ci lekk bi bàyyi naa ko ci mbuus bi jox naa ko keneen moom tam jël na ko foofu faut savoir qu'en Europe supermarché yi par exemple diffusé nañ lu bëri virus bi. Hmm. ci à travers emballage yeeg yooyu. supermarché c'est un gros vecteur bu transmettre virus bi dans les pays développés. Hmm. donc yooyu yëpp su fekk yaa ngi sol gant nga xëy joxe joxe c'est compliqué. c'est, c'est très compliqué mesure barrière yi nañ ko respecter euh, le masque la distanciation sociale raxasu tout le temps soo amul euh, gel hydroalcoolique ñi am moyen y a des petits pots yu mën a nekk sa poche comme si ti soo paree nga jël moo gën gant gant yi moom c'est pour faire quelque chose après sànni ko immédiatement d'accord la sensibilité lépp dafa nekk ci diggante loxo ak gémmiñ si l'on sait que ni tey ñi nga xam ne dañuy tissooli ñi nga xamante ni dañuy sëqët ñi nga xamante ni seen i bakkan d'ailleurs même am na ci ñoo xamante ni en Europe euh, on les on les prélève on fait des prélèvements à travers euh, le le nez mm. est-ce que tey doonul occasion juste nga leeralal ñi nga xamante ni ñooy suñu téléspectateurs yi pour que ñu xam ñi nga xam ne ñi ngi tissooli ñi nga xam ne ñi ngi sëqët ak ñi nga xamante ni tey moo xam angine à répétition wala yu demee noonu non absolument virus bi xam nañ ni que c'est un tropisme pulmonaire te noonu lay duggee bëti la bon gémmiñ bi en premier bakkan bi Euh, ak bët yi foofu la mun a duggee sa yaram virus bi mën na nekk sama loxo ma yor ko mais tant que laalu ma sama kanam wala sama sama ma sekk dama am dagg-dagg si loxo du moom du ma contaminer sama bopp donc immédiatement su ma demee raxasu moo tax ñuy wax ñu raxasu day dem donc même en journée yow soo toogee nañu éviter di laal sunu kanam bien que ñun dañ koy def de manière sans sentir ko dañu laal sunu kanam des centaines de fois par jour. te duñ ko yëg c'est réflexe mais. Euh, nañ koy éviter le lu le maximum possible le maximum possible ba pare di di di raxasu parce que porte d'entrée bi fii la gémmiñ euh, bakkan bët wala benn plaie boo am sa yaram virus bi jaaree foofu dugg fa. d'accord donc moo tax ñuy wax ñu insister encore insister ci mesure barrières yi te dinaa jël quelques secondes par mm. rapport ak kenn ku woote wax remède bi am euh, Madagascar. c'est yu bëri merci merci pays yu bëri ñu ngi wax am nañu. remettre mhm. commencé wul Madagascar peut-être que ñoom ñoo ko gën a euh, parce que seen président moo ci wax mhm. mais soo demee Bénin xaw ma Burkina ñu ngi wax apivirine mhm. ñoom benn médicament traditionnel bi ñu utilisé depuis bu yàgg di ko di lutter contre même sida euh, euh, professeur Raoult moom niva hydroxychloroquine soo demee Russie ñoom ñu ngi wax mefloquine donc pays yu nekk am na étude discovery boo xam ne moom ay antiviraux traditionnels bon yoo xam ne dañ ko doon utiliser sida moom la ñuy utiliser donc pays bu nekk mu ngi wax mais balaa nag ñuy yegg si benn traitement boo xam ne dinañ ko homologué loolu day jël temps. pour le moment ban moo gën def preuve am ci yooyu nga cité. <laughs> amagul am na euh, ñu ngi xaar résultat yi. boo xam ne mu ngi comparé ay antirétroviraux ak hydroxychloroquine bien que hydroxychloroquine ni ñu ko utilisé foofu baaxul du wane benn résultat ñun li ñuy nekk di def fii ils vont le publier sûrement. et ak lu ñu munti wax on a un taux de guérison supérieur à beaucoup de pays. donc nañu rafet njot ni que ñu ngi am loo xam ne bu ngi marché plus que leneen ce qui se fait dans d'autres pays mais encore une fois il faut étude étude pour homologuer garab dafay jël temps dafay jël temps dafay jël temps Madagascar nee nañu am nañu seen président wax na ko mais balaa ñu koy nangu ba OMS euh, OMS di ko homologuer mun na jël deux à trois ans. donc loolu mënuñu ko utiliser ñoom nañ ko utiliser ñoom seen dëkk mais pour ñu indi ko feneen. dina si ñun dina métti donc mesure barrière mesure barrière mesure barrière. jërëjëf docteur mesure barrière mesure barrière mesure barrière monsieur le maire en 30 secondes nga daanee ñu yëkkat jotaay parce que fu mu toll jeexal nañu am na interpellé nañu ci distribution de vivres bi yooyu. voilà bon je pense que 30 secondes bu <laughs> tàggatoo moo gën a gaaw. non waxal ci distribution de vivres rek. bon mais par rapport téléspectateur bu maire distribution de <laughs> riz yi bon je que am na ay sous commission yu ñu teg au niveau des la commune. il y une commission centrale. boo xam dañu ne c'est le maire moo koy présider mais au niveau de Grand Yoff c'est l'adjoint au maire Edwige moo koy présider. Mm-hmm. donc y a des sous-commissions dans les am ay bureau def nañu ay ñu ngi commencé doon def enquête yi ñoom au sein de leur quartier donc am nañu seen nombre yëpp chaque quartier dañ ko dañ ko alloué benn dotation Grand Yoff nombre nombre war am c'est 17 632 ménages. Mm-hmm. ñoo war a am donc si loolu 5000 et quelques yi état moo leen génne déjà mooy liste bi bi ñu waxoon. ñu des nag aussi bon ñu ngi koy tànn ci quartier yi mais ñëpp duñu am loolu mënul nekk. ñëpp duñu am de. ñëpp loolu mënul nekk même état pareil ñun tam ñu ñëw indi ñëpp duñu am mënul nekk. mais dafa pare ñaata ngeen joxe ñaata nit. état ñaata nit la ciblé foofu. jàpp na 7632 ménages. yéen ñaata ngeen ciblé. ñun 4000 ménages maximum. ça fait 11000 et quelques presque 12000. ça fait ay donc loolu mënul daj Grand Yoff yëpp. Grand Yoff le gap est énorme voilà Grand Yoff ëpp na 470000 habitants. bëri na donc loolu dañuy def ba fu ñu mën yem rek mu yem et puis continuer ku nekk aussi ko mu dimbale te nga dëkk moom nga jàppale ko ay dëkkandoo ngeen. lu mooy daanele kese mooy fii kilifa gi wax sànq mooy par rapport ak euh, santé bi ñu bi ñu jox communes yi dañuy wax dañuy wax la la santé est une compétence mais l' état nous a transféré que que la masse salariale la masse salariale. ma sama sama moitié salaire commune Grand Yoff commune bi c'est 32 52 millions tous les mois 25 millions yi sama la jëm municipal amul état deful benn effort ci santé au niveau des communes benn effort defu ko si kan au niveau des communes lépp ñoo ko defal suñu bopp donc aussi il faut ñu xoolaat ko. c'est vrai mais en ñu ngi sant ñëpp di leen wax nañu gën a góorlu toog seen kër yi. suñu génn ñu takk masque su fekkee génn mënul ñàkk. d'accord suñu suñu duggee seen kër yi simi seen masque yi mais ñeen toog seen kër yi jàpp seen jàmm tey xale si kër. jërëjëf monsieur le maire ñu lay gërëm di la sant Moussa kon ñu yegg si nañ fu ñu yëkkatee mu toll nii. waaw Cheikh sant gërëm ñi nga xamante ni ñoo di suñu invité yi ak euh, ngëneel li ñu indi téléspectateurs yi di ñaan suñu borom yàlla na may ñi nga xamante ni ñoo di ñu doon déglu dégg ak topp. jërëjëf jërëjëf ñu gërëm suñu invité yëpp docteur Euh, Idrissa Ba addictologue la moo nekk fële ca CEPIAT tey indi nañu ay leeral yu am solo docteur aussi Ababacar Diène Faye euh, Diegane Faye indi na ay leeral yu am solo tamit dégg ngeen li mu li mu mujjee sax ci maanaam remède yu ne gis nañ ko fële euh, ca Madagascar euh, ay kaddu yu am solo xam-xam dëgg génn na tey macha allah ma Diop aussi Diop muy maire Grand Yoff dégg ngeen li mu wax tamit yéen mbokk téléspectateurs ñuy rafetlu seen seen i seen seen intervention rawatina tam ñi nekk internet bi di leen wax ne dans 3 minutes maximum taal ngol-ngol dina wu euh, toog dafa am tey gan tamit ki muy fas yéene seqal waxtaan moo di góoru xuma moom tamit xam nga mu ngi nekk ci diggante ci secteur yu dem ak dikk bi ba ay mesures ci jël dina ci wax waxtaan ci mbiru camion yi nga xamante ne aussi ñooy acheminer vivre bi yooyu yëpp Euh, mu ngeen ko xaat ci kanam ak taal ngol-ngol euh, fi ak ay simili yu ndaw rek di lay doon man nag euh, ak ak Moussa coronavirus ñu leen jox alerte maanaam émission bi bu suba incha allah rabi bu 10 jotee ñu leen di gërëm di leen sant di leen wax jàmm ak jàmm jërë ngeen jëf. Voici celle dont tout le monde parle, la maladie à coronavirus, qu'on appelle aussi la COVID-19. Si tu regardes bien cette image grossie au microscope, tu remarques que la cellule semble porter des petites couronnes.